man lam yakun min alseytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala miftaahi daari salaam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi saxoo di seetaan seen télévision Touba TV télé bii lëkkale askan wi tey jëfe ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaqa muy waxtasimo bi hablillahi jamian wala tafarraqu mbokk yi nañu tedd muy weeru Shaaban weeru saxabaan nag bu jotee fii ci réew mi xel yépp day dem ca gise ba nga xame ni moom la sëriñ tubaab gise woon ak rakkam ja loxol ndeyjooram ba ka nga xam ne moom la dénkoon lépp te dara yàquwul kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati a borom Daarul Muxti ñu ngi ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ni mooy kilifa yoonu murit wépp yàlla ko fi yàlla bàyyi te wéral ko ku gis ni mu doon dundee ak sëriñ Abbas mi nga xam ni moom mujj wuutu borom daaru te rakkam ju baax ji wuutu ko di sëriñ Bassirou Anta Niang nga xam ni sëriñ Serigne Mountakha ku xam li muy def la yàlla yàlla guddal fanam te wér ko di ñaanal bu baax Serigne Abbas waajuram woo nga xam ni ku ko war maloon la mooy Cheikh Mamadou Mountakha yàlla yàlla dolli yërmandeem di ñaanal rakkam ju baax ji ko wuutu nga xam ni ku ne xam na ni donn na borom daarul moxti ci xam-xam ci bëgg mbokk ci laabir ci baax ci xam yoon wi ci xam Sénégal muy Serigne Bassirou Mbacke Anta Niang yal na yàlla guddal fanam yéene yi nga xam ni moom la Serigne Abbas amoon ak Serigne Modou Balla ak magam yépp yal na ko àggale ànd kook rakkam sëriñ Khalid ak mbooleem ak fàtti borom Darou Mouhty yépp di ziyaare bu baax a baax a baax ki nga xam ni mooy Serigne Moustapha Hafsatou Diakhaté yal na ko fi yàlla dolli wéral ak mbooleem sëti borom Darou Mouhty yépp di ñëw tey ci plateau bi nga xam ni at mu nekk suñu jubee gise ba sëriñ Touba gise woon ak kam wóolu woon ca biiram ba mooy borom Daarul Moxti saa bu jubsee fii ci ndakaaru ki nga xam ni mooy alali Serigne Modou la te nekk fii ci ndakaaru contacté Touba TV ci ndigalul ay kilifaam yi ñu ko jox ñi muy liggéeyal mooy Serigne Abbas ak sëriñ Serigne Moussa Absatou Jaxate ak mbooleem njabootu borom Daarul Moxti ñëw Touba TV ngir waajal waxtaanu mel nii jëme ko ci dundu borom daaru ren nag am lu ci xew muy xam cer cerno jot na dëgg la ku xam cerno xam sëñ tubaa jërul ñuy xam sëñ tubaa nañ xam borom daaru moxti rek suñ ko xamee dinañ xam kan mooy sëñ tubaa kon xam cerno jot na sëkk ñépp a ko war a xam ngir ñëpp mën a jariñ muy alxaaji ma faal faal bàyyi faalub sëriñ moo doo bàll euh, ji euh, ñëwoon ngir waxtaan ak ñun ci ndigalu kilifa yi ko yónni kilifa yi ko teg fii ci ndakaaru di sëriñ bas anta ak mbooleem njabootu borom daaru Muxti gépp mu jiite taalibe yi nga xam ni borom daaru Muxti mooy seen bunt ci ndakaaru ba jotaay bi mën a am di ziyaare kilifa jotaay bi di sëriñ Mahmoudan di ku baax di borom xam di ku ñu yàgg a xam ci mbaax di doomi sëriñ Basiiru Mbàkke antañang mi xalifa borom daaru Muxti ak ay rakkam yi mu àndal tey jotaay bi di suñu xarit suñu sëriñ sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ mu doo Balla Ndaayaan ak suñu sëriñ suñu xarit suñu féete suñu lépp muy sëriñ Maam Moor di caatum sëriñ Cheikh Xawa Balla yaa xafaaru junub ak njabootu borom daarul moxti macha allah sëriñ Abo moom sëriñ Basiru Antañang ak soxna Tahiratu moom sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Abdul Xuddoos suñu seexu Makka moom sëriñ Abbas ak sëriñ Modaw Ballam sëriñ Abbas àndandoog seen doom seen jëwriñ seenub taalibe nga xam ni borom daaru moxti rekk ko ñor di sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Fàllu Asta Jéey sëriñ Silla Baay Fall ak mbooleem njaboot gi yëpp ànd ak seen jarbaat sëriñ Abo Sàll moom soxna Awa Balla ak sëriñ alaaji sëriñ Sàll jàmbaar ja nga xam ni yaakaar naa ni ku gis aw dox ku gisoon aw doxinam gis ma faal sa xel dina dem ci alaaji sëriñ Sàll ci yitteem jëpp mooy borom daaru moxti waaye buntu ci sëñ Tuubaa nag deesu ko fawe te ku am bunt bu mel ni borom daarul moxti sëñ tubaa tànnal na la bunt boo xamee ni yaakaar naa ni benn buntu féetewu ko kaw ci yoonu ci yoonu murit di ziare bu baax ki ñu bokkal jotaay bi mooy présenté ñi nga xam ne ñoom la ñu war a àndal jotaay bi nuyu tey ziare ki nga xam ne mooy alxaaji mbàkk yu fay moom mi nekkal sëriñ tubaa fii ci ndakaaru ak li ko wër di jàmbaar joo xam ni barab bii barabu sëriñ tubaa la sëñ tubaa jox ko ko mu ko koy sàmmal di ko ziare di ko nuyu waaye di ànd ak nag promobile 75 jotaay bi ak mbooleem ñi nga xam ni euh, ñooy seetaan waxtu bu nekk bi TV àndandoog suñu xarit suñu wëllëre ñu bokk barab bi muy Serigne Hamidoune Diop mu war a présenter ñi nga xam ni ñoo lañ war a àndal ci waxtaan wi incha allah euh, ndax tey dañoo bëgg a waxtaane dundu borom Darou Mouhty waaye nag li nga xam ni mooy xam na jot na dafa jot sëkk ànd nañu tamit kuréelu takku defar Darou Mouhty ñëw nañ takku defar daarul moxti def nañ délégation bu mag àndandoog alxaaji Mafal lépp day liggéeyal borom daarul moxti rek ak xamle kan mooy borom daarul moxti seen njiit nag ñoom mooy imaam bu baax ba bu ragal yàlla ba surtout borom daarul moxti ba ak Serigne Thierno Aïssa kooku mooy Serigne Abdou Samad moom Serigne moo daw ball ku baax te ñëpp nangu ak baaxam borom xam-xam ku maandu ku ragal yàlla ku ñëpp wekk yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko kon Serigne gi. nga nuyoo leen ñin war a àndal waxtaan wi ñin war a àndal xam na jot na waaye ñin war a àndal jotaay bii nga xam ni jotaay bu am solo la Serigne Ousmane bokk ci ñi war a waxtaan waaye ñu nuyu ko ndax euh, dafa yor euh, sëtub borom Daarul Moxti ñaari yoon mu moom Serigne Fallou Assi mu euh, moom Serigne Modou Balla di suñu xarit di imaamu Daaru Rahman moom itam agsi na ci jotaay bi ak sëñ Moustapha Guèye jàmbaar suñu xarit kon sëñ am jox la rek nga mën a nuyoole ñin war a bokkal waxtaan wi dunduk borom Daarul Moxti mooy dunduk kë sëriñ Tuubaa wóolu woon eh, def ko loxol ndeyjooram wóolu ko ci biiram wóolu ko ci njabootam sëriñ Amidou Diop jërëjëf eh, maam Cheikh Anta eh, ñu ngi nuyu téléspectateur yëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jaar fi nga jaar rek di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool ci mu wér di siyaare Serigne Bassirou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa borom Daarul Mooti di nuyu mboolem téléspectateur boo xam ne ni yaa ngi jàkkaarloo ñun fii ñu wax yéen ci réew mi ak bitim réew. Eh, di la ndokkeel ci eh, jataay bu mag bii nga xam ne ni kenn du wax ne guléet ci Touba TV ndax eh, bokk na ci jataay yu njëkk yu mag yi ñu fi njëkk a amal muy jataayu borom daal mooti tey jii nag ni nga ko waxee mu nekkaat beneen spécial boo xam ne nii bu ñu ko gisee ci ecran bi ñëpp danañu xam ne am na lu rëy luy waaja xew dafa am benn slogan bu bees bu ñu génnee boo xam ne dafa tudd xam Thierno jot na waaye dafa mel ni dañoo war a caa dolli sax ne euh, preuve sëriñ bu mag bi mooy maam Thierno Ibrahima Daamal hmm. ndax koo xam ne nii laataa nga fiy jógee defar nga am sëñ Touba ba fi nga xam ne même boo fa desoon it du tax Touba bi am jàmm kon preuve sëñ tubaab mooy maam Thierno ndax Daamal Daaru hmm. euh, tey jii kooku la ñuy waxtaane fas yéene ko teg ci xam-xam muy koo xam ne ni sëriñ bi daf koo duy ci fii kulli fannin muy ci xam-xam muy ci mat gi muy ci sell gi muy ci jub gi muy ci murite gi waaye nag muy ci dëggu gi bàyyi gi mu bàyyi li nu bokk diggante nit ak waajuram waaye topp Serigne Touba diggante nit ak sëriñam ba am nii mu am tey képp koo xam ne ni jariñu nga ci moom ci loxol maam Thierno Ibrahim nga jaare ngir njariñ loolu mën a egg ci yow loolu nag moo waral euh, ñuy def ay plateau spécial di sensibiliser ak di fàttali ndax euh, dafa nekk tomb buñ mat war a waxtaane tey euh, muy koo xam ne ni jàpp naa ne buñ ko waxtaanee réew mi ak ñi nga xam ne ni bëgg nañ lu baax daan ci jariñu loolu moo waral plateau bi jàppoon nañ ko nit ki gaaw bële jàll Euh, ndog dal ñu ndog loo xam ne nii ngàntu àddina sépp la euh, mu bàyyi ko fi muy sëñ Mamadou du Mbacké euh, moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké mi nga xam ne ni lu ne def na ko ci lislaam lu ne def na ko ci yoon murit ci lu baax te kooku jar na gàntal ay plateau yi plateau rawatina nag bi nga xam ne bokk na ci plateau borom daaru ñu koy ziyaare taalibe yépp rawatina xalifaam bi fi nekk muy sëñ Xalil ak sëñ Siidi ak mboolem njaboot gi nga xam ne ni ñoom la fi bàyyi Euh, maam Cheikh Anta plateau bi ñu ko jàppee ñi nga xam ne ni ñooy waa euh, euh, njabootu gi nga xam ñoo liggéey seen bopp sëriñ bi jox leen ndigal ci takk takku defar daaru ñu waxtaanoon ñoom ba tënk waaye sëñ ma faal koo xam-xam ne at mu nekk dina ñëw fii def benn plateau boo xam plateau spécial lay doon ci borom daarul moo ti ngir ñu waxtaane ko yàlla dogal nag moom ay ndomba yu bari dina ko takk ndax Euh, ku ne xam na ni kenn rek la bëgg muy borom daaru bi mu yëgee ñoom jàpp gi jàpp plateau bi fii mu ne nañ boole yépp def ko benn ndax lépp borom daaru la mm. ndax moom mooy représentant euh, xalif borom daaru Muxti fii ci Ndakaaru mm. te it muy jëwriñ ju ko mate sëkk nag te mm. ñëpp nangu ko nag ndax taxawaayam ci kër Cerno Birahim euh, loolu moo waral ñu boole ñaari plateau yi def ko benn ñoom léegi bi ñu egsee dañoo nuyoo moom ne ko liggéey baa ngi noonu ñëw toog mooy panneau bii ngeen di gis muy loo xam ne ni ku dib taalibe waxuma sax ku dëkk daaru de wala saa daaru déedéet waaye ku dib taalibe am nga obligation ci jàpp ci liggéey takk ko defar daaru ndax dëkk la boo xam ne nii ku ne xam na ko borom sañ ca loolu borom xam-xam ci ñëw eh, kaw bi ñu waxtaanee nag sëñ seexanta ci la ñu tànn ay boromi xam yoo xam ne bu ñu leen wone ci écran bi danañu xam ne ñii nii mat nañu sëkk ay eh, consultant yu war a toog waxtaane borom daarul mooti ñu tànn sëriñ Abdoulaye Diop Bisri mi nga xam ne ni ku xam na ni bu conférencier la borom xam-xam la historien la Euh, ñu mu mu mu nekk fii ci télévision bi euh, di koo xam ne ni kuy liggéey jël sëriñ bi ci xam-xam la mu feggoo ci ak sëriñ Gana Messere Maxtaar mi nga xam ne jàpp naa ne benn étiquette bi ñu koy takkal weesuwul mooy liggéeyaa konu borom daaru borom Touba xaadim rasul waaye nag sos ci ndigal ki nga xam ne ni tey moo fi bàyyi ko ndax ko def nii mu mel hmm. muy sëriñ Modou maxtar Mbàkke ñu di ko ko jaalewaat bu baax a baax a baax euh, moom it muy war a ñëw bokk ak ñun li nga xam ne mooy plateau bi waaye sëñ Cheikh Anta du ci wéet ndax mi ngi ci feggoog koo xam ne ni moom it conférencier la à l'international muy Serigne Bamba Mboup mi nga xam ne ni ku ne xam na moom it ak bëggam Serigne bi ak taxawaayam ci yoon wi loolu moo waral ñu tànn ko tey moom mu ñëw mu feggoo ci ak Serigne Sadibou Touré Serigne Sadibou Touré jàpp naa ne képp kuy topp ay waxtaanam wax naa ko léegi ci biir eh, lim lay jàngal mooy Sëñ Touba ak différence écart bu sori bi nga xam ne ni am na ko ci lim fi fekk ci lu baax ak lim fi suuxat loolu moo waral moom itam muy sunu waajur ñu tànn ko mu ñëw eh, ñuy xaaral imaam Cheikh Awa Balla Gueye waaye ni mu ko waxee tudd nga njabootug borom daaru gi fi ñëw suñ ci tuddee sëriñ Mahmoudan Mbacke moom sëriñ Basiru Mbacke Antañang dafay mel ni mën naa yóbbaale teg ko ci loxol sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Cheikh Awa Balla ni nga ko waxee léegi xam ne euh, jàpp naa ne loolu ma wax léegi sëñ Mourou nañ ko teg ci loxom mu yóbbu ko mm. kon day yàmb day mel ni tudd nañ ñëpp incha allah danañ ci ñëw ndax sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne ni moom lañ doon coordonnel jox na ma listub ñi nga xam ne ñoo fi nekk mm. ci kaw loolu sëñ Cheikh ngir njëkkanteeg waxtu wi ñu ngi ziyaare suñu waajur sëñ Silla Baye Fall euh, di ko ñaanal bu baax a baax moom tamit barki dem ñoo nga woon daarul mën naan fegoo feggoo ceeg Serigne Mor Gueye moom it jànkatu xasaayit la euh, euh, ñëw moom itam ci plateau bi ak sunu wëllër wi nga xam ne ni moom it léegi incha allah sëñ Ibrahima Fall Euh, ñuy siyaare baax Serigne Cheikh Balla Samb moom ñëw na ci plateau bi euh, ni mu ko daan defee di teewal jëwriñ Alaaji Mbàkk yu fay ci jataay yëpp moom it ñu di ko siyaare baax jëwriñ ndax barki démb gis nga ñaan gi ñoo ne fa nekkandoo plateau bi dañ ko defoon rek taxaw ci taxawaay bu am solo ak sëñ Jibril Ndaw ak sëñ Mbàkke Mbooj kon maam Cheikh Anta euh, day mel ni ku ñu laaj rek ngir njëkkante kàddu gi buñ la joxe nga nuyoo mën nañ lancer waale question bi hmm. ndax tey dafa wane murit ak maam Thierno. Mhm. ñi ngi nuyu baax sëñ Abo Sall mi nga xam ne moom jàpp naa ne moom it kenn la ci kër gi. Mhm. waaye kenn la itam ci jataay bi. ku ñu nuyu rek mën nañ la joxaale question bi ndax ñoom ñi kenn ku ci nekk ci ñoom kenn ku ne doy na. guddi doy na guddi. Mhm. sànq rek am na kilifa gu ma wax ne ma seen plateau bi de tey dana ruqe lool maa mu ngeen boole dana metti waaye dafay wane murit ak maam Thierno Ibrahima. ndax tey dafa jot sëkk ñu ne sëñ Touba kat comme dañ koy waxtaanee ngeen jàpp ne loolu xanaa xamoo ne ay numéro 2 sax. yemuñu kenn ku yàlla bind loolu nag yaakaar naa moom euh, euh, lam doo xam ne bi saanis nay ni hiina huma saanis nay ni moom mënuñ koo toftal ku dul maam Cerno Birahim loolu bi rek la question bi nga nuyoo ñu mën a dugg ci jotaay bi ndax ñii seetaan mën a jariñu ndax ñun taalibe yi ñoo war a njëkk a jariñu ci Cerno hmm. balaa ñu koy exporté sax muy dem hmm. ndax ñun ba tey ji am na lu ñu ci njàmbaaram hmm. ci xam-xamam ak muritéem ak maandoom ak dëggoom sëñ Tuubaa noppi ci moom lépp hmm. kon maam Cheikh loolu yaakaar naa ne bu ñu ko tënkee boole li ñu bëgg a waxtaanee hmm. eh, jël suñu nuyoo nag teg ko ci loxol sëriñ Abo Mbàkke moom sëñ Fàllu Asa Jéey hmm. nga xam ne diggante relation ak njabootuk borom Daaru Muxti liggéey na ci liggéey boo xam ne ni liggéey bu am solo la fu ñu fekk taxawaay boobu lay am ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko teg ci loxoom mu yaatalal ñu ko ci njaboot gi ak sëñ Moustapha Guèye mii nga xam ne nii heure bu ñu ñëwee Daaru Muxti lu ñu fa bëgg wax dëgg yàlla ci rek lay des euh, mu yomb lool jàppandi kon maam Cheikh ma bàyyi la nga nga nga nga nga lancé question bi euh, ci euh, ki ñuy tàmbalee jàpp naa ne li ñuy mën a tàmbalee du weesu biographie door a ñëw nag ci biir xam-xam bi ak yaatal gi ak jariñu gi maam Cheikh Anta Samb jërëjëf sëriñ Amidoune euh, ci lu matale loolu nga nuyoo ñu dalal imaamul akbar sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye waaye di ziyaare bu baax euh, ña nga xam ni ñooy njaboot ga nekk Daarul Moxti gépp euh, teg ko ci loxol ki yor kàddu borom Daarul Moxti muy sëriñ Basiiru Abdul Xuddoos waaye nuyu sëriñ Daaru Marnaan alxaaji maam Cerno nuyu mbooleem bunti kër yi borom daaru yëpp la ko dalee ci kër sëriñ Moodu Awa Balla ba ci sëriñ Xalit nuyu ñu setoo ci borom daaru ci jigéen ñëpp soxna Faati Cerno ba ci caatum borom daaru mu jigéen nuyu seex si aju ci borom daaru yëpp nuyu ñëpp wëlbatiku nag ci sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ngir njëkkanteeg waxta waxtu yi sëriñ Abdoulaye Diop ni sëñ Tuubaa bëgg ni ku ni mel borom daaru moxtee ni mel ku roy borom daaru noppal sëriñ bi ku gëm sëñ Tuubaa faaw nga gëm borom daaru moxti ku bëgg sëñ Tuubaa faaw nga bëgg borom daaru moxti ndax sëriñ bee ko melal ni mu mel moom Cheikh Ibrahima Fati def ko ni mu mel wane ko muy modèle boo xam ni ku ko roy doon jullit ak xan waaye doon murid saadix kan mooy borom daarul moxti ñu dalal imaam Cheikh Awa Balla Gueye sëriñ Masamba Gueye ma waajuram bokkoon na ci ñi àndoon ak borom daarul moxti euh, di ku baax nekk ci barab bi di suñu waajur di nit ku baax di borom xam-xam kan mooy borom daarul moxti loxol ndajorul sëriñ tubaab googu sëriñ Abdoulaye Diop Bichri waa aouzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi topp jataay bi yépp ñu leen di beral nuyoo ginnaaw bu nu santee yàlla sunu borom mi nu sàkk julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam sant cheikhul xadim di gën a yeesal sunu jaayanteeg moom di ñaanal suñ muntaqa bachir mu yàgg fi te wér di ko ñaanal waajuram bu baax wala ca daarul moxti di sëriñ basiru antañang yàlla na yàlla sàmm ko mu yàgg lool ci kanamu njaboot di ñaanal bu baax suñ Moustapha sa Jaxate Mbakke mu yàgg fi te wér ak mboolem njabootu borom daarul moxti nuyu kilifa yi ñu bokkal jataay bi yépp di joxe ngànt ci toogin wi ndax taalibe moom bu toogee ak sëriñam dafa war a mel ni néew bu ñuy sang wa kun la da cheikhi ka maytin wudia bayna yaday gazilihi tantafia la sëñ Tuubaa wax kon nu ngi joxe ngànt bu baax ci toogaay bi di nuyu bu baax alaaji Mafal Fall di ko sant jaarale sun nuyoo ci moom moom mii jëwrinu maam Cerno boroom Daarul Moxti fii ci Ndakaaru ci ndigalu jëmmi maam Cerno jox ko nuyoo mu joxal nu ko sunu sang yu baax yi dañuy nuyu rek sëriñ Mamor Mbàkke mu sëñ Cheikh Awa Balla yaa xafaara zunub nuyu sëriñ Jiili Abdul Xaadir Mbàkke mu sëñ Moodu Awa Balla nuyu tamit sëriñ Mahmadan Mbàkke mu sëñ Basiru Anta ak njabootu sëñ Abbas gi fi teew ak mboolem seeni mbokk beral nuyoo sëñ Abo mu sëriñ Fàllu Assa Jéey mu nuyul nu euh, rakkam yépp nuyul sëñ Abo sàll ku ne xam ni surtout sëñ Modou Awa baala la bokk ci kër gi am ci taxawaay di sant ñi ma séqal jataay bi ñuy ay boroom xam-xam yu mag senegal gépp di leen bége yoon wi di leen bége ci seen xam-xam ak ci seen baax ñu ngi nuyu Serigne Gana Messere Mokhtar di ko sant bu baax di ko ñaanal ñu ngi nuyu Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbuub di ko ziyaara di ko ñaanal ñu ngi nuyu sëñ Saadi bu ture moom it di beral nuyoo sunu nijaay ju baax jii di door a agsi tey royukaay bu mag ci xam-xam ak ci yoonu murit muy imam Cheikh bal Balla Gaye bu leen nuyoo nag door a ñëw ci laaj bi nga laaj ngir tontu ci ndax loolu mooy warteef ku yëkkati kàddu ci jataay fekk nga feggoo ki nit danga war a nuyoo bala nga def dara nga laaj jëmmi borom daarul moxti diggam ak cheikhul xaddim da wax léegi wax ju am solo yow sëñ xaamidul nga àbbu waxi sunu boroom yi mu wax ca sóoratu ba ilaa tansuru waxat nasarahu llah is axrajahu alladina kafaru saanis nay ni is huma fi lgaari is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana fa anzala sakinatu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu laa yalhulya wallahu azizun hakim yàlla dafay fàttali ci alquran ànd boobu yanant bi àndoon ak sayduna abou bakar saddiq bi muy gàddaay di génne màkkatal mukarrama jëm madinatul munawwara muy wane ni ñoom ñaar ba ñu wéetee ka nga xam ni moo ko ñaareel ba ñu nekkee ñaar ka nga xam ni moo ñaareel yanant bi ba ñu nekkee ñaar ca biir xuntuma waa màkk génn leen ci kaw ak tooñ ak weddi sunu boroom defal leen dimbalam jox leen ndimbalu wéttali leen ay soldaar yoo xam ni ñi weddi yàlla mënuñu koo teg bët waaye ñëw nañu tëbb doole Mustafa alayhi salaatu wasalaam ak soppeem ba mu àndal sayduna aboubacar saddiq yonent bi dalal ko ni ko laa tahzan bul jàq bul tiit ndax inna allaha maana yàlla ànd nag ñun kon seen ànd booba mooy àndu sëriñ tuuba ak borom daarul moxti waaye ba tey wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi fa ulaayka humul muttaquun ca sóotu zumar mooy seen ànd ñoom ñaar ki nga xam ni indi na dëgg gu leer nañ ñi ci pénc mi yonent bi li mu indi lépp dëgg la ndax yàlla ak ko jox sëriñ Touba bi mu ñëwee dafa donn yanant bi alayhi salaatu wasalaam desalul dara kon li mu indi ci pénc mi lépp a wér waaye ka ko dëggal ci loolu ñu ànd ko ñoom ñaar ba yoon wi tey fii mu toll mu toll fii man nga ni mooy borom daarul mooti booy wut murit saadiq di wut jullit xaqan boo xam ne dara desul ci njulliteem di wut borom xam-xam bu géeju ci fànn yépp di wut jëmm ji gore di wut jëmm ji matal kóllëre di wut ku dëggu ci diggam ak boroomam man ngaa jël lépp portrait maam Thierno borom Daarul Muxti te loolu Serigne Touba ko forgé ci moom xam nga seen ànd dafa door keroog ci alxamis ji mu ganee àdduna ci poroxaan la feeñe loolu la ñépp nettali te moo gën a wér waaye tur ñu ngi ko ko tàndalee Njabakunda ndax li avant bis bii jël si ñu koy tàndal tur daa fekkoon xeex am muy xeex bu ñépp xam ci histoire muy la bataay de paate Badiane paate Badiane aw xur la fa la xeex bi amee boo demee ci archive di nga gis benn monument bu ñu fa defar sax tey boo fa rombee def ci date bi la 30 novembre 1865 ci la xeex bi am mu am ci xur wu ñuy wax paate Badiane ca Paoskoto diggante Tafsir Maba Jaxu Ba ak tubaab bi ñuy wax Pinet Laprade jàng nañ ko ci histoire mu nekkoon xeex boo xam ni tafsir Maba Jaxu Ba dafa tàllal loxoom kilifa diine yépp ngir ñu may koo doole jàppale ko ngir seen mbokk la ci la maam Mor Anta Sali dem yóbbaale njaboot gi lii mooy contexte bi waral maam Cerno feeñe Saalum te Saalum gi mu feeñe tam barke la ndax gis naa fu sëñ Tuubaa bind wax ni su fekkoon damay tànnaatal sama bopp fu may ganee àdduna Saalum lay tànn waa hmm? ko bind su fekkoon damay tànnaate fu may jànge jiwaat gànnaar lay jànge kon loolu wane na ni Saalum suufu barke la foofee la boroom daaru feeñe ci atu mille atum 1865 wala 66 ndax am nay werante li nu werante wut mooy ci atu gàddaay mi 1283 la fay. hijriya waaw hijriya soo ko bëggee xam ci atum nasaraan da nga koy diviser par 33 dana am chiffre booy am bu fekkee chiffre bi dafa am loo ko arrondir mu topp ci su rombee plus de 5 nga daal di koy taf plus 1 door a jël. cent 622 wàññi ko ci loolu lim ba nga am nga dellu ca chiffre ba nga njëkkoon a am muy mille 1283 boo ko ci tafee rek am atum miladiya mhm. kon 1865 day gën a wóor jëm 1866 ndax sëriñ bi màggee na ko fukki at ak ñaar te sëriñ bi ama charan la feeñ mooy 1270 ci gàddaay gi su ko màggee fukki at ak ñaar jëm ñett kon li ma wax day wér ndax 1852 wala 3 day dëppoo kon 1865 wala 1866 ci la borom daaru feeñ mu feeñe poroxaan ñu tuddee ko Cerno Ibrahima Kan sëriñ bu mag la woon boo xam ni kóllëre Maam Mor la mu ngi fekk dëkk ci dëkk bu ñuy wax màqaam dëkk boobu sorewut ak Muritani fa la bu fekkoon baax kooku muy kóllëre Maam Mor Anta moom la dëppe jàngalekat la woon nag moo xam tuddee ko Cerno ci xaal pulaar mooy kuy jàngale sëriñ kooku mooy turandoo keroog bi muy feeñ it mu ngi fekk sëriñ Tuubaa di jàng alquran di jàng sóoratul xasas toll ci wa aqi xaaruunu wa afsahu lisaa lisaanan fa arsilu maay reddan yu saddiq nii inni inni axaaf an yukazzibuuni ca sootul xasas sama mbokk di xaaruunu moo ma gën a jote aw làmmeñ ndax hmm. làmmeñam suy wax ñépp dañ koy mën a comprendre hmm. kon yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yónni sama mbokk mii def ko ab yenantu damay ragal ñu weddi ma ci sama làmmeñ ndax ni mu ñàkk a set fii la sëriñ Tuubaa toll nu yëgle ni soxna Faati Isa Jóob sunu maam ju baax ja am na gan fekk na lu ko jiitu seen wéyjur xaadim Mamar Anta Sali Mbàkke waxoon na sëriñ Tuuba ni ko li ngay bëgg a taxawal sa rakk jii di feeñ am na ci cër bu rëy mooy listaxaar bi su fekkee dafa feeñ di góor ma xam ni li nga bëgg dina sotti moo tax keroog sëriñ bi da doon teertu maam Cerno wax nañu di bàgg ci néegu sàkket bi di ko wër di jàng alxuraan di teertu rakk ji ñëw ngir di ñaan suñu borom mu nekk góor gu yàlla gu ko jàppale ci mission ba ni maam Cerno feeñe sëriñ bee ko bindal asab atul mun jiyaat mooy juróom-ñaari aayaat yi nga xam ne kuñ ko bindal nga mucc sëñ bee ko bind takkal ko borom daarul moxti mooy ndomba baat bi mu daan takk keroog la seen ànd door tàqalikoo ñu ñoom ñaar ba keroog bi ñuy miraas seen weeju ndax xam ngeen seen wéyjur 1882 la fi jóge waaye biñ koy miraas lan la sëriñ Tuubaa wax nan ma jox kaamil bi ak cerno kaamil bi ak cerno kon yàgg na ak cerno wax ni cerno bu ko kenn sédd buñ ma sédd cerno may cëram mooy sama cër seen ànd bi keroog la doon ku dellu ci téere sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana danga fekk muy nettali ngan gi sëñ Touba sax doon gane ji pir nee na bi nu ñëwee dangay fekk ni sëriñ Touba ci suufu garab gi muy yendu sax maam Cerno lay wéttali ko muy ànd bu teel biir bi mu ko génn lu gàtt la at la toll benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ ñang dëkk ca barñi sëñ Moussa Ka nee na ab séññi séññi la bu mën alxuraan séññi séññi ci baati wolof mooy ku nekk ci dëkk lébu doo lébu ni ñoom mm, cosaanoo sëriñ ñang la tuddoon mook maam Cheikh Anta lañ fa joxe ndoo at la fa jot a jàng seen wéejur jël ko jox ko sëñ Tuubaa sëñ bee ko mokkalloo alxuraanul karim sëriñ bee ko jàngal xam-xamu tawxiid mooy xam-xam bii tax nga wéetal yàlla sa borom doo ko bokkaale sëriñ bee ko jàngalal boppam tawxiid jàngal na ko tam fiq nga xam day xam diineem jox ko ndigalit bi mu waree jàngi feneen sëñ bee ko jox ndigal mu dem ci sëñ moor baraam a jaxate ba muy dem gis ngeen wooyu rafet yam ko woy ba mu ko joxee sëñ moor baraam a jaxate dane ko sama loxo de su juumoon ba laal la benn bis li may wut ci yàlla duma ko am sama maxsood bii duma ko am hmm. kon noonu lañu àndee woon <laughs> dem na tam jàng ci maam ma jaxate la ci ndigalu sëñ Tuuba ba mu fa demee jàng na fa fiq jàng na fa aruud ilmul aruud mooy xam-xam bii tax nga mën a taalif te boroom daaru ay bindam dina wane ni ku mënoon a jàng la waaye war ma ji mu jox sëñ Tuubaa moo tax daawut préféré taalif da ko bàyyeel taalif bi te nekk ci ndigalu sëñ Tuubaa ci yar ak jàngale ak taxawu yoon wi seen diggante boobu la ànd ànd mësunoo tàqalikoo ñoom ñaar waaye sëñ Tuubaa defaral ko boppam ba mu mel ni euh, portrait bi ñu war a roy mooy borom daarul Muxti Maam Cerno te yii ma lay bëgg a wax ku xame ko wax muy sëñ Ibrahima Diop almasori soo seetee wooy wi mu woy borom daaru da cee indi portrait ni mu mel nga xam ne lii ku ko mel mooy jullit xaqan nga sëñ Ibrahima Diop almasori dafa wax ni man zaara cheikhiya ibrahima faati yara min almakarimi maa la fil bilaadi yura man xalla dayfan ladayhi naala matlabahu mhm. min kulli ma yustahi min tayibaati qira wa man ataahu li ilmin wa tilaabi hudan aw li nadan yalqa bahran saara musdaxira isa takallama abda lil wara duraran wa in bada wajuhu abda lahum qamara wa yuxjilul xaysa yowmal jóodi mubtadira wa yuxjilul layfa yowmal baasi muntasira mhm. fa lasta talqaahu illa daafian dararan aw qaadiyan wataran aw taaliyan suwara aw muxyiyan sunnanan aw muctiyan minanan aw mucliyan mikanan aw haadiyan zumara aw naatiqan xikaman aw shaafiyan shaqaman aw jaaliyan zulaman aw mubdiyan bushara mhm. xalil awaa'iqa kullan yaa muriidu wa ji ilayhi bi sidqi wa tasliimi fiihi tara rusdan bilaa iwajin diinan bilaa xarajin xusnan bilaa samajin xaqan bi gayri mira ficlan bilaa malalin xawlan bi laa xalalin nubhan bi xayri kalaa mhm. lii doy na ci ku nu defar moo mën a mel nii ndeysaan loolu laay leeral loolu sëñ Ibrahima Diop almashar yi tënk leeral ko mhm. dafa wax ni mhm. ku dem ziyaare ji sama sëriñ la wax man zaara cheikhiya ku dem ziyaare ji sama sëriñ kuy sëriñ boobu ngay wax mu ne Ibrahima faati luy xew mu ne yaraaxal set naa gis minal makaarimi ci xeeti ay teraangaak xeetu may yu ko yàlla may maala fil bilaadi yura yoo xam ni kenn du saat yu ni mel ci menn réew moo dem ci borom daaru rek nga koy fekk mu ni waman ataaku ku ko dikkal nag li ilmin ngir xam-xam xanaa ko loolu leer nag li ilmin ngir xam-xam sëñ Falloo waxoon ni maag sama mag ju baax gi sëñ Moodu Moustapha sunu bàyyi ceer noonu jàngal bañ ñi xar mu yar ñu bañ ñi nër kon loolu doy na tegtalu xam-xam bi waaw li ilmin aw li tilaa bi ku ñëw tam ci borom daaru ngir sàkku njub ki gën ci mbindee fi nee na bu la joxoon adduna ak li ci biiram gëm ko gën alquran sax bi ko yàlla di leeral ñu gëm wàcce téere bi dañ alif lam mim dalika laa rayba fiihi hudan lil muttaqiina door a wax nag alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquuna walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuuna ndax ulayka ala hudan min rabbihim ulayka humul muflixuun kon njub alxuraan loolu lay jàngale si lislaam loolu lay indi wa man ataahu li ilmin wa tilaabi hudan aw li nadan wala xéewal yalqa baxaran saara musdaxira di nga fekk maam Cerno muy géej koo xam ni day fees dell rembet di tuur ku dem njir njub wala ngir xam-xam ki ngay woy di boroom daaru ko mu doon woy kan mu daal di wax ni mm-hmm. xanaa xamoo ki may woy isa takallama ab daalil wara doraram maam Cerno bariwul woon ay wax genn wax ju mu wax day mel ni wurus biir wu tëgg di pare ci moom ndax wax ja jub ga muy jub ak na muy dëppook alxuraan ak sunna Mm-hmm. isa takallama abda lil wara dorara wa in bada wajhuhu abda lahum qamara ah mm-hmm. siimihum fi wujuh min athari sujud zalika masalum fi tawret masalum fi injil mm-hmm. kon xar kanamu maam na ku jàkkaarloog moom day mel ni ku gis weeru fukki fan ak ñeent ngir leeru jàmm yàlla wallaahi dëgg la kuy borom daaru mu daal di wax ni wa yuxjulul xaysa ngàcceel na taw maam Cerno gënoon a tabe ci jamono boo demee ci téere bi nga xam ni sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mii di xalifa bi te bokk ci ñi dàq jàng bind na wax ni daana maye juróom benn fukki sëy ak juróom ci benn bis te lépp mooy joxe can bi tabe fa la yépp kon wa yuxsilul xaysa yow mal jóodi mubtadira bisub joxe moo dàq joxe taw wa yuxsilul laysa yow mal baasi bisub xare xeex maam Cerno gën a jàmbaare gaynde sëriñ seex maam Seex Isaa Jenn nee na ma doon rëbbi gaynde ànd ak cerno ma doy du ma doon rëdd gaynde su ma doon rëbbi gaynde ànd ak cerno képp ma doy sëñ Ablaye ndax ngor gi ak fit wi mhm. ma tënk lool nga tënk mu ni kon gàcceel na gaynde mhm. ci bis boo xam ni bisu ay la mhm. mu wax ni nag kenn du gis maam cerno lu dul dangaa fekk ci loxoom mu téye alquraanu karim di ko jàng cee lii la ko sëñ Tuubaa yare jàng alquraan di jàngi saar kenn du gis maam cerno lu dul dangaa ñëw sa aajo faju lii may nettali soxna a Diop a ko nettali ma ma koy nettali xale laa maa ngi Tiwaawan di jàng soxna Awa Diop bokkoon na njabootu borom daaw nee na moom tawat na ba ñu yóbbu ko ba ñépp ni c'est fini kenn mënu ko fay wëndi nañu sëriñ mu xool ko ni kii du yendu wala du fanaan nee na bañ ko waxee borom daaru dadi comme ñépp tële nañu xaaral ma xool ba xam nee na meewum gëléem la wutlu jox ko soxna si ne ko barkeelu ci te bàyyi dugub ji fii ak fukki fan ak juróom ñu seet ba xam bi fikk fan yéeg juróom matee soxna si nee na maa dox ak sama tànk dem ci pénc mi mu ni soxna xawaa nu yaram wi def ma ne ko mbàkke bàll wér naa pélép mu ne ma li la dal mësut a dal ku la fi jiitu mu wér li la dal du dalaat kenn sa ginnaaw mu wér cëy kooku dafa jubóog boromam kon dëgg la kon giñ lor mhm. nim ci meloon kenn amu ko mhm. waaye sëñ Ibrahima Diop wax ni wala nga fekk ko muy dundal na lu mat a bàyyi xel dundal sunna mhm. boo demee ci téere boobu doomam bind sëriñ Mor Anta Silla mm-hmm. xëy na suba bañ a jàpp rek borom daaru gis ko ni ko lu dox sa digganteeg jàpp te ñi xam téere yi te koy gëstu xam nañ ne yanant bi alayhi salaatu wasalaam ñaari yoon la mës a tiim ci dundam 63 ans yi mu dund sëriñ Touba benn yoon la mës a tiim maam Cerno ñaari yoon la mës a tiim bi muy sanc koso bi ñuy tuddi sëñ Masamba ca Pataar te bi mu amee ndox da koo fay fala sàmm yem mu wax ni kenn du fekk borom daaru lu dul da nga koo fekk muy dundal sunna fekk ko muy joxe xéewal fekk ko muy yëkkati ay daraja ñaata la seexal ginnaaw sëñ Touba. man nga ciy lim 84 seex. ndeysaan mu wax nag ni kon. Uh-huh. boroom daaru daal. jëf ju amul erreur mooy moom. Uh-huh. wax ju amul luñ ciy xeebat mooy moom. Uh-huh. Euh, diine ju amut lu ko rax mooy borom daaru taaraayu diine ju amut lu ko ñaawal mooy borom daaru mbaax gu amul yokket mooy borom daaru moxti kon sëñ Tuubaa da ko def photocopie bi nga xam ni mooy jëmmi Serigne Touba présenté ko jullit yeeg taalibe yëpp ngir ñu roy ci borom daal ku ko roy doo ku ko roy daal doo juum doo jam. barakallah sëñ Ablaye euh, am na solo euh, ni mu tijjee jotaay bi day wane ni ni sëñ Touba buggoon ku ni mel borom daaru moo ko mel. kon nañ ñëpp roy borom daarul moxti ngir mën a doon jullit aqan waaye doon murid saadix ngir mën a noppal Cheikhul Khadim sëñ am ñu bàyyi la nga dugal ki ci des rek ndax euh, waxtu wi tey ñiñ am ndax sëñ Saadi bu Touré sëñ Gànn Mesere sëñ Bamba Mbuub sëriñ Ousmane war ko feelu imaam Cheikh Balla Gueye moom sëriñ Massamba Gueye njaayaan wala jaayaan nekkoon mag ñi nekkoon ci borom Daarul Moxti muy lu am solo moom mii rek 83 wala 84 loolu sëñ Abdou Khoudous doon def di ko wax ci arab moo ko doon firi ci olof ñëpp di ko dégg kon loolu lu am solo la kon sëñ am ñu bàyyi la nga dugal alxaaji Bamba Mbuub suñu mag suñu xarit mu dugg moom tam ci xam Cerno jot na waaye jot na sëkk nag jërëjëf maam Cheikh Anta ñu gërëmaat Euh, dafay mel ni jataay bi mi ngi jàll ci euh, rajo daarul Mouhty en direct. Mm-hmm. fi ñuy wax ak nii euh, kon kilifa yi nga xam ne ni ñu ngi ci biir daaru ak li ko wër lépp ñu ngi topp li nga xam ne ni mooy émission bi. Mm-hmm. sëñ Ousmane Mbakke léegi bi ñuy nuyoo dañ ko suñu xel ko faay waaye xam nga ni ci affiche bi la bokkoon sax. ndax jataay bu njëkk ba ak ñaareel bi yëpp. Mm-hmm. kon moom war nañoo ñëw ak moom léegi incha allahu taala. su ko defee sëñ Bamba Mbub bala maa ñëw ci sëñ Gànna damay ñëw ci reflet bi borom daaru am diggam ak sëñ Touba. Euh, tey boo xoolee mën nañu wax ni gis nañ sëriñ bi gis nañ maam Thierno ci sëriñ bi laataa fee sëriñ bay jóge bi fi sëriñ bi dellusiwaatee itam ba dem gànnaar ba dem jëw ceyen ba ñëw Njaaree 1912 ci la ko sanculoo Daarul Mooti boobu sëriñ baa ngi commencé di décentraliser yoon wi ndax xam na ne bu ko féetoo wetu pànk gi bu fattee wetu kajoor googu lu bare baree bare mën a mën naa mokk foofu kon reflet ban reflet lañ mën a jàngate ban gis-gis nga xool maam Thierno rek gis seetu Serigne Touba ci moom. micro bi waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi nuyu mboolem rek ku nekk fii ci plateau bi. ñu ko sëñ Abdoulaye Diop Bichri defee. Mhm. nuyu ko moom ci boppam. nuyu sëñ Cheikh. nuyu sëñ Gana di nuyu sëñ Mouhamadan moom sëñ Basiru keneen di ko jox nuyoo bi ma ko mbooleem mhm. mhm. da jàpp ci digg bi waaw ci kaw waa ci ki ci kaw waa mhm. di nuyu bu baax sëñ Ba Fall mii ma dendal nga xam ni mooy représentant xalif euh, général mm. euh, bu Daarul Muxti fii fi ndakaaru di nit ku baax koo xam ne lii lépp gis ngeen ko pastéefam ak pas-pasam rek moo indi lii lépp di nuyu na mboolem rek ku fi nekk di leen ziyaare di wax rek ne euh, slogan boobu ngeen wax xam ceeru na jot na loolu dafa leer loolu dafa wérte àdduna bépp war na xam war na ñu xam ni Ceerno Birahim Faty Diop moom rek la Cheikh Amadou Bamba wax ne ko isa ataka ududi yaay sama mbag sama përëgu nday joor loolu nag jàmbaar rek moo ko mën a am ci sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne nii moom fa aychuma taqaf ila akal ahad yaa xaf kamin xafi kaw kulla ahad moom du def recours ci kenn ku dul boroomam subhanahu wa taala ku mu ne yaay sama përëgum nday joor ku mu ne yaay sama loxob nday joor ne ko yow kat Ceerno Birahim Faati Jóob yaay ki nga xam ne nii bu ak bëgg doon paaka yow lañu ci rendi bu ak bëgg doon paaka rek yow lañu ci rendi muy koo xam ni nag sëriñ tubaay neen la amul benn rax sëriñ bee ko jàngal dégg ni ko sëñ Moussa Ka waxee sëriñ bee ko jàngal alxuraan ak xam sëriñ bee ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak liggéey la boole woon ba xëy am ndam jàng ak liggéey rek la Thierno Ibrahim boole woon ba xëy ab dab sëriñ bi def ci moom li mu def ci moom ba wóolu ko wóolikuun woo xam ne ni parce que maye ku la neex waaye dénkaane ka nga wóolu maye may ku la neex nga koy def waaye dénkaane nag ka nga wóolu Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne nii moo doon tukki tukkeem bu mag bi nga xam ne nee na walakin al xaybatu huwa sababu kullu xayru kuntu arid lépp loo xam ne amoon bëggoon naa ko am naa ko ci sama tukki bi walakin al xaybatu huwa sababu kullu xayru kuntu uriduhu lu ma bëggoon rek ci tukki bi laa ko am ka mu jël yoon wi jël ay bokkam jël ay doomi boppam dénk ko ceer na kooka la wóolu Cerno Birahim Faty Diop nag kudd la damay wax ne kudd la bi muy dem ci cin li la loxo ñemewu ci bi Cerno yi dem ci cin li loxo ñemewu ci kudd la ndax sëriñ bi ci boppam moo ni fa minhum man in raa nasaraani ni nii malaayiki rahmaan bi may dajeeg tubaab bi ku seen tubaab bi da ngay defee ne malaakam yàlla nga seen kon kamu wóolu ba ni ku jógal demal ma ci le gouverneur de l' Afrique occidentale française kookee sëriñ bi da ko wóolu kookee sëriñ bi da koo tëggal boppam kookee sëriñ bi dafa xam ni li mu koy bàyyee dara dara dara du ci mejj dara dara dara du ci yàqu tudd nga léegi yon ci yàlla Aarona ak magam ja si yon ci yàlla Moussa ñaata fan la ko musa dénk mbir mi mu yoroon dem def un retrait spirituel ci àll bi bi mu dikkee ci 40 jours yooyu fekku fi dara Thierno Birahim ñu dénk ko ko 8 juróom-ñetti at sëriñ bi ne ci àll bi dénk ceerno li mu yoroon lépp dara mejju ci dara yàquwut ceerno kudd la bi muy dem ci cin li loxo da cee ñemewul déedéet wax nga dëgg de waaw ceerno kudd la bi ko sëriñ bi tànn ne ko kaay demal ma ci le gouverneur de l' Afrique occidentale française Louis Moutet booba kenn ñemewul a gisub tubaab waaye ceerno ak njàmbaar ga ak fit wa ak xam-xam bi ko sëriñ bi mooñee ceerno ak fit wa ak xam-xam ba ak ni ko sëriñ bi mooñe def ci moom muy université boo xam ne nii li mu ko jàngal lépp Thierno dana ko exercer dama lay wax ne la maam Thierno ci aw fite moo ko ñaari yoon lañ wax ne la mës a génne ak ringooñ ñaari yoon benn bi mooy bi ko sëriñ bi bàyyee ak waa këram ñi feebar songu leen mu def tawasul ci boromam jàng alquran sotti ak ringoñ ci dëndam wax boroomam ne ko bu kenn naree dem ci waa kër xaadimu rasuul yi na sama jëmm ji dem bu dem mënta ñàkk na sama wéjur wi soxna Faati Jóob dem te nëm sëriñ Moodu aw bàll mii ma amul lu dul moom dem jooy ba sotti ringooñ dégg nga ñu ni keroog la def tawasul ci boroomam garanti ruu ya fekk yu bon ya ndax bëggul kenn dem ndax nit mës naa gis ku bëgg ku bëgg a dem sa waajur wu jigéen dem say doom dem te yi sa sëriñ bi toog fi ku ko mës a gis kenn musta am musta am mhm. Ceerno nag moom defal na loolu xaadimu rasul mhm. sëriñam bi ko dénkoon waa këram yi mu ne bu mu ñëw mukk ma ko ci laaxaan kenn wan fit la Ceerno àndal bi ko sëriñ bi yónni daf ne dafa dem àbbi mbubb moom Ceerno Birahim bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko dindil mbubb yi nga àbb ci sa sagar yii nga doon sol ci laa leen di tasxiire ñoom tubaab yi ba buñ la gisee duñ la ragal duñ la ñeme cerno delluwaat sol mbubbam ba mi ngi dajeeg tubaab bi fii ci kokki njaga isa jeey foofu lañ ko ne yow kat sa mag ji ñuy wax ahmadou moom lañu waroon a jàpp tey ji ci la diis mook benn pël lañu waroon a boole bu ñuy wax paate ci arrondissement Mérina Guène te dëkk bu ñuy wax ganaado waaye sa mag ji dañoo jàpp démb paate dañ koo gërbal yeew ko jatan ko tënk nañ ko dénk nañ ko chef de canton bu ñuy wax yebar mbóoj kon tey jii paate rek tey jii waxatuñu waxi paate tey jii daal cerno cerno sa mag ji lañ war a dajeel cerno na leen tey jii bu ngeen dajeek Ahmadou da ngeen xam ne ax ma du du paate paate du Ahmadou effectivement ban dajeek sëriñ bi keroog jeewal le 18 1895 cerno waxoon na leen ko nee na leen ki ngeen di dajeel du paate paate du moom cheikh mm-hmm. xaadim rasul dafa def cerno model bi nga xam ne nii moom la bëggoon ku ni mel dëgg la cerno mm-hmm. c'est l'exemple cerno nekk na xalif général des mourides sëñ Tuubaa nekk Gabon mu nekk mu yilif murit yépp dëgg la ba daam di dem jiyaat cerno la ñëpp doon siyaar tey nag fu neex waay mu siyaar ay waay nan sant borom koso ay waay nan sant borom daaru bu jëkk cerno rek la ñëpp siyaar Ceerno rek la ñuy siyaar tey jii nag fu waay neex mu siyaar waaye nag nan nan gore nag te sant borom kosoom mi nga xam ni moo yoroon mbir yëpp nekk xalif général des mourides ci kaw suuf si sëriñ bi nekk Gabon di liggéeyal boromam subhanahu wa taala liggéey boo xam ne nii nee na jóge ñaate man xaadimu rasul ñi bisi doxe na ma neexe biatu si wal islaami wal islaami wa hubtu xaaliman bila malaami may doxe na ma neex lu ma waroon lu dul lislaam nag jaay naa ko jënde lislaam may ñibbi si doxee na ma neex di pavanewul di doxee na ma neex te kenn du ni ma lii la waroon te defuloo ko déedéet xaadimu rasul lu ko war rek def na ko waaye Thierno Birahim Faty Diop mi mu dénkoon njabootam gi moom itam kat lu ko war lu nekk rek def na ko nee naa leen keroog bi nga xamee ni ni Cheikhul Khadim delsiwaat na le 11 novembre 1902 ñëw ndar. bis bii nga xam ne mooy nisfu Chaabaan wi muy gisee woon ak xaadimu rasuul nu dëgmal ko tey danu wax ne Cheikh Issa Dieng borom Dieng nekk Lagan moo ko woosi fekk na Thierno mboolem lu mu waroon a gardeel sëriñ bi rek gardé na ko mboolem lu mu waroon a yoral sëriñ bi rek wane na ca daraja wane na ca doole joo xam ni wane na ca xam-xam boo xam ni wane na ca njàmbaar goo xam ni kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis kenn mësu ta dëkk Thierno nee na nañu keroog bi ko Cheikh Issa di woo si da ko fekk Touba ci ndigali sëriñ bi mu ko joxoon dañu ko woon bu Touba gent mukk nga xam ne maam ceer Thierno dafa wutoon ñuy garder Touba mosquée daaru Minnan daaru naan daaru naar gi ñuy wax tey pencum sëñ Souhaïbou fu ci nekk Thierno Birahim Faty Diop dafa bàyyi woon ñu koy garder ngir du gent waaw moom li ko sëñ Touba wax yëpp da koy def sëñ Touba dafa wax ni Thierno moo boole ndigali yàlla yi ak samay santaane du ci bàyyi benn cerno rek boole ndigali yàlla yi ak samay santaane man Ahmadou Bamba du ci bàyyi benn cerno mës ta jëf leneen loo xam ne yàlla santaane ko wala xaadimu rasul santaane wu ko déedéet lu ñu ko sant rek lay def ñoom ñaar kon nee naa la Cheikh Issa bi ko sëriñ bi nee demal wooli ceer cerno dafa war dafa dugg ci saxaar gi ba ndànd mu jël aw fas ci këram dawal ko ba fas wi fes fas wi faatu mu jël teg ga takk geneen fas beneen fas bi mu ñëwee nu ni ko sëriñ baa nga Touba bi mu ñëwee daaru mën naan dañ ni ko sëriñ baa nga Touba ndax ceer Ceerno du bàyyi mukk Touba gent tubaab bi nag dafa tere woon ko dëkk Touba xam leen loolu daf ne woon Touba bu fa kenn dëkk toolub sëñ bi bu fa kenn demati waaye Ceerno Ibrahima Faati Jóob moom li ko sëriñ bi wax rek lay def faalewul waxi tubaab faalewul waxi gouverneur faalewul waxi kenn li ko Cheikh Ahmadou Bamba wax rek lay def moo tax Ceerno bi Cheikh Issa Dieng ñëwee ñu ni ko ma nga daaru man naan bi mu dëpp bi Thierno jógee Touba la dikk nag daaru man naan bi mu dikkee daaru man naan nag la ko Cheikh Issa ni sa mag ju baax ja ci tukki bu rëy ba moo ma yónni nee na ñëw na mhm. ñu ànd nag takk ay fas foofu ñoom ñaar jaar yol ma jaar yol ma jeng mhm. bi ñu demee waa yol ma yëngu génne ay teraanga bëgg rey ay gàtt ñu ne leen sëriñ bu mag bi mu ñëw sëñ bu mag bi moo ñëw kon taluñu yooyu nu jaar noonu bëtt jaar pekkees jaar ngaay ñëw ndànd bi ñu ñëwee la saxaar gi jëm ndar di yuuxu nu jël fas yéene tënk leen sant ya war ja fas nag nee na nu ñaareelu jooyub Ceerno mooy bi mu nuyoo Cheikhil Khadim sëñ Matar Samba nee na keroog la nu gis Ceerno jooy ci loxoy Xaadimu Rasuul ba mel ne danoo sotti am ndox ci loxoy Cheikh Ahmadou Bamba neena na sëriñ bi ci boppam sëñ Matar Samb nee na sëriñ bi moo jàngat alxuraan ba delloo si Cerno muy gisee boo xam ne ni eh, lu jiitu loolu xam ngeen ni eh, dañu doon màggal demuk maam Cerno daan màggal waaye nee nañu 1955 bi nga xamee ni sëñ Modou Awa Balla mu tedd mu màgg moomee àndoon nag waa Daarul Muxti dem ca tojub carrière ba 1955 kenn màggalul màggal gii màggalug daaru amul 1955 dañu ko toxal ndax sëñ Modou aw Balla ca ca ca ca ca taalibe ga ca ca grandeur ba dafa ñëw ci sëñ fàllu ne ko dañuy bàyyi tojum carrière bi dem daaru al muxti màggali màggal gi wala dañuy toog toj carrière sëñ fàllu ne ko toog leen ngeen toj carrière bi kon 1955 kenn màggalul màggaluk daaru dañ doon toj carrière ban fay jóge nag la Alaaji Fallou bind benn lettre jox ko sëñ Modou aw bàll ne ko ngeen màggal nis fu Chaban bis ba xaadimu rasul gisee woon ak rakkam ju tedd jëmu dénkoon yoon wi moom ko tukki woon ak ka mu dénkoon kookee lañ war a màggal seen bis boobee lañ war a màggal bisu mbégte la bisu teraanga la bis la boo xam ne na am na mbég moom moo ko dàqal lu ngeen ko mën a màggalan kon daal euh, euh, maa ngi leen di delloowaat kii bi noonu comme ni ngeen ko waxee waaye daal na ngeen yëg ni Ceerno Birahim Faty Diop daal kudd la bi muy dem ci ciin li loxo da cee ñemewut moom dong nga ñeme woon a jóg confronté wu ak tubaab bi wax ko lam ko wax itam ne ko lettre bii ma sëriñ bi yónni kat du ma ko teg ci loxob kenn ku yàlla bind ku dul ki ma sëriñ bi wax muy yow jërëjëf jërëjëf waaw maam sëñ jërëjëf sëñ Bamba. sëriñ ah, Amidoun mhm. ku dégg sëñ Bamba di mu waxee. Mhm. Ah, dina xam ni borom Daarul Muxti ah, day jëmm joo xame ni yaakaar naa ni ku koy xam sëriñ Touba la ko gën a xam. gannaaw yàlla mu bind borom daaru sëñ Touba ko gën a xam yëpp. te sëñ Gànna waxi sëñ Touba ci borom daaru moo faw xa wax yi wax yëpp te li sëñ Touba li mu wax ci borom Daarul Muxti xajul ci guddi gi. digganteem ma borom daaru xajul ci guddi gi waaye sëriñ Gana bala ñoo wax loolu ñu ngi lay jaale sa sëriñ bi la tarbiya te jëloon doomam boole kook yow muy sëriñ Modou Makhtar mu Saadix damaa wax ni sëriñ Modou Makhtar euh, jëmm la joo xame ni Daarul Moxti rek moomu ko yoonu murid rek moomu ko lislaam ko bokkoon sëriñ moodu ñëpp la daan waxal ñëpp ko déggoon ñëpp la safoon moom nag euh, ñaari wax yam daan wax rek Euh, la ma sëñ Modou Balla wax ak la ma Cheikh Balla wax loolu laa gën a gëm ñu ngi koy jaal bu baax euh, doomi soxna Dior Sall yàkk ji alaaji maam Thierno di ko jaal xal yi ab taawam ak Serigne Sidi ak mboolem njabootam gépp sëñ na diggante borom daaru moxti ak sëriñ Touba xajul ci guddi gi waaye dama ne gannaaw yàlla mi bind borom daarul moxti sëñ tubaa gën a xam ñëpp borom daarul moxti lan la wax borom daarul moxti ndax waxi sëñ tubaa nag alaaji ma faal moo gën a kawe. wax ñépp ci borom daaru ndax sëñ Tuubaa ko gën a xam ñëpp lan la wax borom daaru muxti ak fu mu jaar ak moom aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokk yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi. leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa al Khalifa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naalal lislaam yëpp bëgg koo liggéeyal cheikhul xadim mu defee ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak mbooleem njabootu cheikhul xadim gi yëpp di ko siyaare. di siyaare bu baax Serigne Bachiru Anta Ñang mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Ibrahim di ko ñaanal yàlla yàggal ko wéral ko ba li nga xam ne kilifaam yi ko jiitu yëpp naalal nañ ko Cheikh Ibrahim mu àggale ko te naal ay naalam àggale ko te ànd ko njabootu borom Daarul Muxti gi yëpp di nuyu alaaji maam Thierno Mbakke mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Serigne Cheikh Awa Balla di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko te yàggal njaboot gi noonu la ñuy siyaare it sëriñ Khalil Rahman mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadou Makhtar di ko ñaanal yàlla ak i rakkam sëriñ Sidi ak ñi topp ci ginnaawam ñëpp kilifa yu baax yi nga xam ne yi ñoo nekk ci jataay bi noo ngi leen di siyaare bu baax ni ko bokk yëpp waxe tàmbalee ko ci sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne euh, doomi sëriñ Bassirou Anta Niang la te teew ci jataay bi noo koy siyaare bu baax muy borom xam-xam di ku baax di koo xam ne yaatal ak defar rek muy yitteem noonu lañuy nuyoo sëriñ Mamor mi nga xam ne mooy caatum Cheikh Sidiyal Muxtaar sëriñ Cheikh Awa Balla moom it teew ci jataay bi ak sëriñ Jili ñoo ngi leen di nuyu sëñ Jili moom suñu Muhammadu Awa Balla sëriñ Abo moom sëñ Fallou Sidiye moom it noo koy jox wàccuwaayam di ko siyaare ba ak Cheikh Ousmane sëñ Abo Sall mi nu feggool di jël nuyoo nag jëwriñ mi nga xam ne moom it muy Alaaji ma Fall Fall mi nga xam ne léppam boroom daarul moxti la waaye taxawaayam boobu tax tey jii mu gën a dolliku ci ay ndombay tànkam mu nekk jëwriñ ni boroom daarul moxti fii fi ndakaaru ñu di ko ñaanal yàlla jëwriñ ju masan nekk ci béréb dafa liggéeyal kilifaam yàlla yàlla defal ko ci ndam yu gën a kawe yàgg na cee nekk yàgg na cee taxaw yàgg na am yitte jooju kon alaaji ma faal noo ngi lay nuyu bu baax di nuyu it waa kër gii di Touba TV di leen sant bu baax maa ngi koy jaale ci bàyyi Cheikh Balla Samb mu jàllale ko ci ñëpp ak sunu bokk yi nga xam ne ñooy taxawee jataay bi ñuy eh, sëriñ Cheikh Anta mm-hmm. ak sëriñ Amidou mm-hmm. ñoo ngi leen di gërëm na ci jàll yëpp fan yi mm-hmm. jërë ngeen jëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Ablaye Diop ku baax la ku ku ku ñàkk kiñaan la sama mag la moom sama xarit la ku baax la ndax xol bi dafa rafet loolu moo tax waxtu wu ne daf nuy nemmiku maa ngi jéggulu sax tàmbali nuyoo bi ci Baye Cheikh Awa Balla Gueye mi nga xam ne sunu way jur la sunu kilifa la sunu lépp la di ko ñaanal yàlla sunu borom di ko fay yàggal te di ko wéral ba li muy def ci lislaam lépp mu amee ko ni mu ko bëggee barke borom Touba. sunu sëñ Bamba mii nu feggool moom it ñu ngi koy sant di ko jaajëfal ah, sëñ Sadibou xam naa ginnaaw faw ñu nuyoo loolu rek ko waral. ñu a mën a def noonu waaw. li nga wax léegi xam nga dañoo wax xam cerno jot na jot na. Mhm. xam ko jot na xam ko war na. ndax ku ko xam da nga xam ci ngay teg sa tànk jamono nag andi loo xam ne ku ne moom mënees na koo sosal àbb ko ndax damay wax ne sama kalaas gi bari nañ ci jataay yeeg plateau yeeg télé yi te ñi mën a musle dara bari nañ te koo musal dara bu toogee ci jataay àbb yëfi maami jàmboor yit sa maam bu dee lu la neex nga denc fa sa kër na ca la moom bu la naqaree nga wutu yat <laughs> saa yoo toogoon loo wax ci nit rek tam neex moom neex na ay cerno nag moom looy wax ci moom mën ngaa wax sëñ bi ne wala diw mu nekk nangam ak nàngam kon bu nu eggee ci jamono bu jaxasoo jamono ju bari riir jamono joo xam ne xàmmeetoo luy nduru dëgg ak i neen yoon wi bari ay ku ne sa yëfi bopp yëngal ak woote xëcc ak lu bees lu ne ñu indi ko ci lu ne ñu créé ko ci ni ma ko yëgee bari fi nii laa ko gisee ak ni ma ko sentiré te yooyu amut ni ko boroom waxee am bu ñu bëggee régler situation boobu nag dañ leen di caru lu bees moom duxut ci yoon wi loola damaa waxoon bu yàgg ne loo mag ci yoon wi du dëgg lu bees duñ fi créer rek du dëgg la lay dëgg mooy li fi sëñ bàyyi woon rek koo fi gis ca loola la nekk mooy ñi fi nekkal sëñ bi ku dikk ca loola ngay sof Cheikh Ibrahima nag borom daarul moxti bu sëñ bi waxutoon ci moom dara ñaari baat day na yóbbal lam yu faarix nii lam yu xaalif nii loolu defe naa bu ñu ko waxtaanee woon ci àdduna damaa defe ne doy na jërut commentaire at jërut xëccaat nañ jël loolu rek waxtaane ko mhm. mës la juuyoog man mës la wuuteeg man bu ñu toogoon fii ci télé bi ne kin bëgg a waxtaane xam ko mooy ki sëñ Tuubaa ne woon mës la juuyoog man mës tàggook tàggoog man jóg ñibbi nit ñee def yitte xam koo ko mu wax nga dëgg de néewut bàyyi diw laa toogaloon mu nettali ko ko néewul ba mu koy wax sama nijaay la ko wax moo ko diw ibrahima alladi lam yufaariqni laa fi sigarihi wala fi kibarihi cerno mi nga xam ne ba muy ndaw musta jooy ak man négul bay mag di regret hmm. négul ba bark bi ñëw mu door a dikk dawut sànniw xeer ba mu neex mun a yawa daa feeñ rek na ma yawa ce <laughs> loolu nañ ko xoolaat kon am na lu xew saa yoo déggee dara am na rek am na lu xew hmm. mësta tàggoog man waaye lam yu xaalif nii borom daaru mësta jëf lu wuuteeg li sëñ bi bëgg hadayta xaqaqta sharaata sadaxta fa maa fi xobbi ahmadu cheyqi man yu daanika kooku carno na xoj ci nibraay rek du jadd na noññu ni saxaar rek du wàcc na nemm ni suuf rek du bag bagi te lu sëñ bi bëgg rek carno ca man fa maa fi xobbi ahmadu cheyqi yu daanika amul kenn ku la jege ci bëgg Serigne Touba yow carno Ibrahima te waaye mata taxa aynayka ala hadihi huruf fa tayaqan benn kaadiba raadin anka ridan laa suxta baax da annahu taalibin min allahi tabaraka wa taala maa yotu fi jami amthalik fa tib nasol baqara ayna loolu it bamba ko wax cerno boo gisee lettre bi yëgal ne man gërëm naa la te adduna mënatul andi lu tax ma ŋàññi la tey cerno gërëm naa la te ŋàññi di ci toppati mukk te duma ca yem de maa ngi dem fa yàlla sàkkul la fa loolu ñëpp di ñee na sa xel dal mu ñal demande Cerno Sëñ Tuubaa ko yóbbu. lu dan laa soxta baax daw. demande Cerno waaw Sëñ Tuubaa ko yóbbu. indi taalibin ne la maa yàqu fii jami am salik sa kem yëpp la ciy ñee koo tollool dana la ñee yow Cerno waaye fattib na son waxee raa yi nan bul faale noonu bul faale ku yëngu dalal léppay am. Sëñ Tuubaa ko wax Sëñ Tuubaa ko ko wax. loolu maam Cerno Ibrahima borom daaru mooy ki nga xam ne Sëñ Tuubaa. dafa wax ci moom lu ne mm-hmm. ci bind ko jëmee ko ci moom mm-hmm. bu ñuy joxe misaal mu joxee misaalum kan mooy kan mooy borom Daarul Muxti mm-hmm. Bàmbaa ko yar yor ko ci waxtu sigar yi mës tàggoog moom li waxtil kibar yi Bàmbaa ko yar yor ko borom daaru sëñ Tuubaa ko yaral boppam yoral ko boppam mës la jóoyee moom ci dara yasudu an dunya wa tiibi xururiha yaxful xadim taatu rahmaani mës a gis àdduna waaye nag cerno dafa amoon fulla sëñ Tuubaa dana rasul lay aw mag bëgg lu may foo teg ma teg roy la borom dëru na ko may roy rek bàyyaxta xayral qadimi waqata dayta bihi fi l qawl wal fi'l hatta usta bushra loolu la ko sëriñ Seexuna mbokkam ma waxoon sëriñ Seexuna loolu bàyyaxta xayral qadimi da ngaa sukk ci kanam sëñ Tuubaa na ko yawa waaye waqata dayta bihi nag fu mu teg bu tegee nga teg cerno jaayante wu dug sëñ Tuubaa rek beru waqata dayta bihi xawli wal fi'li waxiinu Sëñ Tuubaa waxiinu borom daaru jëfiinu Sëñ Tuubaa jëfiinu borom daaru xatta xusta bushraaku góor mës ta juyoog moom mës ta wuuteeg moom mës ta def lenn moom Cheikh Ibrahima moom borom daaru ci loola ci melokaan woowu Sëñ Tuubaa doyloo ko bàyyee ko njabootam rabbal baniina rabbal baniin wa rabbal muridiina wa aqral baniina wa baydu rahmaanul aliyu loolu la wax ba circonstance ya talee sëñ Tuubaa dem Cerno yar murid yi dara désordre wul jàngal njaboot gi kaamilu Cheikh Moustapha ci géej gi la ko fekk bi mu ñëwee gis na kaamilu Cheikh Abdoul Fadal ñu boole ko di la xoqatal di la teggi fetal di la jiital di la tiital di la reetaan di la kengu di la kekku nga boole ko mu ñëw ko njàmbaar dara yëquwul garab gi di ñëw suuxat ko nga bar ko di ko ci ba muy garab gu ne lay bi ñëw toog na ko an gëwoon Cheikh Ibrahima mësta mhm. am mu dëkk ñépp a jëkk a sañ ci Cerno sëñ Tuubaa mësta gental fenn Cerno del si mësu faa dëkkal kennam mhm. la kera dafa joxe ordre bu kenn dëkk Touba sëñ Modou Fall xonn képp fa nekkoon sëñ Modou meegoon kër Serif mhm. kër Maguèye sëñ Mbacke Bousso nekkoon kër Serif maam Cerno nga guy nguroom boole di supporter lépp li mat a jëkk dig mat mat a xam te mat koy waxtaane mooy borom daarul moxti en 1895 10 août 1895 di gaaw gaawu boobe fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar war naa tax dogu gii ñuy gaay wax ak sëñ beenu moom jaral nga nu sunu bakkan nañ ci xool ni Cerno def 1895 booy xool bu ñuy wax murid sadi xoolal Cerno nasaraan bi con nasaraan bi contacté na Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba nag Cerno kaay dem néew ko lu ma fay fekk néew ko loo wax ak ñoom néew ko luy xew wala ko njàmbaar ak fit bi ak personnalité taxaw ca kaw nasaraan ba mam xam ne kii mooma yónnee nañ di ko woo mu ne gisuma ko ko woo waaye wóor na mu ne ko ko woo dana ñëw <laughs> nga di si ne jaleñ ka nga amul lu may moom yaakaaroo lu may moom wane ginaaw di dem moom la batale dama ne sëñ Touba fal yakun ayel maa Ibrahima fii Touba in amkana wa fi ay makanin sha waxi sëñ bee léegi-léegi ñu ne sëñ Touba dénkul maam Thierno sëñ Touba dénk ko sëñ Touba bu ko maam Thierno bu ko dénkutoon ku mu dénk. xam nga dëgg de. ku mu dénk. fal yaqulil aal ma Ibrahima fi Touba ini am kana way laay fii ay makan incha allah. njaboot gi nañ nekk ak Thierno fa Touba. bu fekkee Touba jàppandi na bu Touba jàppandiwul béréb bu neex yàlla. mu yor njabootu Serigne Touba gi. di fanaan ci sàq ñuy lakki këram. cerno di muñ tawat di ñëw muy ñaan yàlla balaa kenn dem na dem wala njabootam jeex ngir jote ko Serigne Touba rek boo doon wër góor dëgg mi ngi noonu tàggatoo Mbakke bari ba ñetti baat la ko Serigne Touba dégg te cerno mosu caa génn kere ba mu waree awnullaahi na gees njaboot gi dana cerno cerno mu ne ko Mbakke mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom ñetti baat yooyu la dénk si la dénk Sidi Ibrahima rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na am jom ñëpp laxasu ko njaboot gi ñëpp na cerno yawa mu toog yeggaleem nawetam jàpp na day déqi baa dafa jàpp na day góob ñu sàmm ko ca lépp na faras cerno takki bagaasam boole léegi loo ki mbaam ñu tal këru mbakke bari bi cerno gëstuwul fu mu jëm ñu ne ko du fi mboole bokk yi kooku la ñuy wax mooy kan Cheikh Ibrahima borom moo Muxti kooku nga xam ne mësula rët mësula tiit du jaaxle ma seefu koo kalaame bor moo baaxle moo tax waykat ba da ko xool ba yàgg mu ne ko bushraka ya cerno ibrahima bushraka fuxtal ikab akabira xil man na huwa mawlaka ne ba fii ngay rawante course bi léegi di way un di way deux di way trois déedéet yow cerno ba décraté départ gars yi départ yow la dëkk nommé raw woo gars yi fii ixwaanu cheikh xadim kulhum kabra lakinu bi itfaqin akbarul kubara ibra jo masarne la suñ tuba amul como ay ponkal la gën waaye cerno yi <laughs> lay wax la dëgg cerno nag ab ragal du ko waxtaane na nafiq du ko waxtaane ku bëgg a mus dara du ko waxtaane ngir da ngay bañ boo lëggee doo mus cerno cocc rek ànd ak ngoram ba ak doy looga laaxum laaxum laaxum xoññam ba cere laayam jën néegum ñaxam ba la cerno doy loo woon ku am jom joojooy mën a wax cerno ku jàpp ne boo génn ñu merale doone cerno neex na léegi nag ndax ko am wata am kër mbooloo di la topp ñu di la sikaral bu la neexee nga yow baa nga ne maama mais cerno Serigne Touba wax na ko lu ne dane ko ci saxbaan mhm. bii mhm. ca saxbaan yi dëkk sasin damaa ñaan yàlla lool dafa wane ne ñëw na ñëwut ca saxbaan ji ca topp la ma ko yàlla jox ma jox la ko daan ko loolu bokkul ci karamaat yi min mu'jizaati rasulillahi la bokk lettre baa ngi nii mhm. borom daarul moxti sëñ mu daaw balla mu baax ma mu daaw balla mu baax ma waxi sëñ Tuubaa rek laa lay wax ci borom daaru dana ko suñ borom daaru dane ko dama rëbbali sa bàyyi mu dugg àllub jolof bi dem rëb bi indil ko njaareem lan la sëriñ Tuubaa wax keroog dane sëñ mu raaw bal sa bàyyi cerno la nit ñi dañuy wut adduna cerno yi wut yàlla ba am na ko nit ñi dañuy wut adduna sa bàyyi yàlla ba na ko almuridu sadiq ku mu neex waxal ko sa bopp waaye sëñ Tuubaa moom ku mu bind al ila muridi al muridul wafiyi murid bi matale te dëggal Cerno Ibnu Fati al muridu sadiq Cerno ayyuhal masbuux bi hubbina yow mi nga xam ne dañ ne la fatt rendi ngir bëgg ma cee defe naa mënees naa waxit ne diw ku bëgg sëñ Tuubaa la ku neex waxal ko sa waay waaye ayyuhal masbuux bi hubbinaa yow mi ren ngir bëgg ma am mbindum Cerno ci ne wax <laughs> nga dëgg waxi sëñ Tuubaa laa la wax waxi sëñ Touba ci waxi sëñ Touba laa la wax ci Thierno Ibrahima Fati dëgg la wut yàlla googu ko may mm-hmm. borom Daarul Muxti yi ci melokaanam mës ta def xam nga li ngay gën a dégg mës ta jóg man njëreem dëkke woon nañ kër yi fees jàll dëkk kër yi baare ko ba baare mbeddum kër sëñ bi borom mm-hmm. daaru xëy rek xàll mbedd yi dajji kër yi yii ñu sànni ci armée la yi yóbbu feneen sëñ Tuubaa ne tëlle ci kër gi rek jëm ci jàkk ji xol penc mu ne fayax mu ne xanaa li Cerno ñu naa mu ne tan te kookuy borom daaru mhm. mooy ki jël léppam jox ko Serigne Touba mës ta juyoog moom mës sa wor mës sa dellu gannaaw mës sa yox yoxi borom daaru amul daray wuruj moo tax daawul da daana toog bëgg a wax ci Serigne Touba bu ràbbalee loxo yi tàmbali bëgg a wax xalam rek wala nga ñu sotteeku moom borom daaru moo tax ku néewoon lu muy wax la ci Serigne bi waaye yéemu woon na yéemu woon na ci ni Serigne Touba def nit ñi neex li Cerno daan Cerno moo gën a xam lépp moom lañ daan reetaan moom lañ daan joti moo daan joti xeer benn soxna la yor na ko bàyyi dem kër nijaayam jël Cheikh Moussa ak sëñ Fallou jox siidi yi def nang loolu la Ceerno dégg na waaye mës yëngu benn béréb boo xam ne mës ko yëngu mhm. sëñ tubaat doyloo ko ba jël jël awraad yi teg ci loxoom joxe ndigal ñu koy jëlee ci moom yemul doyul sa loola Sëriñ Tuubaa wóolu maam Cerno xoolal përëgum ndaju isa ataaka ududil kitaab fakrimil kitaabi bil matabi ududil ay man moom sama loxol ndeyjoor mhm. mooy Cerno Ibrahim loolu sëñ Tuba ko wax fit weeg njàmbaar gi sëñ Tuba ko seere sëñ Maodo ab yi ba ñëw njaareem am lu xew sëñ rëdd wii ñuy wax ci Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuba def na ko njaareem bi ci na ba fa kenn jéggi sëñ Maodo ab yi jégg ko sëñ Tuubaa na ko Mouhamadul Habib xanaa déggoo li ma mu ne ko dégg naa ko sëñ Tuubaa jékki-jékki na ko Cerno de fit wu rëy wi mhm. dafa wala dafa wàcc ba ci doom yi mu boole kook lu mu bay jox jox Cheikh Ahmadou Bamba lu mu liggéey jox Cheikh Ahmadou Bamba ba noppi te ji fi raw cer Cerno leen jàngal Alaaji Fallu kenn du moom mhm. Mhm. Cheikh Moustapha kenn du moom Cheikh Mor Roqay Bousso ku ni mel. Mhm. Cheikh Makhtar Bintaloo mi raw ku ni mel. Mhm. da xool sax si figure yi yi nga xam ne ñoo génn ci école maam Thierno Birahim dañoo bëgg a farkuroo yëf yi nag. def ko yëf yi rek bu doon badar dañuy jeex. ba mhm. bàyyee góor du ñibbi te bu dee jotee nga daw. bu doon badar dañuy jeex doo du joxe sa alal te doo joxe sa doom doo joxe sa dara waxi kese la bu ñu bëggee nit ñi xam li xewoon dañuy xool ko jiitu woon ak ko ca topp. moo tax sëñ taxaa nee na sëñ Touba Thierno la ñu joxañ sëñ Mountakha wax na ko ancien nga fi ah, daan na sëñ Touba ëpp na waaye cerno lañu waaye corno lañu joxoon cerno doy la sëkk mhm. royu waaye dëgg la sëriñ Gana mesere sëñ am yaakaar naa ni sëñ am bala ma lay jox kàddu gi émission bi du fi yemoon sax baax na du fi yemoon doy na sëkk ndax li nit ñi bëgg a xam ci maam cerno sëñ Gana résumé nga lépp li nga wax mooy dëgg sëriñ Touba cerno lañu ñu joxoñ sëñ taxaa ko wax sëñ Gana yàlla yàlla guddal soo fan ku amulu fit ku ñemewul kuy yaakaar du waxtaan ci borom daarul moxti na lu jiitu sëriñ tubaa di sos yoonu mu raam na sëñ tubaa yónni na ko defal na sëñ tubaa li ab di def lépp kon nag moom euh, li nga wax sëriñ gànna euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal soo fan xam nga nit dina am xam-xam sëriñ ma faal te du ko mën a génne nit dina am xam-xam te du am fit te du li wax élégant ñu ngi ñaan allahuma laa yoduro yàlla yàlla wéral sa baat waaye li nga wax lépp yaakaar naa ni Serigne tubaa mi ngi ko waxal moo ci gën a bëgg li tax ma ni la yàlla mi bind borom Daaru Muxti ba mu ci noppee sëñ Touba ko gën a xam ñëpp ni sëñ Touba xamee Ceerno kenn xamewu ko noonu ni Ceerno xamee sëñ Touba kenn xamewu ko noonu loolu waral man la waxi sëñ Touba ci borom Daaru Muxti ndax moo gën a kawe waxi ñëpp nag kon nag Serigne Gana jërëjëf sëñ Amidoune ñu bàyyi la nga dugal ki nga xam ne moo ci war a topp yaakaar naa ni am na ku ñu topp muy alaaji Mbàkke yu fay mi ngi wax ni mi ngi bëgg alaaji Mafal di jël ak cant di la ko sant yow wax ni na ko ba sëriñ mahmoudan moom sëriñ bas anta ñag seere wax ni alxaaji mafaal mii fi nekkal borom daarul moxti ci dëkk bi jiitu na masaalikul jinaan liggéey ba mu fay def jëfa ma fa jiitu na fii ci télévision bi lu mu xew sëriñ Cheikh Balla Samb waxtu wu nekk léegi ci bureau bi daf ni ma alaaji mafaal de day wax ni la ñu war a def ci yeneen dañ ko war a def Touba TV ndax mooy télé Sëriñ Touba kon nag ci kaddu sëriñ Balla Samb wax ko ci alaaji Mbàkke yi alaaji ma fall ñu ngi seereel sëriñ mahmoudan moom sëriñ bas antañang mii nga xam ne mooy kilifa jotaay bi tey boroom xam-xam di nit ku baax woy juróom tey tappal la garaat bii nga xam ne borom daaru muxti la ko tappal sëñ Modou Balla dimbali la ñaari xalifa sëñ Tuubaa ak Ceerno rek sa kër baay rek lañ mos a daje ci àddina mu feeñee ci sëriñ Bass Anta Ñang si nee na mi ngi seereel loolu ñii nga xam ne tey sëñ Tuubaa la muy joxe ëllëg fekk joxul borom daaru muxti doo sédd te borom daaru muxti rek moo lay sédd kon jërëjëf El Hadj Mafal. jërëjëf sëñ Hamidou ñu jox la nga dugal Serigne Sadibou Touré. ñu gën a njëkkanteeg temps bi. Mhm. Euh, sant la ci kàddu yu am solo yooyu. tudd nga léegi El Mbàkk yu ak sunu waajur wi Baye Cheikh Balla. Euh, ñëw na ndeysaan teew ci jataay bi euh, li nga wax léegi rek sëñ Mafal musul def fii plateau boo xam ne ni bala ñoo tàmbali yëkkatiwul ku nekk fukki mètre yi basin jox la ak yamuy àndal parfum yëpp musul am kon nag loolu waxuma sax plateau borom daaru plateau bi ñuy defal njabootu njaboot gi ak famille bi yëpp sax. Mhm. day wax ne Touba TV laa koy defee nii. Mhm. relation ak Touba TV lu am solo la. waaye bu jugee àndandoo ak sëti boroom daarul moxti yi nga xam dañoo àndandoo takku ngir defar daaru. Mhm. ñëw mu nekk représentant xalif bi fii. te mate ko sëkk. ànd ak ñoom ñëw ñoom it ñu ñëw ak seen taxawaay. loolu jàpp naa ne bu ñu ko waajalee bis bi nga xam ne ni mooy le 29 di altine bii nu dëgmal. ca daarul mooti muy bis bi ñu koy ñaanal ak di fàttaliku borom daaru jàpp naa ne dana yaa dana jaadu lool ñu sant ko ci lool gërëm ko ci mhm. taxawaayam bu am solo mhm. ndax nag euh, foo nu mën a daje ci àddina yaakaar naa li may wax sëñ aboo mii sëñ aboo rijaal mi mën na ko seede ndax waxtu wu muy def dara rek moom mooy ñëw wax ak tele bi ñu def lu am solo euh, sëñ Gànna jërëjëf ci kàddu yi am solo yi nga yëkkati euh, du sax du sax du sax ñu amul position di ko wax mais obligation la nekkul ku am position wala ku moslu wala ku ku féete feneen wala ku bañ ñu meral mais dafay obligatoire ci nit ki ñu jël maam Thierno def ko référence teg ko ci kanam loolu obligatoire la loolu moom amul kenn koo xam ne ni mën ngaa défier wala nga bëgg jaar ci sëñ tubaa jël maam Thierno boo ko jëlee rek jaaratoo jëmatoo ci sëñ bi moom feneen yeneen yoon nga jëm ndax bi mu fiy jógee bi mu ko koy yan ku ko àttan amu bi muy dellu si itam gis nga ni mu ko def bari na ñoo xam ne ne bu ñu bëggee laaj ndigal ñoo jote ci sëriñ ci maam Cerno lañ jëm waaye da koo féete ci xeex boo xam ne ni kenn li mu wax léegi wayu bind sax defu ko te ku ne xam na ne b boo ko bëree ngee sëñ bi du yëngu ndax dégg la def mhm. ku fi ko ni ci moom loxoom nga jaar mu jàngal la loolu laa bëgg a ñëw ak sëñ Sadibou ndax dañuy wax ne borom xam-xam yu mag yi dañuy faral di wax ne suñ nee diw baax na ñu ne ana ñan ñoo ko seede ci moom dama jëlale ñi së ñi maam Cerno bokkal yoon wi waaye ñim bokkaloon lislaam bi ñu nekk ci réew mi sax kenn ku ci nekk am nga cër boo doxalee woon sa digganteeg maam Cerno la ko waral mooy fees ga ak mat gi ak murite gi ak fit wam yoroon eh, sëñ Saadi bu nan nga ñuy ñëwal ci relation yi bala ñoo ñëw ci sëñ Ousmane eh, mu defal ñu li nga xam ne ni moom ndax am na benn thème boo xam ne nii moom joxoon nañ ko ko ak ay taxawaay yu am solo su ko defee ñu door dugal imaam Cheikh Obal Gueye sëñ Saadi bu Touré sëñ Saadi bu yëkkatil tuuti micro bi يا مالك الوهاب يا حكيم ألم فؤادي من لدنك علما ونورا قلبي وزدني فحما لقن لساني واحللا منه عقاد واجعله ذاكرا وشاكرا عباد متعني الدهر بالسمع والبصر وقوني بجاه أفضل البصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي بلغ ما أنزل إليه ووضح لأمتي أحكام الدين وكل ما يحتاجون إليه وعلى آله وصحبه وخديمه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi al-jaza إخوة الإيمان حاضرين الكرام مشاهدينا الكرام والمشاهدات السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Xaadimu Rasuul waaye di ziar di màggal di ñaanal Serigne Touba sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké Basir yàlla na fi yàgg te wér yàlla na dund lu ko soob yàlla na liggéey lu faw ko njortam ànd koog njaboot gi ak taalibe yi kilifa diine yépp bokk fi yàgg moom ci barke yonent bi salaay salaam noo ngi ziar Cheikh Mouhamadul Basir Anta Ñang xalifa borom Daaru Muxti yàlla fi yàgg te wér noo nga ci jotaay bi lool di ziar ñi nga xamante nii borom daaroy seen maam sëriñ tubaay seen maam te sëriñ tubaa bàyyi woon na xel seen jëmm yi zuriyatan tayyibatan tujaddidu nax ja nabiul mustafa te tayidu wa ab lana suriyatan tudiim al amala saale yaa xadiim sëriñ ma faal noo lay nuyu bu baax noo lay siyaar noo ngi lay bégee noo ngi ñaan bëgg yàlla defal la ko ci barke borom daaru maa ngi nuyu sama sang yi toog di ay waxtaankati Serigne Touba di boromi xam-xam xum lil muallimi wa fii tafdila mu muallim an yakuna rasula fonk leen borom xam-xam yi ngeen léegi ci tuutee kon borom xam-xam di bi yonent maa ngi nuyu seriñ Cheikh Awa Balla Gueye imaam di ko ñaanal mu yàgg te wér waaye di nuyu baax Cheikh Ahmad Bamba Mbuub mi nga xam ne ku yéeme la ci waxtaan yi Sëñ maa ngi koy sant di ko ñaanal mu yàgg te wér waaye ñaar ñi di sëñ Ablaye Diop Bichri ak sëñ Gana Messere maa ngi leen di ñaanal yàlla aar leen te sutural leen te dimbali leen te jàppale leen dolli seeni teraanga ci barke Sëñ Tuubaa yàlla bu ngeen am benn ndokk seeni xam-xam rafet na waaye lima ci yéem mooy woyof gi ci yéen maa ngi ñaan ngeen am jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa sëñ Amidul maa ngi lay nuyu bu baax yàgg seexantaa di ñaan seen bëgg yàlla defal leen ko kii nii waxtaan yi di borom daaru mm-hmm. dafa matal kóllëre digganteem ak boroomam allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna almisaax والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار aaya boobu dafa mel ni Ceerno Birahim lay jàngale ba ca tegu mooy kii ñuy waxtaanee abit la mooy jaamukatu yàlla la te jaamu yàlla yàlla ko digle yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum allazi xalaqakum walazina min qablikum laallakum tattaquun allazi jaalakum arda firasan wa samaayi bina wa anzala min asamaayi maan faxraja bihi min asamarat risqan lakum fala tajul lay andaaden wa antum taalamuun la taxoon yàlla bindu nu mooy nu jaamu ko Sëriñ Tuubaa yëkk ci kàddoom na nan ko jaamu ndax rajaawu jannatin bila taa bi sunnatil maayi xururun yaati bëgg demaa jëne te nangu woo jaamu yàlla sëñ Bàmba ne ku ci nekk yaa ngi ciy nax ñu ne waaw sëñ Bàmba nu nuy jaamoo yàlla sëñ Tuubaa ni yaa bi ma wara jaakumu yéen nit ñi jaamu leen seen borom ñu ne sëñ Tuubaa nun koy defee mun a xanaa ni ko Seydina Mohamed indee noonu ngeen koy defee sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boo gisee lu nu wax ci borom daaru mu gën a rëy ni mu dikkee jamono la sëriñ Tuubaa moo ñaan yàlla yàlla may ko borom daaru Sëriñ Tuubaa moo sakku borom daaru ci yàlla te moo ne Sëriñ Tuubaa day moom moom ku nuy sàkku moom Sëriñ Tuubaa ku nuy sàkku waaye maa moo sakku borom daaru alxuraanul karim moo dem ci yàlla ne ko yàlla boole ma ak Sëriñ mu téye ma te ma ba raamal kitaabu kaw nu bila tafaruxin wa umri xatxu bi laa sëñ Tuubaa téye alxuraan ba mujj mu moom ko ni mu def ci alxuraan da ko téye fonk ko di ko bind lu di ko bind fu way fu way bindee bu indi buñ ko ci lu rëy mu jëkk yàlla ne ko jëlal yaa ko moom yow sëñ Bàmba may naa la alxuraan sëñ Tuubaa ni malaka nii xuraan a baaxin ansala bi jaayi raaxin li yusafi nuzula alxuraan sàkku sëñ Tuubaa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ne moom a sàkku alal la si talaba kaw ni al xadim lawu salaama sil bariyatil xadim rasulullah moo sàkku ma liggéeyal ko wajaxtu wacci ilal ilahi axdimu abduhu ibnu abdalahi man sëñ Tuubaa jëmale naa jëmale naa sama jëmm ci yàlla rek awma ci keneen soxla munumaa xool leneen munumaa gis leneen munumaa yëg leneen yàlla rek kafaaniyal kaafi bi jaayi kaafi may lan li xëyri wasaaka kaafi man yàlla rek laa jàkkaar lool waaye rasul lay lay liggéeyal kii may liggéeyal nag danaa leen ci xamal tuuti muhammadun sala alayhi laahu xadamawul mawla alal kiraami kii may liggéeyal karamawul mawla alal kiraami laysa yubayisul ikraami kii may liggéeyal loxoom ndey joor ba moom rasulullah yi mooy bigal ñi jàmm yàlla loxoom càmm mooy xupp ñi weddi yàlla yaminu fi ay li muslimin na daa simalu fi li mujrimin na daa ki muy liggéeyal di rasulullah yi ku ko gisul ku ko bëggul ku ko soppul képp ku ko woon ginnaaw dof nga te doo taxali ko mbugal inna lesi lam yarawu xayral xiyaar foo wa safihun la yufariqul bawaar fu mu jëg rasulullah rasulullah jàpp ci loxoom ne ko yàllaa ngi daleen yàllaahu ala muhammad waxaadini muhammadin li sabat waaye borom tuubaa moo sàkku maam Cerno fekkoon na Seex Bamba di ñaan buur yàlla jàmbaar ju askanoo ci Mbàkke Bàlla sëñ Tuubaa ko doon ñaan te sëñ Tuubaa ñaanul yàlla lu ko yàlla mayul lu ma bind di ñaan yàlla yàlla may na ma ko lu ma xalaat di ñaan yàlla yàlla may na ma ko ma daliyal baax yi bi jaayi raax yi maarum tubil xal bi wa bi arwaax bala maa sàkku li may sàkku dikk maliku ma lig nii bi xëyri sële bi wa suxriyal matluba xabla tele bi sëñ Tuubaa nee dem naa ba yàgg ne ma yàlla ne ma bul ñaane ci loo bëgg jëlal wasaaxali ku la maax waa bi laa bi saw xan bi yes sa bii nun juddu wal këram sëñ fi baa moo fi baa waaye ku mu soxla nga ñëw ab xaa ni yàllaawu wa rahmaanu akramani ni amara imu lazi ma sirtul yu abba borom daaru bay si xaw yu ak ay dara bàyyi Usmaan maa ngi Moodu Kara sëriñ Tuubaa ko sakku ci yàlla mu ñëw yor yor wal xemes mu gën a adduna ca Poroxaan xanaa xam ne maam Thierno Sénégal bi waaw Poroxaan Sénégal la waaye Jaabakunda Gàmbi la Sénégal borom daaru yoor yooru alxames la gën a adduna waajuram ba sëñ Mor de Seli moo ko yëgal sëñ Touba. ma nga fekk Serigne Touba di jàng alxuraan ba toll ci wa axi Ibrahima huwa afsahu minni lisaanan kon yoon ci yàlla Moussa sàkku woon na moom it doomi ndeyam ngir man nag moom doomi xanaa xam nga ne maam Thierno Sëñ Touba danoo bokk ndey soxna Fatou Seye Diop soxna sama kay Ahmadu soxna bu soxna Maam Jaara soxna waalo Ahmadu soxna bu lu gaa yi wax moom lu ko kawee gi moom ndax kawewaay ba moo tax Serigne Touba sàkk ko ki ñëpp di sàkkoo ko muy sëñ ki ñëpp di sàkku moo ko sàkku moom loolu moo tax mu am amul moroom garab bi ko borom daaru gën a jamono yoor yooru alxames ci ah. léeg-léeg nga dem daaru dégg bale yay tàkk sëriñ bi génn ñu ñu ñu fekk fi tali tuy tuy tuy ñu ne lu ko waral ñu ne ah dafa daje woon ak ñuy toj dëkk bu ñu wax poos koto bale yay tàkk nag looloo tax ñu tuddee ko Jaabakunda waaye li ci yéeme borom daaru sëriñ Tuubaa xajalu ci kenn xajalu ci jàng alxuraan ba tollu foofee sëñ moo rek la sëriñ seen waajur wa moo dikk ne ko santal yàlla sa ñaan nga nangu na am nga ku la jàppale ci sab liggéey sëriñ Tuubaa jóg bi nu toqantal ba jaarul ci buntu néeg bi duggul ci néeg bi daa war néeg bi ba ca ginnaaw mu xar sàkket bi dugal loxo bi ngir wormaal ak suturaal soxna su tente soxna Fatou Seye jox ko toqantal ba wër néeg musabaatul mundiyaat waajal maam Cerno ba maam Cerno dootul jàdd yoon dañ ko waajal kër ba mu gënee jamono lañ ko waajal keroog la Serigne Touba sangi cëri maam Cerno ya looloo tax maam Cerno musta mooy yàlla musta mooy yàlla rek loolu bariwul ko mu dox musta mooy yàlla kenn rek laa déggoon mu ne musuma mooy yàlla Serigne Touba asamte nii ma awte seen bii bi ku nii waamte lii maa lii waraalam yëkku nii yàlla musal na ma yàlla na ma ciy bàkkaar yàlla may na ma loo xam ne bindee fii kenn amu ko ci moo tax waykat ma ne ko xam naa ne booy doonay Rasulullah hmm. kon muy Umar mbaa Aliyu bu baaba dal Moussa mu di maaroona yooyu la mbir ak yile mbir dëppoo na bàmbaa ko yar ko fii xari ma sa tàggoog moom li waxti ki bari bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak la boole woon baax ndax borom li ngeen waxoon ne borom daarooy waaja kenn du moom na ko sëñ Tuubaa bëggee woon na ko sëñ Tuubaa téye woon boppam na ko sëñ Tuubaa wóolu woon dafa am lu lu lu sew lu ñu war a bàyyi xel mooy borom daaru bi sëñ Tuubaa dem ci tukki bi moom la dégg yoon bi dégg ko njaboot gi kenn déggul fu mu ko ko laajewaat bi mu ñibbisee kon borom daaru borom yoon wi. Eh. daaru kon mooy borom yoon wi. ginnaaw moom la ko dénkoon te bi mu delsee ñun ñëpp dénkaane ba yëg na ko waaye laajaat bi moom yëguñu ko. tey wax nga dëgg de. <laughs> yaa seexu naa Cerno Ibrahima yaa wazaru maam Cerno suukara min bal suukaraamaati seexul haqiqati bal seexu sarixati bal seexu raqiyati bal haazal wilayaati borom daaru taalibe borom daaru boo ak foo ko mën a séene jaamu yàlla ak liggéey tappale yi ngay dégg doo leen ci dégg sëriñ Tuubaa yi waxtaan sëriñ Masamba Caat faaxa dafa dilu ahlul judi wal karami masamba Mbakke kasabiyun walikami masamba fatan fatinun labibun xasin yaqisun nadbun alisun ala taati wal xidami masamba badrun munirun jawadun fayixun alamun xutbatu ko lu fahimi Seex Bamba noonu masamba caat ma su ma mbindeef doon xam mbiraayim xam xaw ma sëñ Tubaa keneen kuy xam sëñ Tubaa xam nga sëñ Tuubaa du ko ñu xam xaabat maqaami an siwal baaxil karim way na ni abdul xadimu laa yarim sama maqaamu na bu na ko dul yàlla fi di jaam buy liggéey rasulullaahi liggéey boo xam na du dog waaye du ngeen ma xam nag kenn xamu ko yàlla fàttewuma man sëñ Tuubaa yàlla fàttewuma rabbi wala an saaka walam tuwajjih lili si yan saaka yàlla fàttewuma te fàttewuma ko te kuy fàtte yàlla du jublu sëñ Tuubaa moo wax ak ma Masamba ne ko ma xam na ci man loo xam ne kenn xamu ko am na ci man loo xam ne kenn amu ko kon kay Thierno Raw. Serigne Sadibou loolu dëgg la moo xam li ngeen xamul. <laughs> am ci Serigne Touba lu kenn amul. kon Thierno numéro 2. jërëjëf. Cheikh Ana Cheikh Saad bu ñu ngi koy gërëm bu baax xam euh, ni ci gaañi la bokk alaaj ba tubaarkalla am na solo ndax euh, borom daarul moxti wax ci moom mooy wax ci sëñ Touba wallaay wallaay wallaay ndax lii mu wax borom euh, sëñ ma Massamba rek doy na sëkk dëgg la doy na sëkk sëriñ Massamba moomu ngay wax borom daarul moxti jàngal na ko dëgg la uuf rakkam yëpp dëgg la ah, ah, ah, bi sëriñ Touba demee muy kilifa mboolem ñëpp njabootu sëñ Mor Anta Sali ak yoonu murit wépp te matoon li mu doon yàlla nañ ko yàlla fayal dëgg la maam mu xanaa rek ñu wax ne Serigne Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khoudoss bu ñu mm. jeexalee première partie dana dugg dina dugg waaw euh, ndax moo yore kaddu euh, njabootu borom Daaru Muxti mm-hmm. it mi ngi topp jotaay bi mm-hmm. waaye euh, Serigne Abo Mbacke mii moom sëñ Fallou sa Ndiaye mm-hmm. dafa benn mbokkum taalibe mu ñu wax Serigne Modou Diop jëwriñ jëwriñu borom daaru ca Paris dafa am ju am solo jum jox sëñ Gana Mesere ndeysaan ndeysaan ñu di ko ci gërëm bu baax a baax di ko sant ci taxawaay bu am solo boobu eh, kon dañuy ñëw sëñ Ousmane rek su ko defee a ngi toog moom mu def kii ñu mën a defaat benn tuur ndax sëñ eh, ah. moo war a eh, mi takku defar daaru takku defar daaru sëñ Moustapha Sylla incha allahu taala kon su ko defee bàyyi la ak sëñ Ousmane sëñ Maam Cheikh waaw bala ngay bàyyi ak sëñ Ousmane sëñ Amidou ñu leeral ni Serigne Cheikh Assou moom itam mi ngi topp jotaay bi moom mi nga xam ne moom la Serigne Bass Anta Niang dénk dëkk ba mhm. waaye bul fàtte ni tamit ni euh, Serigne Mbacke mi doomam moom itam mi ngi topp jotaay bi ak mhm. njabootu sëñ Moustapha May gépp mhm. sëriñ Jili ak Serigne Moustapha mhm. ak ak ak ak Serigne Axmam sëñ Moustapha May wax nañ ni Daarul Moxti kenn tëddul ñëpp ñu ngi topp jotaay bi loolu nag kon dañ koy sante euh, alxaaj Mafal mi ak takku defar daaru ak mboolem axfaati borom daaru yi koy liggéeyloo muy liggéey kon sëñ Ousmane imam mooy imaamu Daaru Rahman kon imam euh, yaakaar naa ni liñ fi dégg ci borom Daarul Moxti lépp li nit ñi war a xam daal mooy sëriñ tubaa moo ñu joxoñ borom Darou Mokhti ngir ñu roy ko te loolu du suñu wax waaye Serigne Mountakha moo ko wax kon nan nga ñu tënkale jotaay bi ci joxañ gu ñu Serigne Touba joxoñ borom Darou Mokhti ñëpp roy ko wa inni u'iizuhaa bika wa surriyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uudu bika min hamasaati sayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di suñu kilifa fi teew leen delloo seen wàccuwaay di sant waa takku defar daaru leen xamal ne war ngeen sant yàlla bu baax keroog bi sëriñ tuuba joxe ndigal maam Cerno Birahim mu sanc daaru Muxti ci nettali bu sëriñ Abdul Xudos doon nettali te ustaas sëñ si awa bàll gi doon ko wax ci wolof sëñ Abdou Khoudous dafa wax ne borom daaru bi mu ko joxee ndigal mu sanc daaru moot dafa wax mag ña fa nekkoon ne leen dëkkub maam Thierno bi de daarul mooti laa ko tudde mas ngeen a dëkk dëkk ba tudd noonu ñu ne ko déedéet mu ne fortuwum ko ku yàlla li nga bokk ci ñiy liggéey loolee war ngaa sant yàlla bu baax a baax li ma ci bëggee nag lu gàtt lay doon mm-hmm. muy ñu xam ne li ngeen fi wax yépp ak li mu doon jàmbaar yépp moom ab liggéeyam feeñul bis pénc lay feeñ ndax xajul àddina sëñ Tuubaa nee na ko loo mën a gis tey ak ëllëg ak booba booba añub liggéeyub soxna Faati Jooba kon Daaru Muxti li muy rëy rëy ak lii xéewal yi bari bari liggéeyub maam Cerno Birahim feeñul bis pénc lay feeñ li ngeen fi gis nii añub liggéeyub soxna Faati su Jooba loolu liñ ci jàngate mooy nu ngu digal nit lu mu baax baax dañ ko war a tànnal ndey ju baax ju tànn lu koy jàppale ca lam ca lam muy def maam Thierno Birahim lii lépp li muy baax baax ak li muy doon doon jàmbaar waaye juróom soxna Fatou Issa dañ koo tànn indi ko mu taxaw maam Thierno Birahim ba lii mën a am tey ndax nañu xam ne sëñ Mamour Anta Sali jàmbaar la woon ku xamoon lu muy sampi kër la ñoom fa andi woon ñëpp ay tànnif lañ kenn ku ne ci noonu sa waajur liggéey na fa loo xam ne mënees na cee teg bët soxna Faati sa nag yàlla da ko defal tawfeex mu dégg ndigal ci la ko ay waajuram santoon ba lii mën a am tey sëñ Mor Anta Sali soxna Faati si yóbbu koon kooki jeneen jigéenu ko yóbbu dafa àgg fekk ñu joxe ko mbokkam nekk fa di soxna ab sëtu Mbàkke soxna ab satu Mbàkke amatu soxna Bousso maam maaram maam Mor Anta sa maam moom moo ne ko ginnaaw ñëw nga fi ba bëgg dellu te yàlla dogal li nga fi doon sàkku amul nañ la jox sama doom si doon boobu maam fàtte sa mënuta dem kër mënut mënut ko dem kër ci la nungoo ndigal ñu jox ko sëñ Maam Mor Anta nga gis mbokk ni muy dimbalee mbokkam ci jamono yooyu bu teg suñ jamono ji <coughs> booba sëñ Mor Anta Sali la mu yoroon réer na àndaale fa dara te faw mu joxe fa dara bi ñu fasee affaire euh, sëy ba noppi ci niñ ko mën a waxee yàlla dogal loolu réer ñu dikk wax ko maam maam Absatu Mbàkke da ko sa mbokk mi kër mbir gaar na ko ndax li mu andi woon yàlla dogal na réer na mu dugg ci biir néeg mu génne gaal tijji gaalam génne xaalis mat ñetti ngise jox ko sëñ Mor Anta Sali ne ko léegi lii nga def ko ci li nga xam ne moom nga war a dugg ndigal loolu moom andi maam Faty Seye ci kër maam maam maam Mamour Anta Seye ba mu dikkee nag lépp lu jigéen doon def def na ko lépp lu jigéen doon def soxna Faty Seye def na ko mhm. ba yàlla may ko lii mu ko may tey kon nanuy xool bu baax a baax a baax a baax a baax la jiitu woon laata lii di am muy nungu ndigal mhm. ak taxaw sa mbokk ak jàppale ko ba lii am tey kon soxna Faty Seye Diop yàlla na ko yàlla fayal ndax lii lépp moom la sëriñ bii defal ko lu mu defalul kenn maam Cerno Birahim mber ma mi sëriñ Tuubaa beral maam Cerno Birahim soxna Faati sa jàppoo ba maam Cerno mën a guute te sëñ bi ami itte te mu faw faju maam Faati saa ko doon jëfal sëñ Tuubaa xam ngeen sëñ bi ñetti dërëm tënu ko mu jóge paataar laajoor nekk kër amut yàlla maam war seen nekk paataar mu jënd mu war a fay ñetti borom ñetti dërëm wër na réew mi ba del si mook si Masamba Diop sax mënu ko am maam Faati sa Diop moo ko joxe te boobu kat ba ñuy del si dañu doon reetaan maam Ceerno naa Cheikh ñu ngi reetaan naa bu duñ fay bor bi dinaa ko yàlla kon maam Ceerno ba jëf maam Faati sa moo ko doon jëfal moo ko teg ci yoot moo ko nàndal ci loolee mu xam ba maam Ceerno doon jàmbaar joo xam ne kenn ku ne mën na ca teg sa bët lii xew léegi muy feebar bi nga xam ne dañuy door a dugg ci fàggu maam Ceerno Birahim alxaaji ko bi nettali na ko mu doon soo sëñ mu daaw bàll mag la bokk na ñu njëkk tuddee koso mhm. ndax 23 la feeñ sëñ mu daaw bàll nee na ko sëñ borom daaru nett na ko sëñ bu daaw bàll ne ko benn yoon laa ma sa yëkkati loxo sama loxo ci kanamu mel na luy bàkku te boobu sëñ dafa maa woon bi doy waar door dara amul sëñ boo maam ci bi dayo ne ko na fàggu dund bu ñëw ci kër gi ndax nawet bi kat jàll na te dara amut maam Thierno dafa yëkkati loxoom ci kanam sëñ bi ko ñetti at ñetti at bu tëwutoon fàggu naa loo xam ne man dana yor naa lu mën a yor kër te boobu kër gi mbooloo ma fi nekk ndax njaareem la woon kon noonu la ko sëñ bi tàggate woon ci moom lañ mas a gisee ku sëñ Tuubaa wax ne rus naa def nangam ndax Thierno lu sëñ bi dos nettali nee na yoon moom moom ca la bokk stage bi moo ko doon moo ko doon jotali borom borom daaru ñëw dal kër sëñ Balla Coro sëñ bi yónnee na ñu ñu dal ci biir kër gi ndax rus naa nekk ci biir Ceerno nekk loolu lañ ko mës a gis kon jàmbaar dëgg mooy maam Ceerno Birahim waaye fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu nàndale muy muy soxna Faati sa daa doon jàmbaar joo xam ne ku taxaw woon sëñ Tuubaa muy soxna Faati sa ku taxaw woon sëñ Tuubaa sëñ Matar Samba nettali na Mm-hmm. nee na sëñ Madoune Penda moo ko nettali ndax maam Thierno Birahim mi ngi woon daarul ma naan mm-hmm. sëñ mi ngi woon ci yéen yónnee nañ ma indi soxna si bi sëñ bi soxna siy dem sëñ Madoune Penda moo ko yóbbu mm-hmm. sëñ Madoune Penda ci mag mag ñi àndoon ak boroom daaru la bokk moo yoroon soxna su Mbàkke Kajoor soxna su Mbàkke ci doomi sëñ Tuubaa yu mag yi la bokk maam Thierno ko jàngal bi sëñ bi demee ci tukki bi la maam Thierno Birahim jël soxna si jox ko jox ko sëñ Modou Mbène Penda ay doomam la sëñ Tuubaa njëkk gis ci ay sët mi ngoog muy soxna Fatou Diop ak soxna Xari Diop kii deux la gën a àddina kii quatre bi sëñ bi sëñ bi wóoloo soxna Fatou Diop mu ñëw ci yéen mhm. bi sëñ bi ab diir la fa mhm. wàcc liggéey ndax ci décembre ba la 27 mhm. décembre la wàcc liggéey sëñ bi ñëw fa ca ca njëlbeen moom yàggu fa sëñ Modou Mbène nee na cër bi maam bi sa bi sa bi soxna bi sëñ mag bi joxoon maam Faati sa nee na néewaa nag ku mu ko jox boobu ndax dafaa ñëw am façon liggéey nee na yëg nag yën yëg nañ ak ñëkk nañ maanaam sëñ sëñ mag bi am na ñàkk ñàkk loo xam ne wóor na ni euh, lu rëy la ci moom mooy bi soxna Faati sa wàccee liggéey fajar googu mu wàccee liggéey sëñ bi dafa woolu sëñ am sutu jaxate te li may nettali sëñ Omar jaxate doomu moo ko nettali mais sëñ am sëtu jaxate la sëñ bi woon xaaj ab kaamil jël benn xaaj bi ne ko jàngal benn bi ma jàng benn bi sëñ am jàng benn bi sëñ mag bi jàng benn bi mu woolu sëñ Mourou Moussa mhm. ne ko demal ci sama penku jàkka ji ñu defal ma fa kër mhm. soxna Faati sa mhm. sëñ mag bu masaan defar kër daana jege ñaar téeméeri mètre boo demee ci yéen fa ñu naan mooy fi ñu def kër soxna si tey diggam ma ak barab ba deux cent mètres ci lay toll nga boole ci cent mètres kër sëñ euh, soxna Faati sëñ muy deux cent mm-hmm. nga dolli ci door a jàkk ci ñu defal ko fa barab ñu baree bari dañuy nettali wax ne sëñ bi dafa jékki-jékki jóge ci àll bi rek ñëw jullee ko demewul noonu bi mu wàccee liggéey suba ak ajjuma fukki fan ak ñaar ci diggu tabaski suba ak ajjuma fukki fan ñaar ci diggu tabaski 27 mm-hmm. décembre 1907 mm-hmm. sëñ bi moo xëy suba woolu sëñ Mourou Moussa sant ko loolu ñu gasal ko kër bi ñu jullee saan ba noppi sëñ bi ñëw jullee ko dugg ci biir bàmmee du nangu ca ñu teg ci ay weer soxna Jóob Mbàkke gane jamono mu tudde ko nit nag mënta weesu lii nga faatu mu dugg ci bàmmeel nangu la mhm. jël doom boobu maam Faty Isse doom la ko sëñ Tuubaa def te loolu la ko waral mooy diggam ak Seexul Xadiim mm. dafa wax ne moom sëñ Tuubaa sëñ Madun Penda nee na nett li ko sëñ Mataar Sàmba sëñ Mataar Sàmba nett li ko sëñ Fàllu sëñ Madun Penda sëñ mag bi mu def bi mu duggee dafa wax sëñ Modou Penda dugg si sëñ Modou pen dugg si ñu jël soxna si jox ko mu tëral ko ci biir bi ko dencee ba noppi dafa jug tim barab bi daal di wax ne loolu ñuy wax ndey tey laa koy door a ñàkk wax ne kii ma ci baax topp ma baax dama koy yóbbu ce cee deqale waaye dogalu bu suñu borom laa di topp na ne semaine yi yëg nañ ne Sëriñ Tuubaa ñàkk na loo xam ne réer na ci lu waaye dana am leen loo xam ne moo ci mat a jàngat mhm. soxna si mi ngi wàcc liggéey décembre 1907 janvier février mars avril mai borom daaru dóor ñëw jaale sëñ Tuubaa te bu fekkoon ne sëñ bi ko du jaar ci fekkoon ne sëñ bi wóolu jaar ci yéen waaye wàcc na liggéey 1900 wàcc na liggéey décembre mhm. ba am juróomi weer sëñ bi bind ko leetam dóor ñëw jaale si sa doomi bàyyi ki nga bokkal benn baay sax bu sa ndey faatu nga denc ko da ngeen jàppante waaye moom borom daaru sëriñ bi ci boppam moo ko bind leetar ne ko ñëwal jaari si ma bi mu mu ne ko soxna si de la mu bëggoon ma bëggal ko nga bëggal ko jot na ci bis ni tey cee kon nañu xool fi ñuy tànne ay soxna nañuy xool fi ñuy tànne ay soxna am solo lool jëf sëñ Mor Anta Sali loolu la xamoon <coughs> dëgg la loolu jàmbaar yoo xam ne ku ñu war a jàngale la sëñ Mor Anta Sali yaa xut bi yaa naamuus léeg-léeg nga dégg Quran loolu la ko sëñ Tuubaa wax sëñ Mor ndeysaan saayir amul amul wallaay ndeysaan wallaay wallaay wax nga dëgg jàmbaar la woon wallaay wax nga dëgg bu a génn ci maam Thierno dëgg la na sëkk waxtaan wallaay jërëjëf sëñ Ousmane wuuteeg sëñ Tuubaa mm-hmm. leen a ko mm-hmm. mu tekki nag mooy sama loxol ndeyjoor mm-hmm. sëñ Basiru Anta nag dafa nettali ne sëñ Abdu sëñ sëñ sëñ Amsatu Jaxate moo ko nettali sëñ Blaat sëñ Blaat nettali ko sëñ Amsatu sëñ Amsatu nettali ko ngi ci téeram bi sëñ Basiru Anta nag dafa li ko sëñ Blaat wax moo di man man maam Ceerno xam naa ci sëñ Tuubaa loo xam ne bu ma ko waxoon kenn du am ko la topp ku man ci waaye man maay dencukaay secret secret ma ko feeñal barakallaa doy na sëkk sëñ am euh, moom bi muy wax sa xel day dem ci Serigne Fallou si Dieye ceyeen gi mu dugg ñu ngi fàttaliku sëñ Fallou ndax euh, ndax euh, ku ne xam na ni cërub sëñ Fallou si Dieye mooy ceyeen sëñ Abo mii ànd ak Serigne Bassirou magam di ko dundal soo soxna Fatou Issa rek doy na tam. Mhm. Alaaji Mafal ndax ku sëñ Tuubaa nangu ci bàmmeel ci jigéen moom lañu ko gis. Mhm. léegi la ma waa kër Soxna Jóob mbakke ca ca ndaam daaru alimul xabir di wax ni sëñ tubaa daan wax bu ko kenn waxati sox nañ koy wax soxna Faati sa Jóob bañ xam ni sama wayjur laa ko tuddee mhm. li nga xam ni borom daaru doonul dara ci wayjuram lépp sëñ Tuubaa ko defal mhm. kon day wanee ni la sëriñ tubaa waxoon ni mhm. borom daaru mu sëñ Tuubaa sàkku borom daaru loolu day wér day day wéral sa wax ji denc sa wayjur ba noppi ñu la kaay jaale si ma kon sëriñ bi moom lépp soxna Faat sa sëñ Touba la mhm. euh, Serigne Mbàkke dama saar ca Touba mhm. euh, mi ngi bëgg ci jotaay bi mhm. di xalifab Serigne Abdourahmane di doomi borom Daarul Moxti ju bari woon xam-xam ci lool dëngëj ba euh, di rakki Serigne Ibra Fan Ñang ma nga xam ni moom tam doomi borom daaru ju mag la woon soxna Faati Ceerno ma borom daaru jàngaloon jox ko Serigne moo roqay jàngal Serigne ma roqay ba jox ko doomam jàngal Serigne Maxtaar Bintaloo jox ko doomam muy soxna Busu Ceerno kon ñi fi raw borom daaru leen jàngal boole leen seet boole leen ak doomam dëgg la Serigne Cheikhouna Lo mi nga xam ne mu nga doon wax léegi way rëy yooyu nga xam ni mhm. bokkoon na ci ñi ëpp xam-xam ci yoonu it mhm. borom daaru jur way juróom mu jigéen Serigne Makhtar Bintou la di way juróom mhm. Serigne Koso di rakki Serigne Bakke Dabassar ca Touba moom itam mi ngi topp jotaay bi ak Serigne Fallou moom Serigne Abdou Akim dafa wax ni Serigne Abdou Akim ñu ngi sant yàlla ndax Akim ci Serigne Mahmadan Koso moo ko ci yokk nee na bi muy jàng yéeme woon lool Serigne Mahmadan nag kooku moo doon borom daaru ci jàngale sëti sëñ sëñ sëti sëñ Tuubaa yi ngay gis sëñ Amidoune xaaj bépp moo leen jàngal kooku mooy sëriñ moom la sëriñ Abdoulaat tudde sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Abdoulaat di boroom xam-xam boo xam ni sëñ Abdoulaat daana wax naan man de ku gën Mahmoudan gisuma ko kooku doomi borom daarul moxti la ñu ngi ziyaare baax euh, sëriñ njaboot sëñ Abdou Hakim sëñ Fàllu nee na moom mi ngi barkeeloo ci jotaay bi soxna soxna sa buso sa nekkoon ak sëñ Mahmoudan nekkoon yaayi sëñ Abdou Hakim ca daara ja nee daan ko dimbali nee na sëñ Abdou Hakim Euh, Serigne Mahmadan du daan wattu di wàcc karawam nee na sëñ Abdou Akim ma defal te booba da doon na tu tànk mhm. nee na Akim ji li tax mu barkeel sëñ Mahmadan ko soxla ndeysaan na ko ñëpp xam alaaji tabaarkalla nee na di ziyaare bu baax Serigne Maxtaarum Serigne Mamor Masamba mhm. moom itam mi ngi topp jotaay bi mhm. yaayam di doomi soxna soxna say borom daarul moxti nekk ci jotaay bi nekk ci alaaji mbàkk yu fay nekk ak moom di kilifaam di xaritam di léppam di nit ku baax ñu ngi koy ziyaare bu baax soxna umu xayri si da baax dafa wax ni mi ngi topp jotaay bi di taawu alaaji Abdou alaaji Mafal nee na borom daarul moxti diggante Serigne Cheikh Awa Balla ak eh, ak njabootu alaaji Malick doy na sëkk ndax nee na umu xayri mi ngi ko tuddee moom 1952 la nelawe Màkka Cheikh Awa Balla ko taxaw jébbal ko borom doomi alaaji Malick du fi bàyyi ko maa koy taxaw kooku mooy borom daarul moxti di nuyu bu baax ab du Mbacke mu bàyyi Cheikh Khady moom itam mi ngi topp jotaay bi ak Serigne Mountakha di xalifab Serigne Cheikh Fati Fall doomi borom daaru jët borom daaru bëggaloon boppam lool te te te amu te amoonu cër lool ci borom daarul moxti kon sëñ am dañuy dal delloo kàddu gi rek mhm. Mhm. ndax daarul muxti gépp mhm. sëriñ ah, Fallou sëriñ Abo ñu ngi topp jotaay bi dañ lay delloo kàddu gi nga dugal imaam Serigne Cheikh Balla Gueye tubaarkàlla Cheikh mii nga xam ni Serigne Cheikh Balla lañ ko tuddee waaye dafa nekk ci barab bi di borom xam-xam dëgg la di ko rafet rafetlu xam-xamam waaye di nit ku baax koo xam ne ni nag wajuram bokkoon na ci ñekk ci ci ci ci ñi nga xam ne ñoo nekk rek borom daarul muxti dëgg la Serigne Hamid jërëjëf maam Cheikh Anta ñu gërëm la bu baax a baax eh, sëñ Khadim Mbacké moom sëñ Sidi Mokhtar moom it mi ngi teewlu jataay bi nee day day yeesal relation njaboot Cheikh Sidi Moukhtar ak maam Thierno Ibrahim eh, soxna Daba Bousso eh, moom Serigne Modou Roqee Bousso moom soxna Daba moom maam Thierno Ibrahim daamal daaru mi ngi yónnee bataaxal moom it nee na mu wax dëgg yàlla topp télé bi mënul ta jóg ndax jotaay bi ni mu yéenee eh, imam xam naa tey moom ñiy envoyé message dañuy baal ndax bu ñuy waxtaanee xam-xam ñu cee dugal ay ziar ci diggante bi ah, ndax day bari te day jël temps te defaguñ nañ trois heures de temps wala deux heures yu di jege euh, te ñii fi toog ñii dañoo war a génne xam-xam parce que tey bu ñuy wax reflet maam Thierno Ibrahima dangay indi preuve ndax du ñuy gëm rek ñooy seetaan mais am na ñoo xam ñu ngi ñuy seetaan ngir di xaar critique waaye duñ ko ci gis ndax ba keroog muy jeex lépp lu ñuy wax mën nañ ci baaraam mhm. day am dalil dalil bi nag mooy bu ñuy wax xam Thierno dañuy indi ay preuve teg mhm. preuve bi mooy tey boo xoolee sëti borom daarul moxte yi toog kenn ku ci jàngul amul mhm. léegi nag existence su maam Thierno Imaam lu am solo la loolu ak njàmbaaram la mais di dund di baax am na solo mais jóge fi sax baax des fi moo jafe tey boo demee moo ti premier Ramadan ba le 30 daayri bii mbooloo mi ñuy wax Alwafa thème yi ñuy def amul ci àddina déedéet xeeti xam-xam yi ñuy waxtaanee amul ci àddina te kilifay dëkk baa leen di déglu te ku fa génnee munuñ laa gis ci lu dul xam-xam ak murite ak fit ak ñeme jël engagement ci sëñ Tuubaa loolu moom képp ku bokk ci borom daaru ak sant woo ci mën a bokkee rek rawatina cheikh yi nga xam ne ni àndoon na nag borom daaru ndax tey njabootu seex yëpp ngi woote dañoo mënul rek di tudd ay lim di ko def liste ndax temps bi fi mu toll mais tey euh, imam dégg nga fii sëñ Gana bàyyee sëñ Bamba Mbuub jaar fa sëñ Abdoulaye Diop Bichri ñëw sëñ Ousmane ñëw ak sëñ Sadibou ture léegi bu ñëwee tey ci sëñ Touba dafa am feuille de dafa déclaré ne fii laay jaar muy xam-xam ak ragal yàlla ñaar yi ne kenn mënu ko waxtaane ci réew mi génn ci maam Thierno ndax nit dénk la lim la dénk mu gënal la sa waajur loolu ragal yàlla ak gëm liñ la dénk ak fonk sa kilifa mënu ko weesu ndax dénk la nga dem ba tayle sa waajur gaa yi gëm nañ nag waaye am na fu ñuy yem seen doom sax duñ ko tayle waxuma la ak seeni waajur loolu loolu ragal mënu ko weesu xam-xam weesuwul sa njabootu bopp nga ba nga fiy jóge ñaar ñi nga teg bët nga jël leen ko teg leen ci loxoom soo ko deful woon la ca moom du ko bàyyee moom ndax ku ne xam na nam toll tey loolu nag euh, borom daaru daf ko woote tey lan la ñu mën a indi ci rek récolte lan lañ mën a récolter ci ginnaaw bi fi bi mu fi bàyyi ko ak roy gim roy sëñ Touba nag ci yonent bi ngir dàkku ci bëggam ba ay turam amul fenn foo koy gis ci àddina fudul ci korom kër borom daaru miqdaat Abbas Zubayr ñoom rek ngay gis xalil te loolu yaakaar naa ndono la ci mon cheikh Balla Gaye bismillahi wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp jaar fi yëpp jaar nuyu ñi ñu nuyu ñu nangul ñaan ñi ñaan ñëpp seeni ñaan yal na ko yàlla nangu dafa mel ni tàllu noo jaaraat ci loolu ndax boroom pénc mi dañoo bëgg daal di àgg ci moom <laughs> ndax duñu jàdd ngeen jégal lu ko nag eh, maam Thierno Ibra Faty du ay taalibeem ñoo wax ni moom la ki moom taalibe yi moo wax ni moom la mm. Mawlaana Seexul Xadiim eh, dafa am tàgg woo xam ni <coughs> dafa rëy taggu sëriñ Touba ndax sëriñ Touba noon na lu def mu daaxana mooy raayal ginnaaw nit ko def kon lu mu waxal nit noona la kii nag moo ko waxal te bu bind ko loolu moo tax danañu sawar ci waxtaan yi ndax bëggunoo wax lu ñu bindul ndax fekkewul te gëmunuy nettali ndax nettali daa gaaw a rax rawatina sunu jamono bu dara yëngatu woon fële ca mbedd ma ñu xis nu dem di ko seetaani fekk fa ñett nga ñoo di kenn laaj ko li yëngu lu mu doon ñett ñi rek dañuy daal di wuute looloo xew ci jamono ku mel noonu nag du ko diglu ci ñeent fukki at ak téeméer waaye yàlla baaxee nu gaa bind ci ci yàlla joxoñ ko ba ñuy jàkkaarloo moom muy cheikh Mouhamadul Fadil muy cheikh Mouhamadul Moustapha muy cheikh Moukhtar Bint muy ibrahim a jógul Masari ñii ñëpp di ay kalfeen ku ci nekk ni ceerno yow la. ataytu ila almi'taay fi daarihi almu'ti li yuskiya sakwa alxabdi min yebil basti min yebil basti loolu niiroo naag la ko Cheikh Moustapha wax salaamun alal mextaayi fii daari il mot kon ñoo bokk baxru ñoo bokk rawiye day mel ni kon ñoo bokkoon jitaay ba ñu ko doon waxee loolu ndax rawiye bi benn la xaafiye bi benn la doonte baxaru yi duñu benn li joxoon seen waajur waawoon ni ko yow la kon moom la ndax xam nañ ko bu wér mm-hmm. waaye bu ñu ko waxal woon dara sax sëriñ Tuubaa ku mu jàkkaarloo ni lam yu xaalif nii fii si xarihi wala kibari yi sëriñ Gànna wax na ko leer amul wenn tagg woo ci mën a a réy woo <laughs> la de sëriñ Tuubaa ni la mosulaa woo teeg man nun ñëpp li ñuy mooy ndigalu sëriñ bi ku ciy bàkku rek loolu ngay bàkkoo waaye ceerno da caa boole nag làmmiñam du ko tudd nit du la nettali lu ñu ni ceerno nee na ba ma ko defalee sëñ bàmba lu ko waral li mu defal sëñ bàmba da koo fonk day or or kenn du ko yóbbu ci fëgg jaay ba or mhm. kenn du ko yóbbu ci fëgg jaay bi moo tax sekkare du ko génnee moom maam ceerno bi rey ceew li li muy bari bari di su ko nettali xar baax bëgg ko teg naa ci maam Thierno moom Cheikh Awa Balla sunu sëriñ mu ni yett yi Thierno Birahim nee na fu mu feeñee boo fa demee dootoo fekk jëmm ji baatin bu feeñee dootoo ko fa fekk buut xam ngeen buuta garab gu rëy gii buut bi mooy la ca biiram la ko taawoo ca suuf garab goo gis buutam rek boo fa demee dootoo ko fa fekk mu ne ko ak lan mu ne ak butit butit bu feeñ danañ ci yàlla musal mu ni kon yu feeñ yooyoo tax cero ni bëggul yooyu day dencu rekk ba yow ma la saraay doyloo sëriñ Tuubaa kese du wuti leneen feneen mhm. rakkam ju baax ja maam Cheikh Anta mhm. ñu di ko wooyee borom dërëm ak ngërëm dafa ñëw ci maam Thierno Ibra Faati di ko seet si waaye ñoom dañoo bëgg Serigne Touba boobu fu ñuy waxee dañu sant Serigne Touba nettali bi sax sant Serigne Touba la di yéemu ci ni yàlla dogale Daaru Salaam ga mu xëyee jóge ci ndékki ndik fekk ñuy ndékki fii mu ni kon li war gaaw na loolu lu ci jublu sant borom yëf yi bi Serigne Bamba maam Thierno Ibra Faati am daal di koy santaat ni ko wax nga dëgg li nga war gaaw na waaye li ma war a ko gën a gaaw mu ni ko li nga war lan la mu ni wa aleykum salaam te dootuma wax nit ci àddina asalaamu aleykum gi doyloo ndax kenn mas naa doyloo noonu mhm. wa aleykum salaam lay féetewoo du doon ganu kenn ci àddina te kooku mooy Ceerno Ibra Faati kooku mooy jàmbaar ji jàmbaar la ci xeetu jàmbaar wi ngeen xam boo deman ca baykat yee ñu ni ku fi gën a jàmbaare dañuy joxoñ ceerno la mu am ciw ngat kenn amatu ko léeg-léeg damay wax ni ñi mu bàyyi ñu jàmbaare lañu ñu jàmbaare lañu ay këram waaye wallahi ceerno leen gën a jàmbaare ndax ku ne fa nga nekk moo ko gor kon kay moo gën a jàmbaare ñépp bërki démb damay dem di siyaare benn sanc ci sanc yooyu fu ñuy wax cinkóor yi ngeen di ko wax cinkóor yi fekk fa maam Thierno yal na ko yàlla dëgëral la ma ko jëkk laaj ñett yëf rek la ma ne ko dëkkub Thierno bu ma dem ñett laay laaj mu ni ma ban ak ban ma ne ko ana daara boo ma ko joxoñul rek sëriñ maam Thierno bi day moomul boobu dëkk ana tool ya ana jàkka dëkk bu ñu askane ceerno boo dikkee fekkoo fa yooyu tuxul ceerno tuxoo na fa mu won ma yëpp won ma jumaay ju rëy yu mu naal yal na ko àggalee jàmm loolay dëkkub ceerno bëgg sëriñ Touba lool mu gënal ko lu ne mu yoru fitam fit wi léegi bu ma ko misaalee yéen ñëpp di ngeen ko xam yéen ñëpp xam ngeen ni ceerno rëy fi tubaab yi bi ñu jëlee sëriñ Touba ak seen doole ju bari nga xam ne jamono boobu ku seenu këkki daw këkki laa wax ku ko seen daw ñu jële fi sëriñ Bamba ñu ni sànki nañ ko lu ngeen daan def ceerno képp a taxaw ni maa ko fi nekkal maa ko fi nekkal jooju tuutiwul de bokk mi maa ko fi nekkal tuutiwul demal ci réew yi rek réew moo dëkk nga di waaw mm-hmm. eh, kan moo fi doonoon président bu ñu ni diw ka dina tax kenn du ñimee tudd ka fa nekkoon yaa def ragal mhm. ceeru mhm. de ku ñëw man nekkal bàmba mi ngeen yóbbu man la mhm. jël leen ma mu yóbbu cee kon làqutuwul barki démb bi ñuy dem daarul man naan yal na yàlla sotti ngërëmam ak yërmandeem ci Cheikh Mouhamadul Muxtaar borom jàmm jooju ak woyaf ga bëgg gi nit bëgg maam Cerno Birahim dañoo jaar biiru Daaru Muxti xuus ci lu yàgg yàgg <laughs> ma ni ko waa biib dëkk dëkkub Cerno wax dëgg la mooy dëkk bi mujj moo mujj de ci sanc yi waaye nag lu tax Touba gën a rëy ci dëkk yi ñu ni sëñ Touba ko sanc kon kay bii faawu mu rëy ndax sëñ Touba ko sanc moom itam moo ko ni tudde ko nangam daarul moxti ataytu ilal mi'taayi fii daari el moxti kon nag lu loxol sëriñ Touba laal du yem ak leneen kon day law rek waaye Touba la jëm te sa yëpp xudóos dafa waxan loolu am solo noonu na benn quartier képp la ci Touba xam ngeen na quartier lu muy tekki ab quartier la ci biir Touba boobu junj la de mbokk yi ab junj bu réer yi waaye boroom isaara yi danañ ko xam kon maam Thierno Ibra Fati ca xam-xam ba xam-xam bi duma ni Cheikh Muxtaar Binta mi mu doon jàngal moo ko ni bari nga xam-xam duma wax ni sëriñ diw sëriñ diw mi mu doon jàngal moo ni bari na xam-xam déedéet Tuubaa ko ni bari nga xam-xam céy naa day tukkal yow ma bi ibrahimu alim fatan yan fa waxoo tef imu yow Ibrahima tey sa tur laa woo demal nga dem jàngale ji est que sëñ Touba dina jàngale loolu ne laat déedéet waaye xam ngeen ko def kat ndax xam na sarti jàngale xam na nu mu war a mel xam na dayoo ba nu mu war a mel mu ni Ceerno demal nga jàngale ji Ceerno dem jàngale ji Ceerno dem gori tool yi ni ko demal nga dem sañ ci dëkk mu ñeme lool fee ngeen dëkk di Daaru Muxti nu dëkk fa nun ñëpp ba muy doonub gott ku fa ñemee tegus mbaar di fa fanaan xam nga ne ñeme nga te yemul foofu de gor na àll yu dul jeex sëñ Abdou Khoudous moo nettali ni xabaan gii moo ko goroon xabaan bay fa mennum at ni fii daa xat moom daa di woo sëñ ma Ndumbe Mbàkke ni ko sab tool mooy toolub sëñ Bamba kon jël ko mu di fa bay lu dul jeex bu noppee bu dee dugub kenn du ca bool bu dee gerte kenn du ca yëy sëf lépp yët ceeroon lay def te mu sa dakk looloo taxan mu jagleel ko loolu kon kooku it ca gaa ya la bokk moo na moom it de boo ko tuddee ca borom xam-xam ya mooy sëñ Bàmbaa ko ne borom xam-xam nga sëñ ma ndumbi lu tax ci lan la ko waxee ni boroom xam-xam nga sëñ Bamba yebal na sëñ nu Mandumbe gànnaar ngir mu wëreeli ko ay téere mhm. Mhm. ku ñuy jëndaloo téere xam-xam nag ñu jëm ci sëriñ Touba xam nga ne am nga xam-xam man boo ma jëndaloo woon tey téere tubaab damay seet rek ku ci gën a rafet couverture laa lay indil ndax xaw ma ci dara waaye kooka nag kon fóori la woon ñooñu la sëriñ Touba defaroon moo tax Cheikh Muxtaar Bintaloo dafa defar benn téere di ci tàgg waa kër Serigne Touba yi. maanaam mag ña. te loolu sëñ Daam Abdourahmaan moo ko santoon. da ko bind bataaxel ni ko dama bëgg nga defaral ma genn xasiida goo xam ne da nga ciy tagg Serigne Touba tagg ci doomi baayam yi tàgg ci ndijaayam yi te koo ci tudd nga ñaan ci barkeem nee na bi ma lettre boobu bi ma ko jotee awma jot benn bayit képp laa ci def mënta àgg ndax booba maa ngi ci kër maam na Ibra Faati njàng ak jàngale téye na sama waxtu yépp ba awma temps ñu toog ba ci déwén sa maam Thierno yeewee ma ci daare jàngale ji yóbbu ma ca daare tarbiya ja fóoree ngay bor bay di gor bi fóore ju mag jooja ma ngay bay di gor nee na gor baag mbay ma itam yóbbu ma ba awma jotug defar xasida bi ba bañ ma yeewee tudd na at ma bu ngeen demee di ngeen ko ca gis ma soog a defar xasida gi xasida gu yéeme la nag mboolem ku bokk sëriñ bi tudd la la ca tudd sow tur dégg tudd la nga man ci xam-xam waaye nag li ñuy wax mbakkar feggu nag ba mu àggee ci Ceerno Ibra Faati def na ko yaatu na ca lool ba mu àggee ci bu so yaatu na ca lool benn mbokk bu mën a tooñ mu ni sëriñ daara gi da cee feeñ nag bi mu dikkee nag tudd na ñëpp waaye bi mu dikkee ci sëriñ daara yi dafa mel ni fii ko taxoon a jóg kon ñooñu ñoo wax ni na boroom xam-xam la Ceerno baykat la moom gor bee ko wax hmm. xam nga doomu aadama moo fi dàqoon a gor kenn du ko wax jiwa fi gën a yaatuwul la kenn du ko wax xoolal li jëf rek amul wenn nal hmm. amul wenn wenn benn gor boo xam ne borom yóbbaale na ko laaxira mi ngi fi ba lu mu yàgg-yàgg boo fa demee boo laa ngat woo ñu won la ko kon foofu mooy daarul Eh, yëf kon ku mel noonu nag ñu ñëw ci bis bii mu ñëw mhm. mu ni mooy bis bi gën a rëy ci moom mooy ban bis du bisu juddu kenn du bisu faatu kenn mooy bi bis bi mu gis Serigne Touba mhm. bisub xaritam bisu soppeem bis bi ko gënal ñëpp ndax ki yee ko gënal ñëpp ba mu ko ñàkkee gis ba gisaat ko bis boobee ko gënal ci bis yi boobu bis nag mooy bi nga xam ne bu ñëwee mu fàttaliku yàlla jàngulu alquran jàng ko tagg yonent bi taggulu ko ngir lan ngir bëgg kooku bi ndax xam na lu koy bégloo li koy bégloo du lana lenn lu dul lu bégloo yàlla Sëriñ Tuubaa moo xam ne yàlla lu mu bëgg yonent bi la bëgg te lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko li ngeen waxoon ci ni li Sëriñ tuuba wax Ceerno Ibra Faati ni ko euh, ak ndawam ak magam mësta wuuteeg man doyoon na waaye Serigne Touba bi dem yépp itam ñaari béyt yooyu doy na ci géej naa ci yàlla ni yonent bii la yonent bii mooy sama soppe lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko doy na sëkk hmm. ñëw bindati benn téere lam la yabal xam nga ko mooy demal xool li yonent bëgg nga def ko li mu bañ nga bàyyi ko foofu la ceeroo nekkoon nag ndeysaan jërëjëf bëggoon yàlla lool hmm. bëgg yonent bi lool hmm. fonk diine lool fonk lislaamam bi lool du mukk xam nga ni kon taxul ñuy wax la ca des jàkka ji kenn ñi koo manqué du menn mag mu ñimee manqué jàkka ji la ñuy wax diiwaan ba di jàng xasiida yi kenn ñi mu koo manqué yi kenn ñi mu kenn ñi mu wuta bañ ca tool yi kon maam Thierno Ibra Faty ay waxtoon daa feesoon dell <laughs> ci dara ndeysaan looloo tax nag gaa yi fonkoon ko ndeysaan gaa yi benn bis am na xasiida bu ma doon jéem bu yàgg a yàgg ataytu maa ngi doon wax ni wa rubba wa rubba mu'tin xaafilin fi baslihi yuxti aqal aylati qabla zuhlihi wa daaruhu bi daari mu'tin wa wa wa daaruhu xaw ma nu ma ko waxee tuwaay xam nga léegi màggat naa hmm. euh, waaw loolu nag maskani man maskani man saazal wara bi fadlihi boo bëggee xool koo xam ni moo teg gaa yi ci yoon teg leen fa ñu war a jaar ñépp jub ñëpp jàng te wax ngeen ko léegi kookee ngeen di seeti Daaru Muxti jërëjëf mooy maam Thierno Ibra Fati yal nañu yaakaar naa ni waaw ndax li mu indi rek ci jataay bi dëgg la euh, donte ñu ngi doon yaakaar naa yaa ngi doon taaxeerlu sëñ Basiru moom sëñ Abdul Xuddoos sëñ Moustapha Silla mu ngi toog sëñ Abo sàll mu ngi toog sëñ ma Fall Euh, ak sëñ Serigne Mahmoudan mooy tëj jotaay bi moom mooy tëj moom mooy tëj jotaay bi ndax moom mooy euh, doomi Serigne Bassirou Anta Niang ni xalifa borom Daarul Moxti ndeysaan nga xam ni bu yàggul rek gis ngeen digganteem ak sëñ Muntaxa mhm. ak la ko sëñ Muntaxa wax ak demam yooju mu dem sëñ Muntaxa mhm. euh, ñu ngi koy ziare bu baax di borom xam-xam mhm. di ko jubóog yoonu murit bépp di ko xam yoon wi nag waaye di ko bari xam-xam waaye Serigne bi bi ngay wax léegi la ñu bor Serigne Daaru Marnaan xalifa Serigne Cheikh Oballa mi ngi topp jotaay bi Euh, Serigne Ganna mi ngi bëgg nee muy ku fonk télévision waaw ah, muy alaaji maam Thierno na ah, fonk télévision nee na di sant alaaji Mbàkke yu fay mhm. ci ñëw gi mu ñëw jaale si ko sëñ Modou Makhtar mhm. ndax ah, li wax doy na sëkk euh, Cheikh Awa Balla dafa nduru mhm. sëñ Tuubaa ci lépp ak borom Daaru Muxti nañ def fii ci wetu ndejoor sama rakk ju baax ji di Serigne Modou Makhtar Cheikh Balla ñu boole woon te mosuñoo wute ci dara mhm. yàlla ko yàlla fay moom borom sëñ Daaru Marnaan mhm. mi ngi topp jotaay bi di nit mat li mu doon nag di nit ku fees place am mhm. yàlla yàlla guddal fanam léegi la euh, woote di santaat alaaji ma fàll ñu yóbbante kent ci yow moom xam nga du wootee euh, kilifa gu nekk nam toll rek nga koy nga koy nga koy nga koy jox euh, di jaare magam ju baax ja nga xam ne doy na sëkk rek ci nga ni kii sëtu borom Daaru Muxti la mu bokk ci kenew yoon wi ñëpp xam ni mu mel ci ci ci ci lislaam waaye ni mu mel ci yàlla muy sëriñ Moustapha Absatou Diakhaté doy na sëkk ñu ni kii borom Daarul Muxti mooy maamam ni sëñ Moustapha Absa mel sëñ sëñ Amidoun sëñ du Bakhem sëñ Xaas day def tabaski jot mu jox am xar sëñ Moustapha sa ñu ne ko loo ci jublu sëñ Mafaan mu ni ma leer na leer na ko ni ci ñi sëñ Tuubaa doon loo baatin bi yoon wi ci la bokk loolu doy na sëkk nee na leer na ko te leer na ko ni ba ba mu dee ba mu dee sëñ Moustapha Sa ba léegi mm-hmm. ci njub rek leer na ko te nawleem la te yàlla dimbali ko kon mu mel ni sëñ Moustapha Sy la Guèye nee na ab addee sëñ Moustapha waaw ndeysaan waaw sëñ Moustapha sëñ daam xam naa bu mënee xoolaale sëñ daam kon ñu jox micro bi sëñ Moustapha Sy la mm-hmm. mi nga xam ni du ñoppee sëriñ Abo Sall suñu sëriñ mm-hmm. moom mii nag ndeysaan daf daf ñu mës a ànd ba ci sëriñ Cheikh Khady mu yóbbu ma fa yàlla yàlla guddal fanam muy Serigne Cheikh Hadi kii sama xarit la sama rakk la sama mbokkum taalibe la Cheikh Anta Samb la tudd Daaru Salaam la dëkk doomi alaaji Cheikh Samb la salaamaaleykum Serigne ni ma toogal dafa mel ni sëñ bi dugg ma toog ah sëñ Bas dugg na waaw salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ daam xam naa mu yokkal ñu fii tuuti dégg-dégg asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Dame xoolal ñu retour bi fii rek ñu mën a gën a dégg waaw. Euh, maa ngi leen di nuyu. yéen mboolem ñi nekk ci jataay bi. ñu leen siyaar baax Mbàkke di leen nuyu ci turu sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang. Mhm. ñi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty. Mhm. xam naa ndegam sëriñ Mahmoudan mi ci jataay bi. dañu mënta ñàkk nuyoo ndax sargal leen ci liggéey bi nga xam ne ci nekk boobu ba léegi di nuyu mboolem ñu teew ci jataay bi nuyu borom kër gi Alaaji Mbàkke yu fay ñi nga xam ne suñu wëlëre wu yàgg la te li ñu xam ci moom moo di ak taalibi ak ak ak bëgg Serigne Touba. Mm-hmm. yaakaar naa ne bi ma ko bi ñu xamante ak léegi war naa dem 1983 ci li ma jàpp. Mm-hmm. waaye li ma xam ci moom mooy loolu moo di ak taalibi ak bëgg sëriñ Touba. Mm-hmm. bëgg nag dafa am lu muy tekki ci yaakaar naa ne Serigne Cheikh Awa Balla Gueye war na ko mën a dëggal te mën na koo leeral. xabatu dafa bokk ci maqamatu yaqin yi moo di li ngay bëgg. dadul bëgg nga bëgg leneen lu dul moom ba xam da ngay mujj nekk sax jaamu bu loola moo tax gëm sëriñ bi ak bëgg sëriñ bi eh, naka jekk loolu lañu xam ci moom di ko ñaanal yàlla mhm. waaye loolu lépp nag bala ñuy kii danañu ak ñëpp ñu ñaanal ñi nga xam ne fekk woon nañu daaw te fekk wu ñu ren mhm. waaye loolu suñ ko waxee suñu xel yépp day dem ci sëriñ Abbas mi nga xam ne eh, naga ni daaw mooy ki nga xam ne moo jiitu woon lii te yàlla jëfandikoo coobaram mboolem liggéey nga xam ne liggéey na ko diine lislaam liggéeyal ko Sëriñ Tuuba liggéey ko boroom daaru moo fi koy joxam yàlla ko ko yàlla baawaanal ba mu de jàll ci ñeneen ak mbooleem ñi nga xam ne fekk wuy ji nañ suñu borom ci diir bile waaye yaakaar naa ne bu ñu tuddee Sëriñ Mouhamadul Muxtaar sëriñ aw ma Balla li nga xam ne mm, ci ay bis rek lay toll yu manqué sax mm, nekkoon koo xam ne lu mel ne liggéey bii ngeen di liggéey mm-hmm. mm, suñ ko fa gisee rek xel dal mm-hmm. ndax bëgg sëriñ Tuubaa bëgg borom daaru Muxti mm-hmm. yal na ko yàlla fay ab taxawaayam te yàlla fay ko ci ak njabootam ni ko sëriñ na waxe waxee barki démb rek bi nga xamee ne njabootam gi ñëw nañ ci moom wala may bàyyee sëriñ doon kaddu gi rek mooy damay wax ne mhm. eh, jataay bi lii rek mooy màggal gi mhm. ndax eh, Daaru Muxti kër boroom Daaru Muxti mhm. ndégal bu fekkoon na lu ñuy daq la muy wut fu muy rawee ji kër boroom Daaru Muxti la wala rawee ji moo war a nekk ab rawtukaayam te sëriñ Muntaxa joxe na ndigal li ñuy joxe kon lii mooy liggéey bi nga xam ne mooy bi ci gën a war a mën a feeñ mm-hmm. ci li nga xam ne moom lañuy ñuy fàttalikoo ci ci ci bés bi mm-hmm. te nag euh, lépp lu ñuy am lu nekk mm-hmm. bu yàlla dogalee nga xam ne mën nañ ko am ci ndigalul sëriñ bi topp ndigalul sëriñ bi moytu ay ay tereem loolu mooy li nga xam ne moom mën a may li ñu li ñu bëgg lépp ci gàttal ci soññi ak rafetlu taxawaay bi nga xam ne mm-hmm. mbokk yi njaboot gi nga xam ne ñoo taxawal eh, takku defar daaru mm-hmm. eh, yaakaar naa ne eh, loolu day baat boo xam ne yaatu na yaatu koo xam ne mm-hmm. jataayu boppam rek la laaj ndax sëriñ Abdul Xuddus dafa daan wax naan bokk na ci li may nawee nit mooy mu fonk la mu am itam barab bu nekk la fa nekk ña fa nekk ñoo ko fa def ñoo ko fa war a def ñoo ko fay def loolu yëpp nag day feeñ ci biir liggéey boobu kon kenn ku nekk ci yéen ñi nga xam ne yéen ko taxawal gën a taxawal sa pëstéef te lu ca mën a dolli gën a dolliku ci mbooloo mi eh, aju ci borom daaru moote rek ñu ñu def ko ndax liggéeyal borom daaru moote mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba nag borom daaru moo ti dane woon liggéeyal sëriñ Tuubaa jombul ci kenn te kenn du ko weesu loolu mooy li nga xam ne kon ñoom maa ngi leen koy soññi di ko soññi ci nga xam ne ñoom lañu ànd liggéey bi yépp mhm. te loolu mooy mooy li nga xam ne moom la war a euh, dox suñu diggante ak ñoom mhm. di nuyu mbokki waa kër boroom daaru moo ti nekk ci Ndakaaru yëpp waaye nag dañ koy wax rek ci alaaji Mafal mi nga xam ne mooy euh, jëwriñ yi njabootu borom daaru mu fi gi ndakaaru ci ndigalu sëriñ Bassirou am ta ñan li nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom daaru mooti di ko sant ci taxawaay yi nga xam ne moo xam ñi ñëw ci jataay bi foofu la moo xam ñi ñëw ci jataay ba nekk fële ci làmp la ndax euh, jotal nañu bu baax a baax taxawaay yi nga xam ne ak teeru gi nga xam ne euh, defal na ko njaboot gi loolu kon wane na ne kon li sëriñ bi doon séntu ci moom nu di ko séntu ci moom ni itam ñun loolu firndeel na ko te yàgg na koo firndeel itam kon yàlla na ko yàlla may ngërëm mm-hmm. te boole nu ko te lépp lu mu ci def lu nekk rek sunu borom dencal ko ko dafa nga xam ne kenn ku ne da ko soxla woo bu ëllëgee loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ci waroon ci bàyyi ak sëriñ Mahmoudan rek moo di wan leen ne dinaa dugal sama kàddu ndax sàkku nañ ko ci man waaye ndegam yebal nañu ay ndaw foofu yebal ay ndaw fële ci lam mm. eh, yaakaar naa te ñu doy ñu sëkk ci loolu ndax fële sëñ sëñ Moodu ma nga ak sëriñ Abbas sëñ Mahmadu nekk foofu moom itam ak sëñ Abo bokk yi ñu fi fekk ak yi ñu àndaale yépp eh, jàpp naa ne booleem ñi nga xam ne jot naa leen cee dégg xëy na dégguma yëpp mm-hmm. waaye eh, li ma jot a dégg léegi ci sëriñ Cheikh xaw Balla Gueye moom defe naa ne ku ci yemoon rek doy na sëkk. ndeysaan yecca xam naa ne noonu lay mel. kon yàlla bi nga xam ne moo tax euh, nuy yëngatu yàlla na barkeel suñuy yëngatu. amiin amiin ñu séentu ci sëriñ bi ak di ko ci wut yàlla na ko defal. amiin te nu tënku nag ci ndigal yi nga xam ne rek moom la euh, sëriñ bi santaane. te mm. mooy jaar ci euh, li sëriñ taxa wax rek. Mm-hmm. ne nañ ko defee noonu ñu defee ko noonu te mm-hmm. lam waxoon keroog ba fa sëriñ Basiru ànd ña demee itam ci bañ a doon loo xam dañ koy bakkoo rek waaye dañ ko war a soññi suñu bopp mooy euh, borom daaru Muxti sëriñ Tuubaa dañu ko tegal suñu kanam melal ko ni mu bëgg nu mel ni defe naa ne loolu daa war a diis war a nekk ab royukaay nekk ab soññukaay waaye duñu ne rek euh, sama maam wala sama nangam moom la sëriñ bi wax nii mm-hmm. loolu nag mooy euh, nit bu fekkee ne da nga am loo xam ne mm, sunu borom daf la ko jagleel te buñ ko doon jaay doo am njëgam nga fonk ko téye téye ko rek mooy li baax xadiisu mm. eh, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am na bu tabaraani yi di wax naan eh, yonante bi dafa xam ne dee ci topp yàlla eh, moo gën fopp gën a neex dund goo xam ne gi yaa ngi koy dund ci mooy yàlla loolu liñ koy mën a déggee rek mooy di wéy ci ndigal lu la ci fekk baax na waaye hmm. topp sa bakkan ak loo ca mën a am it lu mu nuuru nuuru dara du doon dara mawfun fi taatillah a min alxayaat fi maasiyatillah loolu loolu mooy li nga xam ne moom lañ mën a déggee ci ndigalul kilifa man ko war a mën a toppee ak moom maa ngi leen di nuyu di leen sant ci turu sëriñ bi moom mi nga xam ne moom la fi yàlla teg te ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko te may ko wér ak kattan defal ko sëriñ Muntaxa li nga xam ne yoonu murit la hmm. sagub lislaam yëpp la sagub réewum mi yëpp la yaakaar naa ne euh, lu néew ci ginnaaw rek am nañ ci firnde yoo xam ne kenn ci nekk xam nga xam nga ko ci sa bopp maa ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom ngeen nekkal ci jataay euh, ñi jël kàddu ak ñi ko jëlut euh, teewaay bi rek wane na ne ittewoo gaa ngi fi kon loolu sant nañ leen ci bu ci turu sëriñ bi maanaam eh, sëriñ Mahmoudan dina ko gën a yaatal. waaye Mbacke waaye samay cant ci El Hadj Mbacke yu fay. Eh, ma wax leen rek lu tuuti El Hadj Mbacke yu suñu yàgg googu dafa tax ba am na koo xam ne jamono lu nekk dafay am dafa am benn waay boo xam ne ci fan yële dafa maa woo ndekete woo kooka la yàlla xam doy na. dëgg la maanaam suñu sama digg nee na El Hadj nii la mel. caw mm-hmm. nee na lii nee na lii ndekete woo daa am lu mu doon mm-hmm. pexe yooyee nag mm, yàlla xawu ko sottal waaye la cay lor lépp la ci ëpp doole ji moom eh, yanu na lor jooja mm-hmm. te na mu waxee day mel na koo xam ne kii moom ci ji la xëy fa la fa la fa nekk <laughs> ndax xam ko mu xam suñu diggante ba ci sëñ Abdul Xudóor si wax mm-hmm. waaye la loolu mooy won ne maanaam coloré eh, ga yàgg na waaye nag eh, mooy la mu sàmm ba pexe yooyee waa ji doon defit naax saa yi wallaay ndeysaan loolu euh, danaa ko wax ngir ñu xam ne. wallaay euh, nit ñi euh, yemuñu. ndeysaan li nga xam ne moom lañu ñu ak moom. Mm-hmm. loola moom mi ngi suñu diggante. dëgg la waaye nag du du koo xam ne kii da ngay la jaar ak àll ba wax lu la neex. Mm-hmm. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm te coono yi mu toggoo ngir loole. Mm-hmm. suñu borom. nangu ko ci barke Serigne Touba. jërëjëf jërëjëf sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf Mbacke mu may nu am ngërëmu Serigne Touba. amiin amiin li nga xam ne moo ni jëriñ tey ëllëg. te bis bi ñu fekkee ko jàmm li liñ ci def lu nekk rek suñu borom nangu ko. mu dëppoo itam ak na nga xam ne ne la ko Serigne bi bëggee muy ba si Serigne Bassirou Anta di Serigne Mountakha.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 Euh, Serigne Aboum Serigne Fallou Sy Dieye mm-hmm. euh, am na lu mu ci war a euh, gën a yaatal mm-hmm. ci kàddu gi waaye sëñ Moustapha Sylla mu jege mu jege moom mi nga xam ni moo yor mm-hmm. takku defar daaru si wala takku taxawu daaru kuréel googu nga xam ni moo am solo lool takku defar daaru takku defar daaru waaw takku defar daaru ci njiital sëriñ ci ci njiital sëñ Abdou Samad mhm. moom sëñ moo daw Balla imam mhm. mi nga xam ni euh, mooy jiite lépp euh, bépp wàccuwaayu caay ab rek moo la ko jox mhm. kon sëñ euh, Moustapha la xam naa ni du noppee ñu jox sëñ Abou wala wala wala sëñ Abou jiitu ñu jox sëñ Abou bu noppee ñu jox ñu jox du noppee ñu jox sëñ Moustapha Sylla ñu jox sëñ Aboum sëñ Fallou si Dieye ñu joxal ñu micro bi sëñ Abou sëñ Ousmane Euh, mi nga xam ne nag jàmbaar la di coordonnateur bu am solo ndax moo ko sëñ Mafal waxtu wu nekk ñooy ñëw ci télé bi guddi ak bëccëg mhm. di liggéeyandoo ngir lépp mën a rafet lépp mën a jag dëgg la sëñ Abo bi maam Cheikh xanaa balaa sëñ Abo jël mhm. lii sëñ Basiiru doon leeral léegi ñu di ko ziyaare bu baax mhm. euh, dafa am benn waajoo xam ne dafa doon wax ci turu Alaaji Mbàkke yu di woo ay kilifa di leen woo ci turam di leen wax ne dafa am àddiyee jum leen jox di jël seen xaalis Eh, xam nga kilifa goo gis ci yoonu murit bu jaxasoowul ak alaaji mbàkk yu soo jëlee téléphone woo ko ne ko man la alaaji mbàkk yu fay dana la déglu dana maslaa ak yow dana la jox yow ma ndax cofeel giñ ko ëmbal eh, ba jot cee def ay xeeti njublan yu bari man bi ma ko jotee téléphone ndax kilifa gu mag la ko def waxtaan ceeg moom dana ma ah kooku de ci baaxam rek waaye képp kum ko def soo woowee jëwriñ rek mu jël xaalis lu toll nii lim la yónnee yónneewaat la ko eh, ci kaw def na ko sëñ Basiru mi moom la sañ Basiru doon leeral te loolu lu mat a leeral la ginnaaw bi la ko def ba yegg ci doomi sëñ Fallou euh, ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee moom sax yëgu ko bi ma ko ko waxee mun ma ah damaa xamoon ni man mu jug di attaqué nit moom ku ma ca fekk di ma yedd waaye xamoon naa ne bala mu ko bala moo jàll sëñ dina ko weer euh, loolu lay leeral nii mu nekk loo xam tamit ñu koy leeralaat bu baax ci mhm. képp ku ñu wone la man la alaaji mbàkk yu dama laa jox ceeb wala oto wala lu mu mën a doon boo yónnee xaalis bi dañ ci mën a jot nañ xam ne kooku du ci turu alaaji mbàkk yu fay Euh, beneen bi ci topp mooy maam Cheikh Anta muy sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang mi fi nekk xalifa borom Daaru Mooti mm-hmm. ku ne dafa war a rafet lu taxawaayam ginnaaw bi sëriñ Abbas Mbàkke dëddoo léegi la ñu sëñ Mafal di wax ne bala ñoo jeexal nañu rendre avance sëñ Abbas ak sëñ Moodu Maxtaar mm-hmm. ndax sëñ Basiiru bi mu ñëwee sëñ seexanta lu mu fi fekkoon daaru dafa wéyal loolu mm-hmm. muy ci porte parole bi sëriñ Basiiru Abdul Xudoos muy sëñ Cheikh fey ci Daaru Mooti waaye jëwri yi mu sampaat muy sëñ Modou Kara Mbacké noonu mi général muy sëñ ma faal mii loolu mooy yan bi ñun ñëpp a koy bokk yan loolu nag dafa am benn affaire bu ñu wala saluer la boo xam ne ñëpp dañu war a taxaw ne sëñ bi Mbàkke buntam la ubbil ñëpp ne leen kaay lu ñu ànd ñu liggéeyal daal ci la mbooloo mii taxaw takku defar daarul mooti loolu nag yaatal na dëkk ba sëñ ma faal mii keroog bi nga xamee ne daje nañ ko sëñ Modou bari na ay yéene yum ci am doon ñu ko leeral loolu dafay matal leeral ci plateau bu toll nii ñu xam ne ki fi toog tey doon fi borom daarul mooti taxawaay bi ay magam amoon ci liggéeyal maam Thierno taxawaay bu dal noonu la am mhm. tey ubbi na ko yaatal na ko ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu téwér yaakaar naa sëñ Abo ci duggee dana ko gën a leeral bisimilah euh, salaamaaleykum wa rahmatullah naaw bu ñëw musloo ci saytaane tudd màggu yàlla bi julli ci sangu sang yi sant Serigne Touba euh, suñu wax dañ koy tàmbalee rek ci di ziar ak a ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa mm-hmm. suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa la mu réew bi mu naa la muy université bi suñu borom may ko ci ndab ba mu àggale ko ci jàmm di mm-hmm. ziare tamit kii fi nekk di Serigne Bassirou moom Cheikh ma Faty mi nga xam ne moo fi boroom daaru waaye di ñaanal ki nga xam ne moo fi bàyyi ko muy Serigne Abbas mi nga xam ne ku nekk tam gis na jëf bu réy ji mu fi jëf ba jóge fi bu yàggul rek waaye man li ma ciy wax rek. Mm-hmm. xam naa ay kàddu yu gàtt lay doon Cheikh. ndeysaan muy sama diggante ak Touba yi mm-hmm. ndax li may sant yàlla mooy tey bu ñu demee ba jotaay yu mel nii di am fii. Mm-hmm. te yàlla muy dogal dogal mu tàmbalee ko ci man. nga xam ne diggante Touba ak TV Touba TV ak Daaru Muxti. yàlla ci sama loxo jaar ñu ko jaarale dëgg la bu wér. ñu ciy liggéey ay ati dëgg la dëgg la ak sëñ Mafal mii. ba ak si fii tey moo tax tey. may sant bu baax jëwriñ Mbàkke yu fay mhm. ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko dama koy wax ne loxoom daf koo jën teg ko foo xam ne ci yoonu murit ba addunay tukki dootu raaf ndax Masaalikul Jinaan muy jàmbaar lool bi ñu daan njëkk ñëw fii di fi def ci ay plateau spécial mhm. boobu xaalis bi daawul demee noonu waaye soo ñëwee daf ne sañ aboo bu ñëwee lu mu am rek nañ ko ko defal ci la ay plateau tàmbalee ba ji plateau yi dina ñëw fépp foo xam ne nii communication daaru tey àgg na fa fierté la ci man dëgg la ndegam maa ko tàmbali ba mag si fii tey loolu sant yàlla lañ ciy def bu baax waaye li ëpp solo nag ci loolu mooy murit bu ne tey dama koy wax dama naan nit bu la defalee lu baax da a delloo tey bépp murit bu yeewu rek war ngaa wut carte promo bi jàppale ko ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey ko sëñ nit nag bu lu baax da am ngor delloo ko te loolu moom daf koo def beneen bi ci topp nag mooy li ñuy wax ci borom daaru muxti damay wax ne borom daaru bi sëñ bi demagul ci géej gi moom ñëpp la bi sëñ bi ñibbisee moom ñëpp waaye bi sëriñ Tuubaa demee ci géej gi moom rek bi sëñ bi nekkee demagul ci géej gi moom ñëpp la bi sëñ bi dellusee ba nekkaat fi moom moom ñëpp la waaye bi sëñ bi demee ci géej gi moom dong la mhm. kum dul jox ndigal rek booba bàyyi nga bàyyi nga fuutib sëriñ ba sëñ bi dellusee nga dellusi waaye ko wax ku di rek boobu moo la jox ndigal kon kenn du borom daaru mufti mm-hmm. waaye nag dafa am loo xam ne sëriñ Basiru mii fi nekk tey di xalifa daf koo def muy lu am solo mm-hmm. mooy jël li nga xam ne mooy njabootu borom daaru gi yaatal mm-hmm. séddale ay cër jël cër bu nga xam ne mooy kaddu gi borom borom daaru bàyyi ko ci ki ko yoroon muy Cheikh Mamadou Bachir ku ne gis ñu ngi koy yore ci rafet bu mu rafet ak liggéey bi mu ci liggéey ni mu rafete waaye nag mu taxawalaat geneen kuréel bu mag goo xam ne nii ci biir réew mi la ak bitim réew dégg ko Serigne Modou Kara moom Serigne Ousmane defe naa loolu tamit yëpp war koo xam mu nekk ci tàmbali ci ab liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la te sëñ dan mii dina ci dikk ndax moom loolu moom moo koy moom moo ko yelloo jël lu mel ne dëkk bi jox ko Serigne Cheikh Sow kuréel gi nga xam ne moom la sëñ bi la di bëgg a jël kàddu di ci wax. sëñ Moustapha nga xam sëñ Moustapha nga xam ne moom Serigne Abdou Samad moom sëñ mu daw bàllaa ko jiite waaye kuréel gi ci ëpp solo mooy euh, lépp luy mbarum. diine ñoom lañ ko dénk maanaam bu jëm ci wàllu culture muy jumaa yeeg daara yi ak lépp sëñ Abdou Samad ko yor nga gis projet bi nga xam ne nii taxawal nañ ko nii li ci jiitu mooy defar lu mel ne ab maternité boo xam ne nii jigéen ñi fay fajoo ay projet yoo xam ne yu bari la sëñ sëñ sëñ Moustapha dina ci ñëw euh, leneen li ci des tamit mooy màggal gi nga xam ne ñoom moom lañ jublu sànq ba léegi dañ ciy wax te leer la guñ ko mooy Serigne Mountakha dafa jox ndigal sëñ Bassirou Ibrahim wax ko ne ko màggal gi na ko ñëpp nañ ko def nañ ko daan defee sëriñ bi wax ne na ñëpp toog seen kër defe ko foofu loolu tamit day kàddu goo xam ne dafa jar di leeralaat ndigal ndax ndigal suñ mu taxaa moom bu xasee ba dugg daaru rek mhm. kenn waratu ko sàgganee mhm. noonu dañ ko war a exécuté ndeysaan waaye itam am mu am lu am solo nag mhm. yéen ñëpp ngeen war jàpp muy liggéey bu mag bi nga xam ne sëriñ Bassirou Anta Dieng jël na ko dénk ko sëriñ Modou Kara ndax dafa rëy ndax fédération la boo xam ne nii ci biir réew mi la ak bitim fii ci Ndakaaru yi képp ku fi yeewoo suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy suñu mafaal moom dañ dënk ndakaaru léegi ba nga xam ne képp koo xam ne bokk nga ci borom daaru te nekk ndakaaru war ngaa fexee jegeenteeg moom ngir liggéey bi nga xam ne sëñ bi bëgg na koo liggéey mu liggéey kook moom leneen li ci topp mooy moom mi tamit ki ñu war a liggéeyal mooy sëriñ Mbàkke yu fay ndax moom ma fi nekkal sëriñ Tuubaa kon nag loolu moo doon kàddu yi may sant ñëpp ndeysaan di gërëm ñëpp di sant sama xarit sëñ Gànna Mesere ci wax ju rafet ji ndax moom dama koy wax sax ñu dama moom yow bi lay la di wàcce ngay liggéey sëñ Tuubaa da ngay cëru borom daaru dëgg la foo toog bu ñu nee Gana Messere maxtaar rek xool yëpp dem sëñ Moodu Maxtaar wallaay ndax sëñ Moodu Maxtaar ndax jàmbaari ngi joon joo xam ne kenn musta yëb yoonu murit kenn musta yëb daaru muxti ndax Cheikh Moodu Maxtaar yàlla na ko yàlla dolli ay amiin amiin euh, sant bu baax it sëñ Ousmane sama rak imam waaw ah, sëñ Ousmane imam waaw ak sëñ Ablaye Diop Bichri moom damay day man may moom ak sëñ Cheikh Gueye ak euh, sëñ bu Touré sëñ Saliou ndeysaan Euh, ñoo ngi leen di sant bu baax. sëñ Bamba Mbuub sëñ Bamba mi nga xam ne moom international la. fépp lay dem ndax ñun moom. lii suñu warteef mooy di mm-hmm. wane borom daaru mm-hmm. ndegam dañoo nekkoon di wane borom daaru bu ñëpp fekk suñu ci wane borom daaru bi dañ ciy sant yàlla jërëjëf ndax lii lépp moom ñoo ko tàmbali ñoo leen sant am bàyyi la nga dugal euh, sëñ Moustapha Sylla ndax waxtu wi dab nañu soxna Bintu ca Amérique bi soxna Serigne Ahmam sëñ Moustapha May mu ngi topp jotaay bi kon daal sëñ Bass Antañang Euh, ku gis ni mu def euh, xam ni daal dafa def la yàlla waxoon yonent bi rek fa bima rahmatan min allahi linta lahum walaw kunta faddan alizal qalbi lan faddu min xawlik loolu loolu noonu la doxee ci bi mu yoree xilaaf ak borom daaru moxti gi sëñ Moustapha Sylla takku defar daaru bisimilah xam naa da ñuy ñëwal rek ci liggéey bi ak programme projet yi mhm. ak yéene ji ak yaatal bi xam naa sëñ Abou ngi koy wax fi ne gànnaa ngi waajal am na xisa bu muy bëgg a nettali boo xam ne ni moom du ko fi nettali ne yi muy waajal yëpp loolu lay korkoral hmm. waaye loolu moom doo ko fi nettalee tey <laughs> eh, tubaarkàl la loolu bu ko nettalee rek plateau bi yàqu loolu moom bu ko nettali bàyyi ba yëf yi jeex <laughs> fi ne yooyu lay waajal tekkam gi waxagul waxagul de yàlla xam tekkam gi yëpp maa xam muy waajal sëñ Moustapha <laughs> bismillah min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi nekk ci plateau bi yëpp ngi si jiitale suñu kilifa yi eh, ni ko mbokk yi waxee rek kàddu gi ñu ngi ko jot ci turu takku defar Daaru Muxti takku defar Daaru Muxti nag ni ko ñu jiitu waxe woon sëñ Abdou Samad moom sëñ Modaw Balla moo ko jiite muy kuréel goo xam ne mi ngi juddu ci avril bi ñu génn nga xam ne avril bi ñu jëm am at ma nga juddoo itam ca bitim réew ci ay bokk taalibe yu nekk France di fa jàng ak di fa liggéeyee dëkk Daaru Muxti yu dem ba yëg ne war nañoo wut kuréel boo xam ne daañu ci booloo xool naka la ñuy liggéeyal dëkk bi ci loolu ñu ne nañ ko roy ci Touba ca kanam waaye itam bañ ko xalaatee laat mu ci yëngal dara dañoo ñëw ba ci sëriñ Abbas radiyallahu anhu bi xam ne moo fi nekkaloon borom Daaru Muxti wax ko ko biñ ko ko waxee mu rafet lu ko lool joxe ci ndigal ñaan ci wax itam bañ euh, délégation ba demoon ci moom bañ delloo moo sëñ mooyu nii xamal ko ne ko kuréel gi am naa ci yaakaar ndax ñi ma wax ne ci nekk ñëpp daat koy dénk mook sëñ Abdou Khoudoss mii nañ ko gën a fonk ba sëñ Abdou Khoudoss mii mooy coordinateur ba ca Daarul Muxti euh, bañ fa jógee ñu dem ca sëriñ Bassirou Anta moom it mu daat ci ñaan waxul lu mel noonu yëkkati alal ju bari daat ko ciy def ci jamono jooja noonu nii lañ ko toppee li ko tàmbalee ci kër sëñ Moudaw Balla ba ci kër sëñ Xaalit buntu kër bu ñu nekk ñu dem fa leeral la ko nga daal ciy soññee yëkkati sa def ko ci wane mbégte moo ci am ak yàkkamti koo ko yàkkamti woo eh, bi nga xamee ne sëñ Abbas yàlla dogal na mu wuyu ji boroomam ñu ne ba la ñu cee yëngalaat dara nañu dellu ci sëñ Basiru mi nga xam ne mooy jiite njabootu borom daal moo tax yëpp ba mu joxaat ñu ci ndigal bu ñu waxee ñu teg ko ci suuf ñu ko bu ñu waxee ñu doxal it ñu ba ñu delloo boobu sëñ Mahmoud mi fekke na ko mu rafetluwaat ko lool soññee ci soññee ci projet yi ñu ko wan ba dana leer ci biir am bu mu ci wax ne sax yitte joo xam ne nañ ci daal di taxaw euh, kuréel gi noonu la juddoo bi juddoo ak léegi itam yàggul ndax avril la judd woon amagul sax at ci weer wi ñu jëm la koy am waaye def na fi ay liggéey yu am am solo yoo xam ne ma ma na cee lim rek bi muy judd dafa tombeek mbas mi dugg si ci réew mi xaw a sonal ñu baree bari ba kuréel gi lim njëkk a def mooy lam njëkk dajale yëkkati ko def ko ab rënd ko xool lu mat téeméeri buntu kër ca daarul noot yi daan leen koy séddalee ndax jamono jooju soxla woon nañ ko lool état d'urgence lañ nekkoon ñu dajoon nit ñi kenn mënul dem kenn mënul dikk ndimbal yooyu mi ko amal ci weer wi mu juddoo rek laata muy muy jeex muy avril 2020 la ca topp itam mooy ne nañ jublu ci taaral dëkk borom daarul mawti bi ba wut ay garab yoo xam ne ca pencum borom daaru boo demee gis ko fa lu mat téeméeri garab ak fukk ñu def ko fa wutaat lu ma juróom benn téeméeri garab yoo xam ne dañ koy jox waa dëkk bi ci njàpp daal eaux et forêt ñu jëbbal ko waa dëkk bi di daarul mawti ku wax euh, nawet tam wax si sibru wax ay yow bi yàlla dogalee ñu àgg ci nawet bi kuréel bi yëkkati lim bu am solo tegale tegale juróomi fan yoo xam ne dafa tegale di pompe ko puudar ngir euh, moytu yooyu ak euh, wàññandiku ko bi sëriñ euh, Mouhamadul Mountakha bi ñu ci màggalu Tuubaa gi itam mu joxe ndigal ci ne na mbooleem taalibe yi lijjanti ay masque kuréel gi dajale na lu baree bari ci ay masque yóbbu ko Touba yi mu jox ko njabootu boroom daal ma ci gi ak amaloon ay fan lu man ñett fan yoo xam ne doon séddale masque yooyu ngir jëfe ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha am na ay projet yu am am solo itam ci wàllu daar yi nga xam ne daara yi nekk Daaru Muxti yëpp kuréel gi wut na commission boo xam ne recensé na leen daara ju ci nekk bi ñu àggee dañ ne rek nañ xool lam yittewoo moo xam mbaar la moo xam ndox la moo xam fu dongee jàngale lu mu ci mën doon kuréel gi xool lan tey def loolu yi tàmbali nañ ko ba tàmbalee ko ci daara yi Soxna Kunta moom Cheikh Mamadou Fadil ba nekk ja nekk ca dëkk ba kuréel gi itam mi ngi yëngu bu baax a baax ci ñu dëkk ca dëkk ba te yàlla dogal ñu dëkk fa ñu wax ay sancaan nga xam ne seen loxo ñaare du jot seen ginnaaw dañuy jógee fenn rek ñoo tuxu si du ñu am ndox loolu kuréel gi mi ngi fexe weeru jot mu fexe ba fukki kër lu mu néew néew mu xëccal leen ndox nga xam ne la ci aju lépp moo koy def moom moom moom moom kuréel gi di takku defar daarul mooti euh, bokk na ci projet yi nga xam ne nag euh, yu ñu jëm la projet bu mag boo xam ne sëriñ Abou Mouhamad moom Cheikh Mamadou Fadel mi ngi koy junj léegi muy ab maternité daarul mooti ndax dañuy wax ne dëkk bu toll ne daarul mooti di dëkk bu mag di deuxième capitale mouridisme amul ab euh, maternité mën nañu wax ne hôpital ba maanaam salle d'accouchement rek la am te it fa mu nekk nekk foo xam ne ca biir hôpital ba la nekk ñaare ku fa ñëw toll foofu yi te jigéen bu toll ci waxtu woowu yi dafa laaj sutura bërëb ba demee noo xam ne daanaka sutura sax xaw naa doy waar tax ba kuréel gi bi muy doog a taxaw rek dafa wut ab délégation boo xam ne seen dafa wut délégation boo xam ne sëñ Abdou Khoudous mii moo ko jiite woon ñu dem ci médecin chef ba fa nekk di kolaaj lan mooy tawati dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram ndax aw nit mënoo jug di leen wutali saafara te xamoo seen tawat mu limal ñuy baree bari ba xamal ñu ne bi ci gën a far mooy ab maternité biñ ñëwee kuréel gi ñi ko seq waxtaane ko ñu nekkoon nañ ci xool nuñ ci jubloo ba biñ mujjee ci Cheikh Mamadou Bachir Anta Niang mi ngi ñu xamal ne maternité boobu yi day lu far la dara gënu ko far yaakaar naa ñuy seetaan vidéo yi ñoom sëñ Mamadou gis nañ ko mu ne maternité moom na ngeen ci daal di jublu daal la seen sabar nag kan ngeen ci jublu mu ne ko fi mu ne moom kese mooy suñu yitte maternité boobu yi nag boroom xam-xam yi ci gi ñi nga xam ne ñii ay architecte lañ ñii ay ingénieur lañ ñii génie civil lañ def ñii wàllu bâtiment def jàngat nañ ko xool plan yëpp génn na ñu ngi koy gis ci euh, affiche yi doon génn sànq sax ba wax ne liñ jàpp ne moo koy amal mu ngi toll ci juróom fukki million ba leeral nañ ko Cheikh Mamadou Bachir Antaña juróom fukki millions yi nag kuréel gi ci njabootu borom daaru Moxti gi képp la ko yaakaare ci taalibe bi képp la ko yaakaare ndax borom daaru jàpp naa ne eh, ak njabootam xajul ci projet milliard waxuma la projet bi juróom fukki millions ba tax na ñoo ngi ci woo képp koo xam ne taalibe borom daaru Moxti nga wala képp koo xam ne jëfkatub lu baax wala képp koo xam ne ab murid képp koo xam ne rek lu baax da laa ñor ñoo ngi lay woo ci projet yooyu projet boobu day bi ci gën a fës waaye du projet bi ñu bëgg a def moom kese ci 2021 bi ndax kanamu euh, kër borom daal Muxti gi nga xam ne sëñ Abbas moo ko doon defaraat muy kër bu mujj gi gis nañ ne bërëb ba moom it mu ngi ci projet ko xool di ko gis dafa xaw a doy waar lool kuréel gi ne woon nañ ko xool niñ ko pavé ba mu dëppoo ak jamono euh, def jëmbat fee garab ndax loolu liggéey bu am solo lu koy taaral la te ab dëkk moom lépp lu koy taaral rek ña ko dëkkee ñoo ko ñoo ko war a def loolu yi nag euh, kuréel gi bi mu juddoo rek dafa ndaw ñi dañoo wax ne dëkk bi de lépp lu koy jëmale kanam waruñu cee xaarub sëriñ waruñu cee xaar ndawul buur ndax ñun ñi ko dëkkee kenn ëpp ñu responsabilité ci defar ko kenn ëpp ñu responsabilité ci taxawu dëkk bi loolu maa ngi koy junj sànq ñu jël ci exemple Touba ca kanam nga xam ne moom mooy suñu royukaay te ñun sax dañ leen ko wax ba ci suñu activité yi njëkk def yemal lañ délégation ñu ñëw fa ànd ak ñun lu ñuy def it ñoo ngi ciy déggu ak ñoom ndax olof day wax ne ku la njëkk reer wan law reerin te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man samina sunnatan hasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaama képp ku jëf euh, jëf ju rafet danga am tuyaaba jo ku la am tuyaaba jooji ba keroog bis penc di taxaw euh, bu ko defee itam bokk na ci kuréel gi li nga xam ne mi ngi ko doon amal di ko waajalee màggalug daarul ma moxti gii ñu jublu ndax dañoo wax ne ni jamono bindoo nga xam ne daje yombut ndax mbas mi ñu ne woon nañ fexe ba bu ñu àggee ca màggal ga fépp fu waaye mën a nekk ci àdduna bi da nga yëg ceerno da nga dund ceerno loolu yi itam kuréel gi tàmbali woon lu ëpp weer ci ginnaaw ay borom yoo xam ne waa commission réflexion sëñ Modou Abbas mi ak sëñ Modou Sili nekk ca France ak Baye Cheikh Mbacké mu sëñ Bassirou Anta Niang ak ñi ko seq ñëpp liggéey ci liggéey yu am am solo nga xam ne bi weeru saxbaan yu teroo ba léegi euh, ñi ngi amal ay jataay yu virtuel ci wàllu wàllu wàllu jumtukaayu yu bees yi jataay yoo xam ne daanaka weeru saxabaan ba mu teroo ba léegi ñaari fan yu ne yenn jataay ñu amal ko ba suba yàlla dogal na am na ñu war amal ba fii ba ñu yàgg ca màggal ga te ay borom yi xam lañ koy seqal yoo xam ne nit ñi koy suivre ñu koy bàyyi xel jataay yooyu nag jataay bii ci la bokk nga xam ne kuréel gi ba weeru teroo rek dañu waxoon ne dañ fexee amal jataay bu am solo Touba TV ba jokkoo ko war a seqal yépp ñu borom xam ñu leen sant bu baax a baax ñoom ci seen teewaay ndax bari na ci ñoo xam ne ku ci mel ne seen gànna Touba la jógee tey jii sëñ Ousmane bi moom it dafa jóge woon tuubaa ñëw ndax xam ne jataay bi dañ ko njëkkoon jàpp samedi bi ñu ko jàppee samedi ajuma ci guddi Cheikh Mouhamadoul Moukhtar jóge fii yàlla saa borom dolli ko ngërëm ak leer ñu fomm ko waaye sëñ euh, Ousmane ma ne moom ñëwoon na ñëwoon na sax boobu ci ajuma jëla ñëwoon biñ ne sëñ Moukhtar nelaw na mu delluwaat kon coono yooyu ci jànkonteel lépp ku léegi ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di wax ne sëriñ Tuubaa mi tax ñu koy jëf ak boroom borom daarul moxti yàlla yàlla ñu leen fay ngën ji fay bu baax a baax Euh, di jaajëfal bu baax a baax Serigne Mafal ci turu kuréel gi ndax bi biñ jàppee jataay bi rek dañ ko woon ndax moom la fi Serigne bi teg ñu dañ ko ko yëgal bi ñu ko yëgal mooy mu xamal ne ñu am na jataay bu mel ni bu mu fa waajaloon bi ko woo ñu ne ñu ko def benn ndax lépp benn la boobaat kuréel gi fekk su ko moo fi suñu kilifa ndax moom la Serigne jiite suñu kanam moo tax lépp lu ñuy yëngu it dañ ko ci dañ ko ci jiital biñ ñëwee ànd ak moom jataay bi it comme ni ko bokk yi waxee mu taxaw ko ba jataay bi amee nii mu amee waaye ñuy xam ne rek ne kuréel gi moom ñi ngi ciy woo ñëpp rek di wax ne daanaka du jaral guddal di sant bu baax a baax Cheikh Abdoulaye Diop Bichri ak Serigne Sawa Balla Gueye ñoom it kuréel gi jokkoo woon ak ñoom woowal leen ci ak mbooleem borom xam-xam yëpp sëriñ bi Mbuub ak sëriñ sëriñ Bamba Mbuub ak sëriñ bi sëriñ Touré waaw sëriñ Touré waaw moom de xam xam naa reer a tax <laughs> kàddu gi xumbut reer baree tax kàddu gi xumbut muy wax man <laughs> ñuy ziar ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Euh, ngir Serigne Abo Sall balaa Serigne Mafalla jël kàddu ñu def deuxième tour bi nga xam ni. Mhm. Euh, mooy tëj jotaay bi mhm. euh, kaddu Serigne Mahmoudan. Mhm. daal di jib ñu daal di yëkkati ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaye Serigne aboo Sall. Serigne daam mi nekk ci régie bi. mu préparé li nga xam ni. balay Serigne Mafalla jël kaddu Serigne Abo def intervenant moom daaj Serigne sàll ak Soxna Awa Balla. ñu wax ni tamit euh, njabootu daaru marnaan ga ca daaru ga ca Touba mm-hmm. di njabootuk Serigne Modou Mbacke daaru marnaan ñoom ñëpp ñu ngi topp jotaay bi di Serigne Jili may xalifab Serigne Modou ak soxna maam xari mm-hmm. Serigne Koso ñoom ñëpp ñu ngi feeñal seen yéene ak njabootuk Serigne Cheikhouna Lo moom soxna Bousso Thierno ñoom ñëpp sëñ Sidi moom sëñ Modou Makhtar sëñ Sidi sëñ Modou Makhtar moom itam mi ngi yónnee ab ab ab liggéeyam soxna may moom sëñ Abdourahmane borom daarul Moxti nee na ñi fi nekk ñëpp yàlla nañ am ngërëmal sëñ Touba amiin amiin daa bég lool soxna sëñ maam Thierno Zubeyru moom itam ñu ngi koy eh, ziyaare mu ngi topp jotaay bi ak sëñ a moom sëñ Cheikh Faty Fall sëriñ eh, Modou Kara Mbacké nooré nii Euh, mi nga xam ni moom la sëñ bi dénk xilaafa yi borom yu moxti yi mhm. di jàmbaar di liggéeykat di nit ku baax di ko bëgg borom daaru moxti mhm. waaye di ko sey ci sëñ tubaa mhm. euh, moom itam mi ngi topp jotaay bi waaye suñu wajur alaaji amadou sàmb nee na jotaay bi moom yaakaar naa ni jotaayam la mu ngi bég moom itam ñu ngi bég tamit di am fierté ci suñu mbokk mu baax mi nga xam ni gis nañ jëf ju baax ji mu jëf bi sëriñ abbas bi sëriñ bas antañ ak nekkee xalifa muy doomam mouhamadou nazir yàlla na yàlla dooli ko teraanga ak yiw ndax nit du fekkee ne da ngaa dëkk ci dëkk sa baay dëkk fa sa maam dëkk fa soo tekkee dara dëkk ba la war nga ko faa delloowaat ba xam ni jëf nga fa dara yàlla yàlla guddal soo fan te la euh, di ziare bu baax euh, Serigne Modou Kara Sarsara moom sëñ ko soosuloo moom itam mi ngi topp jotaay bi ak euh, Serigne yi moom sëñ Abbas dadi nag lii mun a ñàkk ndax sëti borom daaru moxti yi seetaan yëpp ñu leen ndax ñëpp ñu ngi ñuy seen seen seen yéene téléphone yi di message waaye sëñ am ñu bàyyi la rek nga mm-hmm. dugal sëriñ euh, Abo Sall suñu sëriñ suñu xarit ñu mm-hmm. yàgg lool mm-hmm. yàgg toppatoo euh, liggéeyu màggal gi di nit ku baax keroog ba mu waxee loolu sëriñ Cheikh Khady sëñ Cheikh Khady dañu ko to dañu ma toogal ma toog mu ni ma li ma lay ganalee mooy maam Cheikh Anta ñaari oto yi mu jox addiyee borom daaru muxti yëpp fa la ma fekk yaakaar naa sëñ Abo yaa ngi toog mu ni ma bu njëkk bi nee na dafa ñëw mu leen jug leen nuyoo nee na ku nuyoo borom daaru ni ko diw la tudd diw la tudd diw la tudd ba muy nee na sëñ Cheikh Khady ni ma man nag dama ko fekke li ma lay wax nee bi ma nuyoo mu ni ko koo koy Cheikh Khady mhm. nee na nee na ku nuyoo te dégg ko mu ni kii kana ca kaw mhm. nee na ba mu daal ni ko diw la mhm. yaakaar naa boo nga ni ko sama xarit la sama wëllëre la loolu nag di di lu am solo dëgg la ndax jotaay yi mel nii ñoom dañoo nangu woon ak kilifteef dañoo nangu woon seen kilifa yàlla dogal borom daaru moxtu bi sëñ Tuubaa demee mooy kilifa ku sëñ morom sali Jóob dëgg la di kilifa ak yoon wi loolu yàlla dogal ci moom ñëpp nangul ko ko kon ñu ngi ñaan borom daaru moxtu yi Euh, euh, roy gi ñu ko sëñ Tuubaa joxoñ loolu yàlla na ko ñëpp roy ndax du ko ñëpp roy rek alaaj ma fal ñëpp jàmm mhm. sëñ Abou Sall bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina mhm. muhammadin wa sallim ñi ngi am mbégte lu rëy ci teew ci jataay bi mhm. euh, tàmbali nag di ziyaare sëriñ Muntaxa Mbakke Bachir ñaan sunu borom may ko kàttan ak gudd fan ak Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ni moo taxaw tey taxawaayu borom daaru di ziyaare tamit kilifa yi ni seetaan yëpp ñi nekk daaru ak feneen sunu kilifa yooyu di nuyu nag sunu mbokk yu nu seqal jataay bi yëpp jaakaar naan bu dee sunu ndijaay yi ak sunu doomu ndijaay yi ak sunu ndijaay ci buñ ci cité sëñ Dan mu mën a yóbbaale ñëpp sunu mbokk taalibe yi buñ ci cité sëñ Ma Fall mu mën a yóbbaale ñëpp may rafetlu nag intervention yi fi am e, ci commencé ko ci li fi Bichri wax ak Gana Messere ak e, Bamba Mbuub Cheikh Bamba Mbuub ak e, bu ture ak Serigne Cheikh bala Balla Gueye yéen li ngeen ak Serigne Ousmane dafa naa li ngeen wax dañ ko waroon di tënk ci ay téere mu nekk euh, feuille de route xale yi ndax jamono lëndëm na toll na foo xam ne nii soxla nañu lool mhm. xale yi ñu am courage fonk xam-xam ca am euh, fu liggéey ca nangoo topp yàlla mhm. kon defe naa li ñu fi wax yëpp loolu rek la ay guide la loo xam ne nii war nañ cee sukkandikoo pour euh, mën a gën a avancer ci sunum réew li ñu bëggoon wane nag tey xam nga waxtaan wi ngeen waxtaan ci maam Thierno waaye dama leen di yéen ñaar ñi nga xam yéenay présentateur yi sëñ Amidou ak sëñ maam Cheikh Anta mi nga xam ne sama comme li mu wax rek sama xarit la yàgg nañu lool may rafetlu nag seeni émission di leen topp bu baax. ci loolu may féliciter aussi président euh, Mbackiou Faye jëwrin ci taxawaayam ci liggéey bi macha allah ginnaaw loolu nag dañoo bëggoon rek euh, génn ay documents archives yoo xam dañ leen ko bëggoon a woon. document archive yooyu nag ay quelques document la rek yoo xam ne dafa jóge ci archive nationale muy dëggal daanaka waxtaan bi ngeen fi xam moom ngeen fi wax ci bu dee ci wàllu xam borom daaru wàllu yu taxawoon ci jàngale ak am xam-xam ko ciy wax bu dee ci wàllu fit wi ngeen waxan ni moom fit wi ñu fi wax ne moom la am bu dee ci wàllu nangu liggéey bi nga xam ne moom la liggéey bu dee ci wàllu taxawaay bu mu taxaw ci wetu Serigne Touba xaw ma ndax kii bi Euh, waaw sëñ Dame mën na ko waajal euh, vidéo bi euh, vidéo bi la Serigne Abo yónnee woon ci archive yi waaw mu noonu. waaw xam ngeen fiche bii ñuy wane nii gis ngeen ci kaw ñu ngi ci bind Ibra Fati gis nga fiche yi moom lañ doon def ci marabu yëpp ku ci nekk dañ lay utal benn fiche def ci sa tur def ci sa sant wax ku la jàngal alxuraan ku la jàngal xam-xam ci ban tarixa nga bokk. lan mooy sa valeur morale maanaam ndax ku am niveau niveau nga lan mooy sa intelligence ndax da nga làkk arab lan lañ mën a xaar ci yow xam nga tubaab bi day seet lan laa mën a xaar ci moom maanaam bu fekkoon tey projet sëñ tubaab bëgg naa ko naxasaal est-ce que mën naa mën na maa servir yooyu yëpp lañ boo xolee nag fiche bi euh, dañ cee wax ne mi ngi juddoo Poroxaan am 43 ans euh, mi ngi nekk euh, Guet xam nga boobu mi ngi nekk Mbacke Kajoor olof la mën naa ko mën na ko yëgal euh, ñu wax ne Serigne Touba mooy sëriñam ñu wax ne ci tarixatul murid wax na ci xaajar mais tarixatul murid la bokk euh, ñu wax ne aussi ci fiche bi ne moom rek mooy doomu Mamor Anta Sali boo xam ne mooy jàngale mm-hmm. loolu ñu wax ci fiche bi nee nañ moom ci doomu Mamor Anta selli moom rek moo ci jàngale euh, wax nañ ci fiche bi tamit ne Ibra Fati est le véritable na d'Amadou Bamba dans le Kayor tous les autres marabouts ne sont que ses dérivés loolu mooy lan mooy euh, maam Thierno Ibrahim moom mooy dëgg bras droit wu Serigne ci biir Kajoor mara yu ci des yëpp ci ginnaawam lañ topp maanaam keneen ku ci wax leneen Serigne Touba moom daal maam Thierno la fi jiital ci ci ci ci biir Kajoor donc loolu fiche la boo xam ne nii dañ ko defoon ci bu yëpp mën na ay mille fiches ci nekk dañuy jël sa jaar-jaar wax luy wax ci yow ca fii am na fu mu ndax ndax moom mën nañu yaakaar dara ci moom tey bu ñu bëggoon dara ci sëñ bi mu ne ñoo am yaakaar dara ci moom ndax moom lépp lu muy def rek ci Serigne Touba lay jël instruction. Mhm. kon kooku ñoo am dara luñ yaakaar ci moom. wax nañ ci xam-xam bi ñu ne am na xam-xam jàng na arab mën na <laughs> xam na lu baax diine fonk na diineem bu fekkee ni mën na wone beneen beneen document. quelques documents la ñuy wone rek parce que document yi day dëggal rek li ngeen doon wax ci administration coloniale ñoo ko bind du olof moo ko bind ak tubaab moo ko bind <laughs> ci renseignement yi nu am kon lii day dëggal parce que bu ñuy wax ci histoire dañoo war a am ci lu ñuy sukkandikoo ndax wax nii rek après ñu ne ndax dëgg la ndax ku nekk mën nga am lu la neex waaw moo ko seere léegi bu fekkee mën naa doxal beneen document am na beneen document buñ ci génn bu ñu waxoon mu mu wone ko mooy euh, euh, am na document boo xam ne nii euh, bi Serigne Touba di bëgg a dem Mauritanie la ko bind mhm. jëmale ko Euh, bii sax moom euh, mooy ci arrestation bi la bii mooy rapport d'arrestation bi bu ko mënee gën a leeral parce que bii day wax euh, maanaam dafay décrire arrestation bi Leclerc ki ñuy wax Leclerc boo demee ci livre Omar Ba bi da nga ko gis Leclerc mooy def description bi fii mm-hmm. mu ne Maam Thierno ñëw na fekk ko jëwal loolu la wax Leclerc mm-hmm. nee na fekk na ko jëwal fekk mu campé mm-hmm. ànd ak ay soldats yu bari nee na bi mu campé ak ay soldaar am na yeneen renfort yu jógee waalo yenn yi jógee yeneen dëkk ñëw parce que boobu dañ doon pare pour attaquer Serigne Touba pour dem jëli ko nee na nag bi maam Thierno ñëwee moom mooy wax loolu le frère du marabout se présenta devant moi nee na bi mu ñëwee dama ko xoqtal ne ko euh, maa ngi lay xamal ne sa mag ji bu ñëwul fii dinaa dem jëli ko ci lu ko neex ak ci lu ko naqari maanaam de frais de gré ou de force loolu tubaab bi tubaab bi may wax toujours de nee bi ma waxee bi ma ko waxee loolu dafa ni euh, peu effrayé accueille-t-il mes menaces avec un demi-sourire maanaam loolu bu nga ko doon tekki da nga naan nee na lim lim li ma ko wax dafa mel ni daf koo reeloo dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa ree mais menace maanaam samay xoqatal mais menace avec un demi sourir waaw kon loolu la kon loolu de dëggal di ngeen doon wax waaw waaw loolu lépp pour dëggal rek. pour dëggal waaw parce que xam naa ni moom la mu la mu ko wax sax du ko wax lépp parce que tubaab bu waxee loolu kon xëy na lañ ko wax moo gën a moo gën a am doole loolu. kon loolu tamit day dëggal euh, li ngeen wax. Mhm. nee na ci loolu nag nee na bi ba ci boori ngoon nee na bi sëriñ maam Thierno gisee force bu bari di déployé wu mu jël engagement ne ko man sama mag yi dana ñëw suba dana ko fekk maanaam suba ci fajar dana ko fekk fii. nee na ci loolu laa décidé bañ a attaqué bañ a yóbbu samay force pour jëli ko ma campé xaar ko na ko demal boole kook ñaari interprète pour ñu dem xam nga kook sax xis yooyu yëpp indi nañ ko interprète yi bi ñu demee bëkk bëkkoo réeral mu aw ci yoonu biddiw yi la am dem ba am ba gis sëriñ bi nee na bi mu ko waxee loolu kon ma nee na ma d'accord toog xaar ko nee na ci suba ga la sëriñ bi ñëw kon loolu tamit day wone aussi responsabilité parce que xam nga toujours bu ñuy wax ci histoire dañuy wax rek naa maam Thierno moo demoon Ndar mais ay détails yoo xam ne nii bu ñuy xool archive tamit dinañu permettre ñu gën a jàng dëgg dëgg naka la demee mhm. ndax archi ndax histoire boo koy def da ngay am ay source yu wér source yi nag mën na nekk source orale mën na nekk source écrite mais nag source écrite moo gën a wër waaw ndax euh, Serigne Moussa Ka bind na ñeneen bind nañu tubaab yi bind mais na li ko borom daaru wax loolu moo tax moom demul jëli sëriñ bi ci ak ay force am nee na foofu la ko xaar nee na bi sëriñ bi ñëwee ma xàq ko nag dama lay arrêté yóbbu ko donc loolu mooy document boobu muy wane léegi xam naa ni jataay bi dafay kii du moom mën a continuer lépp dañ ci doon xam naa xam naa sëñ Abo am na ñu naan ndax yaa ngi koy waaj bind ci ginnaaw yàlla dogal na nga bokk ci borom daarul moxti waaw doon expert comptable di borom xam-xam di ñu ko baax mhm. dañ ko war a tënk def ko ci nasaraan incha allah euh, ñëpp mën koo barkeeloo ndax tubaab bi tamit du jullit incha allah du seeree dara rek dëgg allah loolu loolu nar nañ ko xam nga document yi aussi am na ci bari yoo xam ne nii mi ngi ci archive nationale fii am na yoo xam ne mi ngi ci archive nationale française donc yooyu yëpp ñu ngi koy dajale euh, damay fàttaliku mës naa ko wax loolu boobu sax gën samay at gën naa ne ma wax ko sëñ Abdou Khader ma ne ko damaa bëggoon nag ci archive bi ma bind ci ci ci Serigne mu ne ma na na na ami teggin na ami teggin xam naa boobu dafa xam ne xam nga am na ci document yoo xam ne doo ko mën a wax ndax tubaab bi <laughs> ay waxam dafa xawul teggine léeg-léeg waaye nag lii lépp dañ ci bëggoon a barkeelu rek muy preuve di dalil muy preuve di dalil am na yeneen document yeneen yu dul jeex xëy na beneen jotaay bu gën a yaatu ndax wax dëgg yàlla jotaay bi yàgg na euh, ca neex na ca jële nañ ci jële xam-xam bu am solo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf sëñ am xam naa dama lay bàyyee kàddu gi jo waaw alaaji mm-hmm. moom mooy wax ci euh, wax dëgg yàlla dañ koy sant nag waaw ku baax la ndax diggante daarul mooti ñu ko sëñ aboo waxee heure bu ñu fa demee bu ñu fa fekkul sëñ aboo ba ci gàmm gi jàmbaar la def direct yëpp mooy bàyyi ay yitteem ñëw ànd ak ñun te it ko benn étiquette rek la muy borom daaru ñor ko lool wax dëgg yàlla ñu di ko sant ndax fii mu toog nii mi ngi jottali ay yu ñu waroon a fàtte yoo xam ne nii yu am solo ci liggéey bi la bokk léegi léegi la ma sëñ Abdou Khoudous wax ni ma fàtte ñu ngi fàttaliku sëñ Abbas mhm. moom lañ jox mu mu mu ci wax te loolu am na solo dëgg la sëñ Gànna moom kenn du fàttaliku sëñ Modou Mokhtar di ko tëb dëgg la ndax Gànna mesere Mokhtar leer na Gànna na ma may xise bi rek ñu ngi wax tamit ni Alaaji Maam Cerno yebal na fi sëñ Abdourahmane Mbacké mhm. ak Youssou Dieng ak Waynda Dieng mhm. ak ak Waynde Diop. Ah, sëñ Daaru Mar yebal na ñooñu mi ngi bég alaaji ma faal waaw mhm. ah, woote woote na ah, message na wax na ni mi ngi topp jotaay bi mhm. mi ngi bëgg lool sëñ mhm. Gana nee na foofu rek la bëgg na lool ci yow la ma wax kontaan na lool ci yow sëñ Daaru Mar ma nga toog fa mu toog di seetaan sëñ Cheikhu naam sëñ Abdou Khoudous Mbacke Kajoor moom sëñ Amar Fall Mbacke moom tam mi ngi bëgg kon sëñ am ñu déglu ki sëñ Bass Antaña ak ni taalibe yi nekk Ndakaaru tey wuyoo kër ci kër borom daarul moxti yëpp mhm. yaa leen jiite mhm. yaa fii sama jëmm fii ci mhm. ndakaaru baayam sëriñ Gora la borom daarul moxti daje woon ak boroom Touba ca Louga muy sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Modaw Ball dëgg la loolu nag réew mi doo koy wër foofu rek la am dëgg la kon yaakaar naa ni nekk googa sa waajur nekk ko woon borom dégg naa mos nay ganale sëriñ Modaw Ball wut ak ndawal def ci lu nekk far suukar ko ñu ne ñu ne ko lu tax mu ne dafa dégg suukar dafa neex te lu neex lu nekk dama ko bëgg defal sëñ Moodu dëgg la kooku nag ak muritam yéeme na la kon nag yaakaar naa ne loo noonu mu meloon rek mhm. looloo tax ñu fayee leen ko dëgg la ndax ma faal loo teg ci liggéey borom daaru tegoo na ko dégg la loo ko yen yenu na ko mhm. loo ko ci wax bëgg na ko te da koy jëfe dëgg la kon ñu déglu sëriñ Mafal mi nekkal xanaa balaa balaa balaa moo jël rek maam Cheikh ñu santaat kilifa yi ci jataay bi ndeysaan muy sëñ Mahmoudan Mbacke moom sëñ Bass Anta mhm. ñu di leen jéggulu ci yàggaayu jataay bi di ziare Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Balla moom ñu ngi koy ziare bu baax ak Serigne Jili mbakke moom sëriñ Modou Awa Balla mhm. ak Serigne Abdoul Khoudous Mbacke moom Serigne Abbas ak Serigne Modou Awa Balla Mbacke moom Serigne Abbas mhm. ndax moom jàpp naa ne même bi ma nekkee ci tukki bi sax chaque jour ñu ngi jokkoo ci plateau bi ak jataay bi ni mu war a demee sëñ eh, Fallou Mbacke sëñ Abo Mbacke moom Serigne Fallou sa Dieye ñu di ko ziaraat bu baax Euh, di nuyuwaat baax sëriñ Ousmane Mbakke moom sëriñ baas di nuyu baax sëriñ Abo Mbakke euh, ak euh, moom sëriñ Basiiru Mbakke Antañang di nuyu sëñ sëñ Silla Baye Fall sunu waajur wale sëñ Silla ku baax Baye Cheikh Balla Samb mi ngi toog sëñ Abdou Wade maa ngi koy seen léegi ak sëñ Mor Gueye su ko defee dañuy bàyyee sëñ ma Fall xam nga ki dem dafa am benn ku ñuy wax sëñ Omar Bamba Diop ku bëgg maam Cerno la keroog bi sañ Basiiru Antañang bokkoon na sax ci bi waaye dañ ko yabal télévision Lamp bi sëñ bas joxee sëñ ma mi liggéey bi dafa maa woone ma ndakaaru moom dootuma ci ànd ak yenn ma ne ko tax mu ne ma ndax am naa jëwriñ fii lu ma lu ngeen ma soxlaate jaar leen ko ci sama jëwriñ doo a dem ma ne ko xam nga li neex ci sa jëwriñ mooy liggéey bii ko sëñ bi dénk Touba TV moom dana ko ànd ak yéen ah, ndax sëñ aboo dafee ñëw miraaran nga ñëw fi taxawaat xam nga wax lu baax lu am solo la dëgg la te nit bu jëfee dëgg jàmbaar waxulu na naasi xusna solo te ku nekk dafa am étiquette boo takk dëgg la dëgg la yow étiquette bi nga takk ci liggéeyal borom daaru di jël sa alal di jël sa ñaq di sonn ci nit ñi bis bi muy defal waajuram fële ca Louga mhm. di ko defal sëñ Modou Balla mhm. ku ñëw sax moo lay gunge ba ci biti mhm. bi fi général Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di ñëw keroog noo ànd biñ génnee dugg ci oto bi damaa wax ne sëñ Mafal de mi ngi jàngale tooke ji nga xam ne ni tubaab bi def na ko ci kum dénk barke mi ngi wane ne tooke jooju sëñ tubaab rocc na ko ci ñoñam ndax mel ni nga mel ba pare def tànku neen di gunge taalibe woyof loolu ak baax la kon bala ngaa jël kàddu dañuy seede loolu ndax it duñ ko denc ba nga ñibbi ñu di la ko wax ci ruq yi dañ koy wax ci télévision bi ñëpp dégg suñ ko tegee ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla am na alalam yóbbu ko ci benn télévision bu dul télévision yoonu murit wallaay wax nga dëgg ndax mënuñoo nekk ay taalibe nekk ay bailleur bokk ci réew mi di ci impliqué te sa alal munta demaat ci biir taalibe yi ndax tay fi tey nii nga def sañ Gana Messere fekk naa ko fa ay yoon ci bis boobu noonu nga def sañ Abdoulaye Diop Bichiri noonu nga def jànkati xasaay noonu nga def ñi yëngu ci télé wala bitiku jëlaat sa alal yóbboo ko ci beneen télévision bu dul tubaa TV Lamp Fall ak yu ni mel te loolu da nga def ngir sëñ tubaa ak borom Daaru Muxti loolu nag noo ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di la ci ñaanal tawféex ñaan yàlla defal la ci kàttan buntu télévision bi itam Baye Cheikh Balla mais wax na ma ko ci suba mooy Touba TV moom ubbil na la ay buntam ci lépp loo bëgg a liggéey te nga bëgg ko defal borom daaru suñ sunu euh, fas yéene ànd koog yow ba mu jeex. incha allah takk li may li may xam ne plateau sëñ Mafal tey lay am. ci ci ci caméraman yi laa koy ñu ngi yóbbante su ma gisee aatumaan rek naa xam ne sëñ Mafal. ak technicien yi ndax du tardé plateau. waaye sëñ Jili <laughs> caméraman yi ak technicien yëpp dañoo yàkkamti Mafal. wallaay ndeysaan. <laughs> nee naa kër gu nekk war naa moom Mafal <laughs> baax na lool ci kër. bisimilah sëñ Mafal. auzubillahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke sëñ Modaw Bala mbir mi dañuy sant yàlla. ñun ñëpp nañ doon sant yàlla. incha allah Cerno bi ñun ñëpp dañ cee bëgg. kuy murit rek war ngaa bëgg ci Cerno li mu am yombul de. neexul ci dég-dég ñeneen ñi mais ku iñaanul xam ni Cerno dum ku dul sëñ Tuubaa Cerno rek. yàlla ku nekk li la yàlla mérité ak jox la ko nga nangu ko boo ko nangoo da noppal sa bopp kenn man la li mel sëñ Tuubaa ko defal waaye sëñ ba euh, sëñ yàlla yàlla lo yàlla ko yàlla yërëm xam nga lu ma doon wax nee na sëñ ku nekk yónni na ko ci ceeb muy rakk taalibe ku mën a doon yónni na ko ci Cerno ca mosul mosula yónni Cerno ci kenn kenn mun la wax misaal ba ma Cerno ñëwee sëñ Tuubaa yëmbal ma ci moom kenn du wax ca Cerno itam di ko sëñ Tuubaa wax suñu yoon wi waxu kereen ku dul Cerno suñu yoon bii maam bi muy def yoon yi moo Cerno suñu yoon wi Cerno rek la ko wax waa à l'âge de 30 ku fi am sa doom 30 léegi ba responsabilité nga mën a am xool leen rek ku nekk am na doom yoo xam ne am na cinquante ans wala soixante ans yéen leen trente ans amuloo benn responsabilité booy mën a jël Thierno à trente ans sëñ du jaay am nay rak am nay mag di dem boole lépp laa wax lépp amul lu mu xajale xamoon jël joxe lii jël lii joxe lii répartir mais lépp dara génnul Thierno ca contexte boobu lu metti contexte bi ni meloon boo tubaab bi bund xatal la ba génnee la ak tubaab pexem yaakaar na ni sëñ bi du delsi war naa tas li fi nekk kon mais dafa fàttali sëñ Tuubaa defar ba pare na sëñ Tuubaa ko defar def ci moom lu mu nekk mu amul njàmbaar ak def lépp la ko sëñ su sëñ Tuubaa ca boole nag ak ngoram ak moo tax mu mën ba sëñ Tuubaa delsi mu delsu kenn du ceerno moo tax ñun taalibi ceerno jot xam ceerno jot na bu ko yem ci wax rek nen ko booleeg jëf nag dafa jot de sëñ dafa waxoon ni lu ma am dana la sikk ceerno lu maanaam lu ce sëñ am rek ceerno waaw man de gëm naa ni kitaabu naa wal na wallahi du ma ci xel ñaar yéen mbàkke mbàkke yi laa wax ne yéen sëti Cerno yii leen xam Cerno jot na jëf moo def jëf ji nañ ko maa ngi gërëm sëñ Bass mhm. Anta dama ko ni li dase li li tase si yow yombul mhm. nga nekk doomu borom daaru mhm. nekk éliman daaru am xam-xam ñett yooyu kum tombe si yow bëriwul si borom daaru doom borom daaru tey nga ne xalifa borom daaru nekk élimaan daaru yombul yàlla nañ ko yàlla fayal amiin fa ah lii mu joteel pour yaatal woo borom daaru borom daaru man nag dama koy sant mais nag maa ngi sant suma sëñ bu baax sëñ bu daw waxam du dellu gannaaw bi ñëwee seet si jóge mu jóge Louga sëñ Abdoulaye yóbbu ko mu ñëw del si ñëw wax jam demoon toog ba mu wax ba pare daanu Touba la wax Touba suma mag mu ne Touba jógal tax seet yëkkanti naa leen ca kenn du leen daan yëkkati boobu moo sar kenn du ci man dara wax sëñ bu daaw bal kenn mënul ko témoin moo tax jigéen bii muy def lu ma sant dama ko bëgg a bokkal waa kër borom yépp sëñ ñoo jëfe <coughs> xel ni li suñu raw bal ba sëñ xaj ku ceernu jóg fas naa yéene dem si sa kilifa mu jox ñu représentant fii ñu waxtaan ak ñu sama ñu mën a daje fii jéem a nag def benn say billaahi wallaahi kitaabu naa daara mu xajul ci dara mm-hmm. li sëñ Tuubaa wax ni gannaaw man ceerno taalibi daar musi xajul ci dara dama bëgg nag ñu gëm yàlla gëm suñ bopp lii may wax représentant gi nekkul représentant que sëñ mu daw bal de kenn wóolu sëñ mu daw bal la gëm mais li nu sas représentant daaru musti lanu sëñ bas ante ñang moo jox baatam ca moo fi borom daaru képp ku fi nag am taalib bépp daaru musi war naa gëm ni defar man de li ma leer mooy bis bu ngeen ma déggee ci leneen loo xam ne ànd boole ku nekk na jël sa téléphone ma gëm mooy yëkkati dërëm daaru ñu xamaat daaru defal daaru ba mu yàkkat fii laa koy seddeel nit bu xamul sa soxla rek nawloo. sëñ ma faam mën nga téye ci bopp micro bi wax dafa am solo. dimanche gi nii sëñ sëñ sëñ Mouhamadane du ma fay ma fen mhm. man lu may wax damay am seede. Mhm. nii laa toogee sëñ Bass Anta Niang wax ko. ma ne ko réew mi la nekk. taalibe yi mën na la lu nekk yaay borom daaru tey dootoo bas ma fi nekkoon. <laughs> bàyyi sa bopp ci ci taalibe yi. loo soxla wax ñu ñu jéem a seet. bul soxlaal kenn dara. quatre-vingt-huit mag moo ko am xam nga loo def lu la yitteeloo liggéey daaru ñu xam ni daaroo tax nga jox jox la seen bopp lii di kenn dëmbatul te nan gëm yàlla lunu yàlla defal muy sëñ Tuubaa bi li ay desee lutul dara xam nga nit fayda kenn du ko wutal nit fulla kenn du ko wutal nit daaru am nañ loo xam ni kenn amul mais sin problème doonoo fonkul suñu bopp nen gëm suñu bopp nag gëm li fi nekk dara amu euh, maa ngi sant encore waa Touba TV jàppale gi ñu jàpp en l'occurrence mbakk yu maa ngi koy li may yónnee ngërëm maa ngi koy gën a sant mhm. ca nekk ci gannaawam aussi moo fi jëwliñu sëñ Tuubaa may jëwliñu am yaakaar na Cerno Tuubaa Cerno euh, sëñ Tuubaa dama ni woon su ma ñëwee lu may def dinaa ko wax lu ñuy waxtaan itam dana ca bokk parce que Cerno mi ci biir sëñ Tuubaa mhm. kenn mun ñëw see génnee. dëgg la dama bëgg moo bañ nekk ay rivalité bi fii de amu fi. yoonu murit benn rekk la benn dénominateur commun la muy sëñ Touba kenn mënul dara kenn xamul dara lu sëñ Touba ku fi defarlu yaakaar nga ne da dël sa dën da nax sa bopp te gëm leen ni li ngeen am sëñ Touba leen ko moom may damay wax ni yéen da ngeen sant na nekk Mbàkke xewar Mbàkke ndimbum ku manti doon bu doon bu not sëñ Touba yéen nga sant Mbàkke rek am nga cinquante pour cent ngir sëñ Touba dëgg la ku sant Mbàkke nu nuyu la wormal la boo jëfee nag ñu xam walla boo waxee ñu xam bu bu yokkoo ci yow la bu wàññi ko ci yow la mais sëñ Touba wàcc na yéen de ku sant Mbàkke rek sëñ Touba wàcc naa yow nan gëm yàlla nag delloo suñu bopp yàlla damay ñaan yàlla daal ci barke Xaadimu Rasuul ci barke sëñ sëñ Touba min am jaare la ko ñun nag càllal la sëñ Touba lu am sëñ Touba sëñ Modou Awa Balla Awa Balla ku mu jur kenn du moom. <laughs> sëñ Ma Fall. waaw defaru sëñ defaru sëñ Touba la. nan gërëm jënga tu Daaru Musi <laughs> dafa neexul ci wax mais ku am dara man dara ci Daaru Musi tey jii. aw ball ma moo ubbi yoon wi de ah déet ñi fekkee ngi nit sëñ Cheikh wala amul nemul nëbbu xam nga nit ki di bu nee ceeb na la lii la taamu nu muy mel hmm. leneen sëñ Tuubaa ceeb na la teg loxo taawam nu muy mel sëñ mu daw bal ñaar am na ci moom sëñ Tuubaa dafa sotti ko ci moom ceeb na jox ko li mu yoroon amul kenn ku am ah neexul di dafa naqari nag man taalibe sëñ mu daaw man may wax loolu mais li may wax dëgg la de. maa lay ñot din maa lay jeñal man wutuma lu neex kenn gëm naa li may defar def na ko pare barke sëñ Tuubaa. maa lay jeñal maa lay ñot din. du ma du ma jey kenn. lii ma lay wax gëm naa li ma gëm. ku may waxanteel itam dama ni la sans wërsëg sëñ fu sëñ mu daaw bal lu ma la dimbale lu ma la jox. ci barke sëñ mu daaw bal. alors ah, dëgg yittuma kenn xam nga lan la wutuma lu may njàmbaas dama mat le sëkk. sëñ mu daaw bal doy na sëkk léegi nag nan jàppale góor yàlla gi muy sëñ basant ñan fi mu teg tànk moom rekk la ñëwul yàq ci dara dafa fekk li magam yu baax yi defoon xam nga li yàq yu bëri nit dafay commencé dara bàyyi la sa mag defoon wala sa nga bëgg a sos xam nga continuité dafa am yoon li fi amoon solo nga xam li lii defe na nan yàlla dimbale nan yàlla dolli sutura <laughs> ah maa ngi gërëm ñëpp parce que bu ma limee maa ngi jiital sëñ Mouhamadan mi kilifa jotaay gi di waa kër borom daal bi fi nekk yëpp ñi ñëw parce que kat neexu yombul woote ñu wuyu la waa kër taxaw borom daaru yéen a ngi ci yoon wu baax sama xel dafa dal bi ko joxee sëñ samat sëñ samat kun wekk la ak kun wóolu la ñaar yooyu def nañ ko kun wekk ak kun wóolu ñaar yooyu boole na sëñ samat boole na ko moo tax suñu xel dafa dal ci loolu mhm. bi mu leen jiitee wóor na ma ni fi ngeen bëgg a dem da ngeen fa àgg parce que lu tegul ci loxoom dana àgg fu mu war a àgg ah, maa ngi jëwriñ sëñ Samb. Cheikh Balla Samb. Cheikh Balla maa ngi lay sant bu baax parce que cofeel gi am chaque fois bu mu ñëwee ñu laajte boo laajtee lii la fii suma kër la. wallaahi wallaahi dama ko approprier parce que dama bëgg sëñ Touba. dëgg la dëgg la dëgg la te li ngeen liggéeyal sëñ Touba rek leen la moo tax ma lay dama koy am mbàkk wi de xam nga lan la. Mm-hmm. dañ koo jox sas rek. Mm-hmm. bu mu defee ne. Mm-hmm. kenn moomul nit ñi de tele bii dafa jaar ci loxoom rek day def waru garam day def liggéeyam ala kulli alin day bàyyi keneen jël na rafetal diggéey bi lan ko jox tu fële itam def na ci lool ba yàlla dimbali ko commencé jumaa ba ak ba ba ba ba jullee ko yombul ndimbali sëñ bi rek la am. dëgg la. te nit ku nekk na am humilité gëm ni kenn mënul kenn. ndimbal yàlla rek la. dëgg la ndimbal nag mi ngi commencé nga xam immunité ci ñi nga yilif bàyyi leen xel ni ay doomu aadama rek la ñu gënoo leen ci benn boor wërsëg seexluwul de fu nekk lay dal bu ñëwee fekk la ak baadool da koy yokk lu mu la fekkal da koy yokk. waa nga dëgg de. <laughs> nañu fekk ñu moo tax nan dal suñu xel delloo suñu. maa ngi jégalu ci wax jërëjëf jërëjëf am na solo bu dee njuumte itam xëy na sum xel mais nag am déedéet maa ngi jéem parce que yéen yi maa ngi leen di amal njukkal jërëjëf jërëjëf parce que bi ma leen solicité wax leen ni lii lañ ko bëggee da ngeen ni li ngeen ko bëggee leen koy defee malgré que ñi taxawu daaru contacté ne la ñu pour samedi mhm. bi ma sëñ Modou wooyee dama ko ni dinaa leen woowaat ci laa woy gànn bamba mi amoon gànt ma wow ñoom sëñ Touré mii kii moom ma ko waxal mën ne ku ñëw bis bi borom borom daaru la ku fi ñëw bu yaatal parce que ñi mënoon a ñëw xajul ci bis bi maa ngi dëgg de barke sëñ Manaaw Balla ji nga bis bii laa wax ñi bëggoon a wax liñ fi bëgg a wax yëpp xaju fi xaju fi de maa ngi dëgg mais borom daal la toll noonu ah dëgg la mais nag qualité qualité nit ñi wax doy na ku ci wax cinq minutes rek doy na Gana Messere encore merci parce que li nga wax ku amul fit du ko wax xam nga danga maa wax ñuy waxtaan ci lu bari ma xam sa bëgg daaru ak fi nga toll dama lay gën a encourager ci li ngay def yéen ñëpp dama leen di encouragé parce que yéen soldats yi sëñ Tuubaa ngeen. ndeysaan. yàlla na yàlla fayal boppam. amiin jërëjëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf parce que cër bi ngeen jox nit ki man de duma dara lu dul taalibe fas yéene itam sax ci taalibe bay ak ci taalibe lenn ñoruma xam nga li ma gën a neex ma faal sëñ mu daaw balla tey na sëkk yàlla na yàlla doon sutura jërëjëf jërëjëf sëñ am alaaji ñu ngi wax def nañ ñeenti waxtu ak lu topp waaye borom daarul moxti xajul ci bis xajul ci fan ñeenti waxtu ak lu topp xalaa sëñ am sëñ Moustapha Guèye mi waroon a fàttaliku sëñ Abbas dañ koy jox mu fàttaliku rek sëñ Abbas lu tolloog cinq minutes su ko noppee euh, ñiy tàggatoo ñu jox kàddu gi sëñ Bichri mu tàggatoo sëñ Gànna fàttaliku suñu sëriñ bu baax ba ñu mën a tàggatoo ñu jox kàddu gi nag sëñ mahmudan mu tëj jotaay bi ñaan ndax waxtu wi dab nañu waaw yaakaar naa ni sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Jibril Ndaw nee na nijaayam sëñ Lamine wala jarbaatam sëñ Lamine moom alaaji maam Cerno mi ngi topp jotaay bi xam naa ne nee na ñeenti waxtu ak lu topp def nañ ko waaye alaaji Mbàkke yu nee na ah, feeg doyuluñ waaye nag xam nga xayrul umuri awsatuha wa afdalul umuri awsatuha <laughs> kon ñu jox mbir moo gis diggu doomu rek a ci baax sëñ jiilim sëñ Modou Balla sëñ ma Fall day day day wax dama xam nga moom day sama sëriñ di sama xarit di sama lépp waaye xam naa ni am na am na fu may tooñe foo xam ni léegi sëñ Cheikh incha allah waaw waaw sëñ Modou Kara Sylla diiwaan mu ni mu ni sëñ Modou Kara la diiwaan moom sëriñ si la diiwaan moom seex ma paate boole ndaak mi ngi indi ab siyaaram ak mbooleem Cheikh yi borom Daaru Muxti yëpp dëgg la ndax tey jii dooy lim seex yi borom daay doo fi doo doo fi jóge dëgg la ak mboolem bunti kër yi seex yëpp dëgg la sëñ seex xam naa sëñ jibril moom du daggagun jotaay bi ndax sëñ jibril dem añ bam añ barki dem daaru ma naan du ko fay euh, kal xam naa ne jotaay bi du ci mën waaye lu mën a xew rek bàyyi nañu sëñ jibril na yàgg gën a añ de bokk ci réalisation bi du ko feejal euh, sëñ seex anta ñu gërëm bu baax imaam Cheikh Balla bi ah, euh, daf ñu magal nekk ci télévision bi di imaam ci masalik di boroom xam-xam ba pare di yokk ab sac ci télévision bi. Ah, ku baax la ba pare di ñu nemmeeku boole ñu ci ak njabootam. bi yàlla dogalee ñu ma ma tawat si Ablaye. Euh, keroog bi mu ko yëgee la wax Pape Cheikh ne ko sama salaire ne leen ko am ndax damaa yëg xam ne dafa tawat salaire jot gisu ko sax. ba doyu ko mu ah, taal otoom wallaahi landim taal otoom ñëw ba sama kër toog ñun ñaar képp ñuy waxtaan mënuma ku tawal dañ des koy wéttali di def guddi gu jot bu wàccee daf may woo. yaa ngi sa kër ma ne ko mu ñëw gaare otoom ñëw waxtaan ak man te ku ne xam na ni loolu kum ko defal fonk na la ndax moom ku ne xam na ne am na fu mu nekk démb rek bi ma demee kër sëñ Bachirou sëñ bu songi naa lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér ñu ngi lay ñaanal nga yeggale li ma gën a neex mooy bi sëñ Gànna waxee sëñ Ablaay wax sañ Saari bu wax dafa am mbégte fi mu toog da ngay xam ne reflet la ak sëñ Bàmba te loolu lépp euh, ak baax la te ku ne xam ne li nga liggéey ci xam-xam kon jërëjëf Guèye Euh, sëñ Moustapha Guèye ñu bàyyi la nga yëkkati jàmbaar jàmbaar jàmbaar bisimilah sëñ Moussa jërëjëf euh, sëriñ Amidou jërëjëf sëriñ euh, Cheikh Anta Samb noo ngi jéggalu ci kàddu yi ndax mel na ni waxtu wi xaw naa guddi waaye ndigal li ñu ci am rek moo tax ñu ciy jéem a feeñal sunu yéene noo ngi yëkkati sunu kàddu yi nuyoo di ko teg ci loxob sëriñ Mahmoudan ibnu sëriñ Bassirou Anta ñan xalifa borom daarul Muxti di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool amaan ko wér bu ñu tegee nu yóbbi ci loxoom rek dana nu yóbbaaleel njabootu Serigne Touba ak njabootu borom daaru Muxti gi fi teew yëpp nu yóbbu bokk taalibe yëpp ñu teg ko ci loxo jëwrin alhaji Mafal Fall moom Serigne Mahamadou Awa Balla dañuy wax ni wala fi dañuy wax ni benn jant boo ci jommee ñaari yoon mm. Mm, mm. njuuma la nga njëkk a dajal matul njuuma nde bu ko matoon bu la jommalee dootalaat la leen jommate la <laughs> sëñ sëñ ma faal jëwrin looloo ko dal ci sëñ Modaw Balla moom gisul ku dul sëñ Modaw Balla ndeysaan te sëñ Modaw Balla mooy borom daarul moxti te borom daaru muxti du làmbatu moom sëriñ Bassirou Anta Niang moo tax mu waat lépp teg ci loxoom noo ngi ñaan suñu borom defal ko ci ndam mm-hmm. lu kawe zahiran wa batinan mm-hmm. di yëkkatee kàddu ci jëmm joo xam ni yaakaar naa sëñ Amidou réew mii ñu nekk mm. koo fi joxoon kàddu bu fekkee mi ngi bàyyi xel yoon wi di bàyyi xel jëflante bu rafet dina mën a wax as ci Seydina Abbas doon doomi borom daarul moxti waaye li muy doon doon doomi borom daarul moxti moom it bi mu ñëwee dafa jëf jëfi boppam joo xam ni bu nu tudd woon boroom daarul moxti itam mën nañoo tudd jëfam jooju te Serigne Touba li mu dig borom daarul moxti ci lépp lu xew ci jëmmi boppam ji wala dëkkam bee di Touba. dana am ci borom daarul muxti wala dana am ca daarul muxti da cee am loolu dafa nangoo ci Serigne Abbas ndax bi sëriñ bi jógee ci tukki bi 1902 bi mu yabalee borom daarul muxti ca mbaakol ci Serigne Modou Absa Jaxate ña ma ko jox bari na lool waaye bu ma ci doon tànn ñaar muy soxna Marema Jaxate ak soxna Faat Jaxate loolu dafa xewaat ci biir kër borom daarul muxti Mama Jëmb Fall dafa am ñaari doom ju ñuy wax soxna Kumba Fall ak soxna Xari ñaar ñëpp borom daaru muxti dëkkoo leen na Serigne Touba dëkkoo woon soxna Marème Jaxate ak soxna Faat Jaxate soxna Kumba Fall mooy waajuru Serigne Ahmadou Dam Faati ak Seydina Abbas soxna Xadi Fall mooy waajuru Serigne Abibulaay xamul delloo ak sëriñ Abdou Jamil waaye seen waajur wa maam maam ma Kumba Fall dafa bëggoon sëriñ Touba ba bu ko musaana dégg ci gox bi mu ne bu ñu nee ko mbedd mi la jaaroon day jël suuf sa di mëq ba mu yeggee ci Serigne Touba Serigne Touba dafa wax ni bëgg gi mu bëgg gi mu ma bëgg de maa ngi ko ciy fàggul sunu borom dajale ko ceeg lu kawe njortam loolooy dox ba borom daaru muxti jël ci ak njabootam dëkkoo ko mu meññul ñu sunu jàmbaar ji di sëriñ Abbas di jëm joo xam ni doy na ñaari seede sëriñ Cheikh Khady daf koo seedeel ni lu jamono yëngu-yëngu doo dem fenn ci àddina ba dégg fa ñu ni Abbas a fi wax lii wala moo fi jëf lii ci nekk su dul noonu sëriñ Cheikh Khady ko seedeel daal ni moom de lu wax ji bari bari mën ngaa wax ni du Abbas waaye lu jëf ji rëy rëy ci lu baax bu la neexee mën ngaa waat ci yàlla ni moom la bi mu doonee borom daadul muxti itam taxaw taxawaay bu am solo ci dajale njaboot gi lëggéeyal borom daarul muxti nga xam ne mënoon naa taxaw rek di santaane di ko def waaye woote bu njëkk ba mi ngi ci archive yi moo génnal boppam ci pénc mi dajale njabootu borom daarul muxti gépp yëkkati alal yoo xam ne la mu bëgg mën na koo def teg ci taabal ji ba pare ni ku yaakaar borom daaru muxti ñëwul ñu lëggéeyal ko di ko doxee di ko wax di ko waxee ba keroog mu fekk ji Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti di jàmbaar joo xam ni dafa am bayit wu Serigne Moussa Ka taggee borom Daaru Muxti bu doon jëmm ju am ruu mooy Serigne Abbas mooy moo bari diine bari ngor bari xam-xam te munta wor ñemeb dogal xam la ko war wuutewu la kuñ yónni la Serigne Abbas liggéey ak jaamu yàlla moo doonoon léppam daaraam ju siiw ji ñu dégg ci kuppantum nga xam ni bu dee suuf rek raflewu ko ndax ñeent fukki kilomètres yu wér la cer na tooloo maa ko wër dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni koo kii kenn la loolu la sëñ Musaa Ka wax waaye li muy yaatu yaatu ak liggéey ba mu fa liggéey dafa demaat nag wuti yëfi boppam ndax dañuy wax ni bu sa waajur ñëwee def jéego bu ñëpp gis boo ñëwee yow defal jéego mooy tax mbir mi dox ndax ku yokkul yaa wàññi Sëriñ Abbas ca Koupentoum boo fa demee daara ja mu fa am lu mu fa liggéeyale ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa jox na la ci àddiya wala mu jox lépp la ci des mu yor ci njabootu borom daaru muti gi nga xam ni ku mës a jaaxle ab dund wala nga sa bët xonq boo geesoo gis borom daaru muti boo ko fekkee fa mu nekk mu mën cee faj say aaju faj say soxla boo demee Cameroun fa la njëkkee lu jiitu muy dem Koupentoum boo demee ci yeneen i barab ki Sëriñ Abbas fa la njëkkee lu jiitu muy dem Koupentoum waaye njabootu borom daaru muti gépp maase nañu daal gërëm jëmm ji teddu jooju di Sëriñ Abbas di koo xam ni mhm. woon njabootu borom daaru muti ci maa fi mag waaye jikko boppam la leen yilifee dama ànd ak takku defar daarul moxti ñu dem ci sëriñ Bassirou Anta Niang boobu sëriñ Abbas a ngi fi bi ñu nee ko dañoo bëgg nga wax ci kuréel gi dafa wax ni dama dem yi ci ndigal sëriñ Abbas ba mu jox ma ko ci ndax moom kat yilif nañu ni mu ñu war a yilifee mat mu kilifa di ñu dimbali mat nu sëkk borom daaru moxti moo xam kenn ci ñun sëñ ci def dara te laajut ndigal sëriñ Abbas ndeysaan kon yaakaar naa kooku ñu fàttaliku jamono du jamono du dox ba ñu fàtte ko wallaay ndeysaan jamono du neex ba ñu fàtte ko waaye du ma ne Daaru Muxti waaye àddina bi kenn du ko fàtte kon kooku mooy Seydina Abbas ba noppi nag tabax fi loo xam ne du fi jóge ndax dañuy wax ni baax ba dem baax na lool waaye dem bàyyi fi ñu baax nag dara gënu ko Sëriñ Abbas doo dajee kenn ci njabootam ba xeeb ab yaram wala nga xeeb ak taalibeem wala nga xeep ab njàngam wala nga xeeb doxalinam bu rafet sa digganteeg moom mm-hmm. ni ab julli war a doxaleeg moroomam wala ak taalibi ndeysaan jërëjëf njabootu boppam gépp noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala dolli ñu ko fayal beneen bi ci des mooy noo ngi noo ngi dollee sant Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xam ni moo jiite diwaanu xilaafatu ibrahimiya di jëm yoo xam ni sagub sëñ Tuubaa bépp la mm-hmm. waaye nag Cheikh mun Muntaxa mooy sëriñ Tuubaa mm-hmm. dafa ko xamal ni ko ñun de ceerno la ñu yoxañ te xam ceerno jot na gii sëriñ Muntaxa moo ñu wax keroog ba fa sëriñ Bassirou Anta Niang demee dafa wax ni Thierno lañ ñu wan moom lañ ñu joxoñ Thierno moom la ñu sëriñ Tuubaa doxale suñu digg ak moom te wala fi rek dañuy wax ni bokk ci coow li xam li xew ko gën si dëgg la te li xew nag mooy mooy borom daaru mu tee fi ne dëgg la borom daaru fi ne keroog bi nga xam ne sëriñ Tuubaa dëdd na suñuy bët waykat ba dafa wax ni yéen mbàkke mbàkke ak bokki mbàkke ak lu yaakaar mbàkke bu ngeen bëggee wéy seeni mbir yi wéy na Thierno jiitu te bu leen ko yóotu ndax moo ëpp xam-xam moo ëpp am-am boole fulla ak jom ba noppi jàmbaar ni Bàmba kookoy Cheikh Ibrahima Faty. jërëjëf beneen bi ci des mooy maa ngi sant ak gërëm takku defar Daaru Muxti kuréel la goo xam ne faw xat na trop waaye dafa bokk ci ñaan yi nangu ci li ma wax sànq ci Serigne Abbas soxna Kumba Fall ak soxna Xari Fall nga xam ni man nga cee gis soxna Marème Jaxate ak soxna Fat Jaxate mm-hmm. waaye Touba ci kanam mën nga cee gis takku defar Daaru Muxti gi dëgg la lépp loo xam ni mm-hmm. Touba ci kanam def na ko Touba mm-hmm. fas na nu yéene def ko Daaru Muxti te nag Baye Modou Samb nee na yàlla du yeggaleel ku tàmbaliwu te gis ku tàmbali <laughs> ak ñaan nag taalibe bu ne nga war a fexe muy nangoo ci yow <laughs> wax na dëgg de waaw yàlla du yeggaleel ku tàmbali te gis ku tàmbali tàmbali nan woon njabootu borom Daaru Muxti jërëjëf bu ma nee njaboot gi yëmut ci ñu sukk jébbalu ni aslamtu nafsi bu ma ne njaboot gi mooy mboolem ku yaakaar Serigne Touba Cheikh mhm. Amadou Bamba Khadim Rasoul ndax ñëpp ci loxob Ceerno Birahim leen teg moo ngi ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang mu yàgg fi te wér jërëjëf ndax moom mhm. dafay Serigne tubaa ñaari yoon mhm. barki dem bi ñu def appel bi damaa wax ni màggal gi ndigal li ñu ci jox mbégte la war a doon ci ñun ndax ki fi nekkal boroom mbég mi mooy Cheikh Mahamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mahamadoul basiir jox ndigal borom mbég mi Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom Daaru Muxti mhm. mu leen ndigal li ci borom mbég mi mhm. muy Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudoss mhm. mu jotali ko ci ñun taalib yi kon loolu mbégteem taalib yi la war jërëjëf Serigne Moustapha jërëjëf waxtu bi beneen bi ci des boo ko tegalee nii fajar lañ jëm beneen <laughs> bi may tëjee mooy maa ngi sant Nasirou Samb mu Alaaji Amadou Samb la tax ma di ko sant mooy ab dof du sant baadoola du sant mhm. ku xamul dara du sant dëgg la mhm. man damay nab na bi ci liggéeyal borom daaru mu xool ma xam ne am naa bëgg mhm. mu jël oto yi jëga seet jox ko addi borom daaru di ma defal taraanga joo xam ne tax na jot gu ma waroon am di ko sànk ci leneen ma di ko def ci borom daaru góor dëgg la tubaarkaala ki tax nga taal ko nag foo toll woon. dama ko taal dëgg la jërëjëf sëñ Moussa dañu wax ni ñu bu baax nag sëñ Moussa dañoo wax ni ñu ñu ah, ñu mën a enchaîné ci sëñ Mahmadan waaw ndeysaan gaañ soo ko mën a tëj wallaay ndeysaan ndax jotaay bi def nañu juróomi juróomi waxtu sëñ Daam ba nee na def nañ juróomi waxtu yu borom daal waxtu waaye sëñ Mor Gueye euh, sëñ Ibrahima mhm. euh, ku ne day tijj deux minutes rek mhm. ci borom daaru ci tijjil sëñ Mahmadan ñu jox micro bi sëñ Mahmadan sëñ Ibrahima leen euh, taalibi borom daaru ñëw ajjuma ju nekk danga koy fekk ci daara ji mu nekk fa ñu jox ko micro bi mu tijji ñaari minute sëñ Mor Gueye taxaw nga mu tijji ñaari minute ñu enchaîné ci Serigne Mahmoudan moom Serigne Dame Fati sëriñ bu baax ba mu ne woon ba ñëpp xam yow baata jëng def ci bayit laa la digal wutal bay yaboon na feet nang ma ko yel ngir seere seet lu yomb la Seex Ibra Faat laa xamal ñu ko xamul ñoom laay xamal ndax sunu sëriñ moo dañ yabal tamit ngi daaru kenn la ma ni tuut tey jikkoom yoo xam ni war na jëpp doom ju nekk mi ko ci moom ndax mhm. ni moom lu jafe la kersaa ki teggin moo ko tamat wëllëre nel na du xeeb du naw moo bari jom ñi meta ñaw ku la dara du yokk waaw bitam dara du tax mu raf batam samba wadd way abeetaay du wàññi sama maam cer na jéndi jëmm la aajo jumat naa ko giseel ji ba moo di al sa sintaayi xëy bu dëgg la moo tax ci góoli toj galoom njën mi génn fay ñëloor gaynde yoon di boof ca biir mu dàq leen tey jàtti la la daleen dànku ba ndayoor jàpp ba xam cerno ko gor moo gor garab ya akulër gor dër bu gor bu mokkul la dale bi ji ba jaxaw jàpp go di ba xaw mu naan murit bu leen taxaw dem leen macha allah tubaarkalla tubaarkalla keroog la gor lu jàpp ngel gor dun ko jàll dullu mbel ñi mhm. gaañi wéy leen ba wullu mbel gor ba tee ji jàtti la jërëjëf sëñ Maam Samba Wade yéen may marsiyal fii génn góoru seydi rijaal bismillah yéen muridi Sénégal may marsiyaal fii génnu góoru sey rijaal doxal xaraa war na muriti daaru moo yàgg war maa kawaaru war na Sëriñ Tuuba waraale Cerno war bàccante ceeba jaar war na sëriñ jaawaanta war borom saam war na sëriñ yaafe rakkam jar naa saam waaye la yóbbu yooyu ci senegal du mën a bàyyi seex mu doon yeex mari jaal wéetal na daaru dellu wéetal tuuba ak daaru man naan balay sa sey ba maam jër nu faati maam jorno faati maam jortoom faati sanc daarul muxti muxtil falaay loolu buñ ko fàttee Seex Awa Balla sanc daaru man naan def ñaari teente naa murit ku na naan Seex Awa Balla delluwaat ci waawoon dekkal cosaan la maye yéppi baawaan Seex Awa Balla si kaab la am fa ñu naan Ndakaaru di woo yi ñëpp ñëpp yi waaru ñu naan bayit mu daldi del si baa mbay sañ ci fëkkër tanaa murid na ngeen bay Cheikh Awa Balla amoon na kër mbaa ba garaas di màggal am na kër fa Louga am na kër fa Njurbel Cheikh Awa Balla moo safoon murid yi ci aw meloom ci aw jikkoom xarit yi bay raba woon ca Cerno Faati mbër ma Cheikh ko doon aw ca tànki mbër ma bay raba woon ca naar ba sii di gaawaan seexu ko donn waayay mayam di baawaan melaw sérif la yaa xafaaru sunoob yoroon fa daaru bi seex du bay loob ah, itam e la daa waxtaane moo dib yaaram xar baax la daa tëggoo nee leen ko àllam wàcc nga jaajëf balay sax seex loo war def def nga ko ci fa jaajoo fiirul jaajan na fooru lii ni may wax ci say joloore ku lay ni balla lu ma lim-lim lu tax ma jeexal ci say manoore mbakke yaa ke géejal tafeeru maam Cerno si gil ndi gaale seydiri jaal ibra juuba yi jaale Seex Moodu Maxtaar si mbakke balla tey bak Tuubaa te ne tan la fii mbakke Seex Moodu Maxtaar balay sa mbakke te ne tan la fii mbakke sëriñ Maamoor sa maam taxawlu naa sëriñ Maamoor sa baay taxawlu naa yéen muriti daaru danaa ko yóbbu ca rajoom Ndakaaru taxawlu naa yéen muriti daaru waaw góor danaa ko yóbbu lii ca rajoom Ndakaaru sëñ sëñ Mor Gueye caatum Cheikh Awa Balla mi ci jotaay bi may na la waaw caatum Cheikh Awa Balla mi ci jotaay bi may na la ñu jëm sëñ Mahamadan Cheikh Awa Balla moom leneen la nag waaw yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal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 bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen nuyu it ci turu Cheikh Mouhamadul basiir moom Serigne Abdoul Khoudous mi nga xamante ne moo fi waroon a teew ndax moo doon mhm. mooy porte paralu Serigne bi waroon fee teew mhm. waaye mu yónni ñu mën ak Serigne Abo mi mhm. di sama rakk ne ñu nañ ñëw teewal ko ci jataay bi moom it mu am ay taxawaay yu rafet yoo xam ne te ne boobu ba léegi mi ngi koy taxaw ci bëgg rekk nit ñi xam lan mooy jëmmi boroom daaru kon ñu ngi ko ci sant ci taxawaay boobu bu baax a baax di ñaan yàlla yit sëriñ Muntaxa mi nga xamante ne moo fi jiite njaboot gi yépp sunu borom yàggal ko fi te li mu bëgg a liggéey lépp sunu borom yombalal ko ko yombalal ko it sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi nga xamante ne moo nekk ci njabootu bopp Cheikh Ibrahima Fati moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla guddalaw fanam te yàggal ko fi ba li mu bëgg a liggéey lépp mu liggéey ko di santit mbooloo mi fi teew yépp wax ju rafet jiñ fi wax yépp di sant boroom kër gi bu baax a baax mhm. sëriñ Mbàkke yu fay ci yombal gi nga xamante ne yombal na ko kër gi xam na ni it bunt yi benn bunt bi la ndax maam Thierno Birahim moom liggéeyal ko mooy liggéeyal sëñ Touba bi mu ko xamee mu yombalal lépp def ko ak jàppandil ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax a baax man di xawma ko ci télévision rek laa ko gis waaye bokk na ci taalibe sëñ Touba yi ma naw bokk na ci taalibe sëriñ Touba yi ma naw keroog bi ma gisee ñu inauguré ma Saalikul Jinaan ba tijji ko. Mhm. sama xol sedd na sedd goo xam ne xam naa ne sëñ Touba ba léegi am na fii représentant. kon loolee mu nekk yàlla na ko ci sëñ waa jàppale. amiin Mbakke amiin Mbakke. loolee la ñuy ñaanal suñu jëwriñ fii muy di El Hadj Mafal. Mm-hmm. nga xam ne sëriñ bi moom itam damay wax ne li mu def yépp xëy na communication amagul ñu bari xamaguñ waaye li mu def lépp moo ko defal boppam amul kenn ku ko ko defloo muy jëwriñ yi mu tànn yépp moo ko tànnal boppam. ba ci jëwrin alaaji ba faal keroog ba koy tànn dafa wax ne man de am naa teef ci lool ci mbàkk yoo xamante wuñ moo maak moom xamante wuñ bu baax ci ci ci ci xamante nii waaye am naa xemmemteef ci bu baax ci taxaw gi nga xam ne taxawal na ko suñ tubaab foofu ci dëkk ba alaaji ma faal mi dama am yaakaar ci moom lool te xam ko mu yàgg maa taxawu fu ne ci àdduna kon moom itam bëgg naa lii mbàkk yu am bu ko amul sax mu am lu ëpp loole ne bëgg naa mu taxawu foofu ci dëkk bi foofu kon te taxawu fi njabootu borom daaru gépp kon alaaji ma faal ab sars bu diis waaye bu yomb lay doon ndax eh, borom daaru moom ku mu jox dara rek moo la koy teel boppam kon na sa xel dal te xam ne liggéey bi yëpp dana yomb di gërëm ñi fi teew ñëpp eh, sëriñ Cheikh Anta sëriñ Amidoun mm-hmm. nga xam ne yéen ci kër gi ngeen bokk ndax damay wax ne yéen du ngeen sax ñoo xamante ne dañoo nekk ci télévision bi di liggéey wala ay dara waaye yéen xam nañ leen xam seeni way wayjur ay doom ngeen ci kër gi ndax seeni i baay ak suñuy baay ñoo daan àndandoo buñ masaan ñëw ci kër gi kenn du xàmmee seen i doom ak doomi sëriñ bi kon macha allah ci li nga xamante ne def ngeen ko di gërëm bu baax sëriñ gànn ci moom ku ñuy bàyyi xel la am na lu bari lu ñuy waxtaane loo xam ne xam nañ ne ñu ku taalibe yi am yaakaar ci moom la di ko def sëriñ Cheikh Bamba moom itam di bàyyi xel ci moom sëriñ Abo sàll sëriñ Ablaye Diop ak sëriñ Salihu ak sëriñ Cheikh Mbacke Guèye sëriñ Cheikh Guèye nga xam ne ñun ñi di gone yëpp yaakaar naa bi nu demee bay bokk na ci bi ñuy walanteeru di dem di jàngi ci réewi naar yi ci bokkoon nañ ci jëmm yi ñu doon roy. bokk na ci jëmm yi ñu bëggoon nuru booba. ndax gis nañ défendre gu mu daan défendre Sëñ Tuubaa ak melokaan wu meloon woo xamante ne boobu nun ñëpp ko xemee moon ci loolu man maa ngi ko njëkk xam ci jataay yoo xamante ne day toog ci kippaaruk sama sëriñ di sama wasila di Cheikh Abdoul Khoudous moom sëriñ moom moom borom daaru mu toog ci wetam di ko jottali booba laa ko daan tàmbali di ko bàyyi xel kon sëriñ Cheikh jërëjëf yàlla yàlla guddal fan wi euh, noonu la ñuy sant it mboolem njaboot gi fi nekk yëpp euh, sëriñ Jiili sëriñ Mamor euh, sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Abo su ko defee door a ñëw ci njaboot gi nga xamante ne mooy njabootu sëriñ Abbas di sëriñ Abdoul Khoudous ànd ak sëriñ Moodu ñu ànd ñoom ci groupe bi nga xamante ne mooy takku taxaw defar daarul mooti day del siwaat ci la sëñ Tuubaa waxoon borom daaru rek mooy lam ko waxoon ne ko ëpp ci sax bu lakkee daarul mooti dana lakk bu lakkee Tuubaa dana lakk daarul mooti kon bu demee ba Tuubaa ca kanam taxaw ñoom it ñu taxaw dañuy jëmmal liggéeyu sëñ Tuubaa kon ñu ngi ciy soññi bokki taalibe bi yëpp ñu taxaw ci te kenn ku ci nekk bàyyi ko xel noonu it la ñuy waxee ne taalibe bi yëpp na seen xel dal ndax tey firnde ji fii ci jataay bi wane na ko Abdul Xuddus a nga nee toog di sama rakk di doomi Serigne Abbas seen way jur moo fi nekkoon daaw sunu borom jëlee ko fi ren ji sunu way jur a fi nekk te jataay bi boo leen gisee nii ñu toogee Abdul Xuddus mais tey bu ma ne ko woon fanaanal dakaar du ñibbi daaru mooti sëñ Muudu mais su ma ne ko woon fanaanal Dakar du ñibbi daaru mooti kon dafay mel ni borom daaru ak njabootam noonu lañ mel xàmmeewuñ ki nga xamante ne moom la fi nekk ak ku fi bàyyam nekkul lépp benn la ñoom xam nañ ne lépp benn la ñoo bokk fu ñu yëkkate ñoo bokk fu ñu dëkk ndax ñoom ñi ñoo njëkk summeeku ngir liggéeyal sëñ Bassirou Anta Niang ba fi seen waajur jógee ñoo njëkk summeeku liggéeyal sëñ Bassirou Anta Niang te seen waajur jur ci ñi ko njëkk ci la bokk ndax sëriñ Bassirou dafay wax ne sëriñ Abbas dafa maa defal loo xamante ne bariwut ci mbàkke ñu koy def ndax sa rakk nga mag ko fopp magee ko lu baree bari bëri ba pare wëlbatiku jël sa taaw tudde ko bariwut lu koy def ci am askanu mbàkke te ab taawam di Bassirou sëñ Bass la ko tudde kon loolu wane na ne nekk gu rafet lañ nekkoon ñoom kon wane na ne li ñu doon nekk yëpp nekkin gu rafet la sëriñ Abbas it bala ñuy dem ci jataay bi wala ñu ciy wax dara rek faaw ñu def ci benn seere ndax man dafa nekkoon sama xarit di ku ma xam ku ma jaxasoo lool ndax fu ma masaan tukki rek fekk na ma ba bi ñu nekkee étudiant nekk nii di fa tukki dafa mas a def loo xamante ne ci laa ko jàppee muy lu yéeme loo xamante ne ndax booba dafa daan tukki si di am taalubéem bu muy dalal waaye taalibe bi booba dafa doy waar genn doy waar goo xam ne kenn mënu koo xam ndax booba mi ngi jëfandikoo yu baree bari ci ci ci gone yi jëfandikoo ci àdduna sëriñ bu dikkee dal ak moom mi ngi am néeg boo xam ne néeg su tuuti la waaye yi muy jëfandikoo sax da koy da koy da koy da koy suul ci suufu suuf suuf lal bi ak ak ci perong bi bi mu ñëwee ma waxtaan ak moom ne ko sëriñ bi de fii moom wax dëgg yàlla doomi borom daru di fi ñëw di fi nekk maanaam metti nañu lool daal di dem waxtaan ak diine bay boobu moo fa nekk représentant sëñ Abdou Lahad ci Nouakchott ma dem waxtaan ak moom mu ne ma sëriñ bi kay sëriñ Touba am na fi kër guyaatu yaatu bu dikkatee mën na fee dal ñu dem waxtaan ak sëñ Abbas bi ma ko ko waxee ba pare mu ne ma Mahmoudan du ma ko def ma ne tekk di ko diglu ak sëriñ Abbas wax ji gàtt ñu dem ba ci kii boobu mu wëlbatikuwaat daan ne ma xam nga lu tax du ma ko def sëñ Touba du ma booleeg njabootam gii kii bàyyam boole ma ak moom topp ma ba jur ko jël ko jox ma tuddee ma ko bàyyee koog man ma wëlbatiku di ko abandonné su ma ko abandonné mu yàqu ba faaw. ci ànd ak moom ci jikko ji ba keroog sëñ di ko soppi laata fa suñ Abbas di dellusi ca déwén sa ngor si ab soo yu la daayira sëñ Tuubaa ba fa nekk bokk na ci ñu ko jiite lii ci sama kanam la kenn nettali woo ko ba gis kon nga xam ne <laughs> ñooñu kenn yëmut ak ñoom kenn yëmut ak ñoom kon yàlla na nu ko yàlla fayal fa mu nekk yàlla na fa jël tuyaaba ju réeree rëy li mu doon liggéey sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko yàlla na ko ko defal eh, jataay bi nag suñu xol sedd na bu baax a baax sëriñ Basiru it nee na sant na leen mhm. xolam sedd na bu baax a baax mhm. eh, dañ ciy jox ñaari seere rek ginnaaw waxtu wi jeex na te ñuy tëj dañ ciy jox ñaari seere ci kii ñu doon waxtaane kii ñu doon waxtaane seexanta mhm. su fekkee bëgg nañ xale yi delsi su fekkee bëgg nañ xale yi tege faneen faaw dañ leen di indil maam Cerno Birahim ndax sëñ Tuubaa du waxantu jant bu demee ba ne Cerno mooy exemple bi ma teg ci seen kanam ngeen di ko roy buñ ko fi teggee wut kaneen rek danañ réer ndax waxi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du jay kenn maam du jay maam Thierno du jay keneen lu wax yàllaa ko ko wax loo ñaar yi rek doy na ci seede sëñ Touba ak maam Thierno dañoo waxante ñaari yoon bi muy dem ci tukki bi ak bi mu ñibbisee ci tukki bi. Mm-hmm. bi muy dem ci tukki bi. Mm-hmm. dafa waxanteeg maam Thierno ci ab néeg muy wax ju leer li ñuy wax ne nun duñ duural suñ duñ duural mukk sëñtuwaa ndax luñ ko wax dañ cee teg suñu bët. ni ko alaaji ma faal doon waxee léegi sëñ gànna doon ko wax léegi kenn du dégg ñu ne la sëñ tubaa nee na maam sëñ maam cerno nee na ma sëñ tubaa nee na ma sëñ tubaa nee na maam cerno ngay dégg waaye maam cerno moom waxut daneen dafa noppi rek lépp loo ci dégg sëñ tubaa ko waxal boppam dañoo waxante ñaari yoon waxante bu njëkk bi dañoo tëju ci néeg sëñ bi ne ko dem dafa jot ne ko cernu dem jot na ndax fi ñu toll yëf yi dafa tilim lool taq ripp ba kenn mënu koo gis diine ji kenn mënatu koo jariñoo te dafa aaji woo loxo yu dëgër ak saabu yu mën a weexal ak loxo yu dëgër yu set wecc yu mën a fóot ba mu set moo tax faaw danaa dem setal ko ba mu set ma dellusiwaat daan ne ko liy tax set gi man nag mooy lii ma teg ci sa loxo damay dem te lépp ci sa loxo laa koy teg su ma demee lépp baax su ma ñibbisee lépp baax su ma fi fekkee lépp yàqu su ma ñibbisee lépp yàqu borom daaru ne ko la yàlla ma yàlla doon maye su fekkee dindiwu ko da nga fekk lépp baax waaye doo fekk dara lu yàqu mu jël loxoom teg ci su bopp suñ Modou Moussa jël loxoom teg ci bopp Serigne Fallou ne leen dénk naa leen yàlla ak yonente bi ak seen baay Ceerno noonu la ko waxee Sëñ Tuubaa ci boppam moo ko wax ci ñam dénk naa leen yàlla ak yonente bi ak seen baay Ceerno dem ci tukki bi loolu mooy waxante bu njëkk bi maam Ceerno daj lu ne ba sëñ Tuubaa dellusiwaat mu yónni sëñ Isaa mu woo ko muy waxanteem ñaareel bi ne ko fekk ma ndar borom daaru fekk ko ndar nee nañ keroog bi ak borom daaru accès borom daaru ci boppam waxal na boppam ci ne liñ doon jiñ sëñ bi de keroog laa xam ne dëgg la ne liñ doon jiñ sëñ Tuubaa keroog laa xam ne dëgg la asma boobu ñu doon wax naan da koo am dafa ragal ab sedd keroog laa xam ne dëgg la ndax nee na bi mu ma seenee may ñëw bi mu yëkkatee ñaari loxoom taf ma ci dënnam ni dënn bi doon riire di xët-xëti ci laa door a xam ne sëñ bi li ñu ko doon waxal asma woowu dëgg la nee na ñu téye foofu ñoom ñaar kenn mënut a wax bañ taxaw ab diir kenn waxut sëñ Tuubaa waxut Maam Cerno waxut bañ ba ñoom ñëpp lay dal doomu aadama dal leen ba mu jeex ba mu dalee sëñ la mu ko njëkk wax mooy Cerno xat wa faa matale nga lépp de te lii de su ma demoon nga toog fi yaakaaruma ne danaa ko man te loolee mu ko wax noonu ne day wax ju dëggu ndax dafa am mag moo xamante ne daf ne danoo échec daf ne tubaab yi dañoo échec ndax li leen échec loo mooy bu ñu xamoon te xam ne sëñ tubaa dogalub yàlla daf cee wàcc duñ yóbbu sëñ tubaa maam Thierno la ñu yóbbu ndax nee na li tax ñu waroon a yóbbu maam Thierno nee na maam nu moo mën a gor ab àll moo mën a yar ay bi moo leen mën a liggéeyloo moo mën a samp daara yi moo mën a yar njaboot gi ndax sëñ bi moom lam nekkoon ma nga ca tëlu dara maam Thierno rek a yoroon loolu. bu ñu yóbbu woon maam Thierno nag daara yi ak kër yi kenn du ko mën a samp te boobaa yor wi mën naa tas waaye fañ essayé mooy fañ yóbboo sëñ Tuubaa kon bokk yi nanu dellusiwaat maam Thierno su fekkee indi nañ ko bëgg nanoo xam wala nu bëgg nan ko dellusiwaat bu nu wax ngir parparloo bu nu wax ngir ne borom daara yu sunu maam bu keneen wax ne diwéy sama maam diwéy sama maam déedéet sëñ Tuubaa mi ne woon roy leen ko Thierno mooy exemple jant bu ñu ko tegaatee ci suñu kanam roy ko nun ñëpp danañ xam fi ñuy teg dañuy xam fi ñu teg suñu tànk te du yem ci taalibe yi kese waaye day dem ba ci état yi gis ngeen lii nu dal bërki démb mhm. tey dal état yu bari mhm. nun ñëpp buñ andi woon njàngale maam Thierno nu teg ko ci kanam nit ñi teg ko ci kanam état yi lii nuy dal du nu dal ndax xoolal koo xam ne état bi ñu la dénk bàyyee la ko juróom-ñaari at yu topp jóge fi demaat gànnaar jóge fi demaat jolof mu agsi nga jël état boobu ñu la dénk nga jël ko gëm gi nga ko gëm te bëgg ñëpp sowe nga taxaw fële ne samay njaboot bu leen am dara samay njaboot buñ mucc bu dee lore nañ lor samay njaboot te peuple bi nga xamante ne moom lañ ma dénk nañ mucc loolu bu ci état royoon tey problème yi nu am duñ ko am bu état yi xamoon ne lii ñu yor nun noo leen ko dénk te dan duñ ko war a sàmmul seen alal suñu alal yi bopp jii ñu yor moo leen di gënal seen alal yi ñu yor te kon danañ ñu jox suñuy àq ba mu wér kon maam Thierno Birahim buñ ko tegee ci kanam nit ñi yaakaar naa danañ ci am exemple yoo xamante ne yu leer a leer lay doon jataay yi gudd na te duñ ci guddal te waxtu yu mayuñu ko xam naa foofu la ñuy yem di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lu ci dëng ci ñun la waaye sëriñ bi lim lu yónni mat na sëkk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu